والقلم وما يسطرون ñu leen nuyu bu baax te di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi ñu nekk muy san ramadan al mubarak di ñaan nañ ko tàmbalee si bismillahi rahmaani borom bi tabaaraka wa may ñu ñaar màggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp lu ci nekk ci aw yiw yàlla sedduñu si lu kawee suñu njort barkatu quraanul karim di nuyu nag mboolem jullit yi nga xam ñu ngi ànd ak ñun jataay bi fu ñu mënti nekk di ñaan borom bi tabaaraka wa taala may ñu kàttanug niñ ko tàmbulee ñu taje ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te li fiy génn lépp di aw yiiw borom bi tabaaraka wa taala tasaada ko ci mbooleem jullit yi ku xam jataayu tey bii di nga xam ni ñu ngi ci euh, le 10 avril 2022 muy jataay bu mag boo xam li muy teg tegtale mooy liggéey boo xam ne dafa aju ci alquranul karim te ku ne xam na ne alquranul karim ku ko wax di nga wax mokkal ci anam gu rafet waaye ku ko wax itam di nga wax bind alquran muy ñaari tànk yi nga xam ne moom lay doxe te bu ci dem rek ak sooxe am ndax ci mokkal gi moo jiitu waaye bind gi itam moo ko fi téye ci ay sabab yu bare bari yoo xam ni commission scientifique incha allah danañ ci dikk ak ñun jëmm ji nga xam nag moom la borom bi tabaaraka taala sédd ndax lislaam dafay yaatu di tool bu yaatu kenn ku ne ak fi ngay bay ñii di bay ci tari di def organiser ay concours ñuy tari ñii di organiser yeneen ñuy def leneen lépp di liggéey lislaam jëmm ji di alaaji sëriñ sekk nag borom bi tabaaraka taala baaxee ko mu am xalaatub organise concours boo xam ni jullit yi dañ si eh, wane liggéeyub alxuraan bi nga xam dafay aju si bind ngir seetlu gun seetlu ni mi ngi sooxe ci ay daara yu bare bari donte nag mi ngi fi ba léegi waaye ku ko natt ak si jamono yi jiitu woon euh, di nga xam ni ak euh, soppaxndiku am na si bu baax a baax a baax loolu nag muy liggéey bu kawee boo xam ni ku ko yàlla séddee dafa aaje ñaanal bu baax ak mbooleem ñi nga xam ñu ngi ko si jàppale ak mbooleem ñi nga xam ne am nañ ci yéene itam mu nekk nag liggéey bu yaatu boo xam ni fu waaye yam rek boo liggéeyee mën nga sof faneen di ñaan borom bi niñ ko awoo niñ ko téye mu nekk liggéey bu sel borom bi tabaaraka taala may ñu ba dara lu koy nëxal wala lu koy tilimal lu koy ñaawal euh, bañ see am ñu ànd ko nag suñu mbokk mu baax muy Serigne Mbacke Sylla incha allah bu ñu ubbee jataay bi ñu tàmbuli liggéey bi Serigne Mbacke Sylla. asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kay jërëjëf kon ni ko sëñ Mbacke waxee xam naa duñ ci teg lu bari ci fànn googu. ndax dañuy njëkkante ak waxtu wi ndax li dox suñ diggante 14 heures mel na ne bari na waaye bariwut ci programme bu am solo bi nga xam ne mbokk yi bëgg nañ ko fee gaaral jotaayu alxuraan la moo tax dañ koy ubbee ak alxuraanul karim woo donga boo xam ne moom lañuy wax sëriñ Basiiru Ndongo sëñ Basiiru Ndongo sëñ Mbàkke bàyyi ko fële ca bayti ci daara ji nga xam ne mooy daaray sëriñ Moodu Badiane Seck mooy ñëw ubbil ñu jotaay bi ak alquranul karim ñu door a ñëw ci programme bi yi nga xam ne moo ci tegu auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraata al-mustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن innaka la'alaa xuluqin aziim fasatubsiru wa yubsiruun bi ayyikumul maftuun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabiilihi wa huwa a'lamu bil muhtadiin sadaqallaahu al-aziim takbir allahu akbar jërëjëf sëñ Basiiru Ndongo sëñ Mbàkke bismillah euh, macha allah ci aaya bu am solo boobu mu ubbee nga xam ne li muy tegtale euh, mooy bind alquranul karim muy nuun wala qalam di shiar bi nga xam ne moom la yaatal bind alquran amee ku xam nag ni sëriñ ndongo moomu sëriñ Basiiru Ndong mi ngi jàngee ci bayti sekk di daara joo xam ni alaaj sëriñ Seck mi xam ne moom mooy organiser yaatal mbindu alquran di borom C3S daara jooju moom la borom bi tabaaraka wa taala baaxee ko mu taxawal ko fële sa dëkk ba Beyti Seck muy nekk daara joo xam ni dañuy wax ne lu mat ñaar téeméeri élèves ak juróom-ñaar fukk ña nga fa di jàng ay deux cent soixante-dix mën nañoo wax sax ëpp na ko ña fay liggéey ci personnel bi mat daanaka ñaar fukk wala dix personne personnes itam yàlla baaxee ko mu. yor leen ci anam gu rafet la waat si ñoom lépp mu di ko di ko def. nag euh, dañuy ñëw ci li ci topp rek euh, ginnaaw bi ñu dalalee kilifa yi nga xam ne ñi ngi ci biir jotaay bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi bu ci kanamee tuuti seen jiili dana ñëw jukki ñennat ci ñooñu ci seeni tur incha allah ñu dalal kon ñi nga xamante ne ñooy suñu jàmbaar yi nekk candidat yi nga xam ne mbokk yi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi biñ defee seenu segg. ñooñu ñoo bokk ci segg gu mu gi war a ñëw fekk ñu ci biir tànt bi ñu bàyyi xale yi ñu bàkk leen ñun ñëpp ñu jóg taxaw dalal leen ndax euh, bu ñu teewee fii tey ñoom ci seen bopp seeni effort bokk na ci li tax ñu teew fi ndax ñiy wootee ko organiser bu ñu organiser woon te kenn bindut yët leen mbir mi mën naa am xorom waaye xorom si mën naa def ñoom ñi bind nag def njàmbaar gu tol noonu te bind bokk ci li fi bàyyi yëf yi jotaay bi am nañ ci wàllu rëy rëy boo xam ne seenu dugg ñun ñi fi jot a nekk war nañoo yëg ne mhm. du duggug ñu wàll si yaan si waaye ñun ñoom lañ seetaan si mhm. kon ñu bàyyi xale yi ñu bàkk leen ñu dalal leen mhm. bismillah bismillah ñu ñaan ñun ñëpp ñu jóg taxaw ba waaw ñu jóg taxaw ba candidat yi toog ba noppi bismillah bismillah jàmbaari daara yéen laay njukkal tey ñu baay sëriñ taxawaay bi na na la buur daaray nabi gis naa ci yéen kang foor ya daan bindal nabi naa ci yéen kang foor ya daan bindal nabi zaydum ni saabit ubayum زيد بن ثابت أبي بن كعب jadaalay nabi suñu baay sëriñ siggil yi suñu baay sëriñ siggil nga ñu ñun daara yi yow say dërëm bégloo nañu ñun donga yi yow fandol la suñu baay guddal sa fan dolli say alal yaa am njariñ njariñ man Moodu Gey maa doon yaxal ab yaarile man Moodu Gey maa doon yaxal ab yaarile takbir allahu akbar allahu akbar waaw ah, mu mel ni am na solo sëñ Mbàkke ngeen dongo yooyu ngeen gis ñu way way wu am solo woowu ñu ngi ci daara yi Bayti Seck daara ji ñu doon wax léegi ndax lim boo xam ne àggoon nañ ci ay 574 ñu di ci tànn di ci tànn ba am ci ñaar fukk bu ndes ñaar fukk da xam ne ñooñu moom ay jàmbaar lañ Ah, mat nañoo kañ di sant bu baax itam si moo liggéey mi nga xam ne moom mooy taxaw xale yi yor wàllum njàngum alquran ci daara jooju di bayti sekk di dalal suñu candidat yi di dalal kilifa yi daal di ñëw nag ci ubbiteel programme bi ginnaaw bi ñu dégloo alquran dalal bindkat yi dañuy woo sëñ bolle mbay mu ñëw joxe kàddu gi nga xam ne mooy kàddu dalal gan ñi eh, ñu door a jëm ci li nga xam ne mooy liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Seck bi nga xam ni moo taxawal compagnie Serigne Seck di woote woon ndaje mi wax di ko tuddee yaatal mbindum alxuraan mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci wuy si bi ngeen ko wuy si di leen ñaanal yàlla defal leen tawfeex ci jéego yi ngeen jéggi ba ñëw fii ak jéego ngeen di jéggiwaat bi waat fi ngeen jóge woon yàlla na ko yàlla def ak yiw bindal ñu ko ci suñu balance xasanaat yàlla na ñu ko yàlla defal ñu ngi sa maa <coughs> mbooloo mi ci turu ñi doon saytu jataay bi ak ñi doon def yaatal mbindum alxuraan bi yëpp maa ngi leen nuyu ci turu Serigne di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla defal ñu tawfeex àdduna ak di leen wax dal leen ak jàmm di sant ñëpp di gërëm ñëpp di beral cant ak ngërëm li nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu client yi nga xam ne ñoo jàppale waa Sectorias ci seen liggéey bi ñu amee ndax fu ñu àgg client yooyu ñoo tax ñu àgg fa kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax te di leen gërëm te yàlla nañu yàlla defal tawfeex àdduna ak alaxira ci bak xaadim rasul wasalaam jërëjëf jërëjëf sëñ bolle euh, sëñ Mbàkke bisimilah bisimilah waaw sëñ bolle ñu ngi lay sant bu baax alhamdulilah kàddu yi am na solo xam naa ñu bëgg xam tënk tuuti rek si li nga xam ne bëgg nañ ko fa jàllale ci bis bi mu nekk yu am solo si si ak tënk rek incha allah bëgg nañ fay jàllale lu mel ni kii ay boole dana fi jàll waxtaan ci alquran ak nim nuroo ak discours yi fi war a jàll yëpp ci wàll yëpp commission scientifique c 3 ak ñi nga xam ne tam ñoom lañ dara jàlle bis bi ko xam bis bi ni mu màggee di nga xam ni ñu ngi ko dara jàlle Sëñ Daam Abdourahmane Lo te ku tudd alquran di nga xam wàcc waayam waaye ki nga xam ne moom mooy suñu ganu bis bi itam liggéey si alquran liggéey bu rey muy Serigne Mor Diop Ndar moom itam danañ digg si moom incha allah si kàddu yu yu yaatu Serigne Mbacke si la mm-hmm. su ko defee nag ki nga xam ne moom lañ leen di wol sëñ Mbàkke mooy sëriñ Abibu sëriñ ab sëriñ Abibu Laay Jóob Laahi Jóob nekk Touba daara seriñ am di Jóob di jëmm joo xam ni suñu borom tabaaraka taala dafa euh, def si moom kimtaan sëñ Mbàkke muy dafa yàlla dafa mu mu tële ci wax yàlla nattoo ko loolu waaye borom bi may ko mu man man alxuraan mokkal ko waaye man koo bind loolu bokk ci ak kiimtaan yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf koy tëyee téere bi ndax wala xad yassarna al qur'ana li zikr fahal min mudakkir yàlla génnewu ci kenn ñëpp a ngi ci biir yàlla dogal na mënoo wax waaye mën nga koo bind mokkal ko man koo tari man koo jàngale ba jamono ji ñuy waxee yor na ay daara di jàngal ñoo xam ne noonu lañ mel ñuy mokkal alxuraan di ko bind kon jëmm jooju warees naa taxaw si moom dafa seetlu waaye nag wane si nag benn vidéo bu am solo Serigne Mbacké Sylla jërëjëf jërëjëf loolu li nga wax la day bokk ci liy wane ne yàlla wàccee alxuraan te moo koy sàmm kon dañuy gaawantu rek suñu techniciens yi bu ñu noppee léegi ñu déglu ñu seetaan vidéo bu am solo boobu waaye Serigne Mbacké ci présentation bi ñi féete ndeyjoor mbokk yi di kilifa yu baax yi toog ci ginnaaw nekk commission scientifique bi nga xam ne ñoo taxawu liggéey bi ñoom itam doon ay jàmbaar yoo xam ne yaa ñoom yéen a àndoon liggéey bi sëñ Ba waaw macha allah ñoom itam daanaka noppaluñ guddi noppaluñ bëccëg si Serigne Khadim Ndiaye mi nga jiite comité scientifique bi ak Serigne Fallou mi xam ne moom la si alaaji jox liggéey bi ak mboolem ñi ñu àndal ngay seen seen ginnaaw ñëpp boo tuddee da ngay juum dañuy bàyyi seen yite yëpp guddi ak bëccëg noppaluwuñ xamul tàng na xamul sedd na di joxe liñ mën lépp seen xam ba pare itam di ko dund gëm ko Serigne Mbacke boo jànkuwante ak ñoom ak ni ñuy liggéey si nga xam ne li ñuy liggéey ñor na leen te itam dafa nekk liggéey boo xam liggéey bu jafe la nekku ni da ngay man alxuraan rek man ko ndax dafa bari ay sew-sew la sa nekk si ay nuroo ak ni ngay nose ni ñuy ràbbe nattukaay yi ak ni ñuy corriger yooyu yëpp dañ ciy daj loo xam ni liggéeyal alxuraanul karim rek rek rek moo tax ñu di ko def waaye jubluwuñ si laneen kon ay jàmbaar lañ yoo xam ni loo wax si ñoom rek euh, doyut doy na si tagg rek nga ne ahlul quran hum ahlulaay waxaa satuhu ñi liggéeyal alquran ñooy njabootu yàlla yàlla moom moo yilif ñëpp waaye nag njaboot gi mu tàmmul boppam mooy ñuy liggéey ci téere bi te xereñoo ko nag macha allah. Mm-hmm. jërëjëf kon ñu seetaan vidéo bi ñu seetaan euh, vidéo bi nga xam ne moom lañuy ñuy mbokk mi nga xam ne suñu borom daa dogal làmmiñam du wax te loolu daan ànd ak nopp yu du dégg waaye ànd ak loolu yëpp nag teewut borom bi taw féexale na ko mu mën a jàng alquran man koo bind ndax kooku li muy firndeele ak manam alxuraan mooy mu man koo bind ndax mënu koo wax nit ñi dégg mhm. bu nit nee mën naa alxuraan te mën a wax dañ ko daan waxal ñu dégg mu tari bu fekkee nag koo xam ne dañoo bëgg a xam ne mën naa alxuraan te mënta wax daa bokk ci li koy wone mooy mu bind ko kon nag loolu ci tawféexi borom bi la di dëggal la mu waxoon ne yombal naa téere bi mhm. ku bëgg a mokkal boo defee effort bu ndaw mokkal wal qalami asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sunu tur mooy Hamdi Moustapha Diop di jëwriñu daara ji di daarul Habib yu tahfiisil Qur'aanil Kariim wa tarbiyatil islaami wa tadriis al ulumi shar'iyya di daara joo xam ne mbooloo mu takku mi ngi fi ndax li fi nekk toll na ci ñett téeméer ak fanweer. muy ay góor ak jigéen di daara joo xam eh, dafa làmboo di jàngal ñu man a wax amit ab xaaj bu fi nekk boo xam ne ci ñu mënta wax la muy ñi nga xam ne ñoom ngi doon jëflante léegi. ci wàllu benn xaaj bi nga xam ne moom dañ fay nekk di jàng te mënuñoo wax muy ñi ñi seen borom natoo ñu mënuñoo wax mënuñoo dégg ñu leen di tudde ci réew mi muuma. li sabab seenum njàng itam mooy yàlla dafa maa natoon ki topp ci sama taaw Habibullahi eh, moom nag bi mënta wax itam teewut bi mu ma jàng it comme man ab jàngalekat laa jàpp ma ne daal. sama doom dama ko war a wàcc rek muy wëndeelu noonu eh, ma doon sabab la ci sama na ngir jéem xool nu may def ba mu jàng eh, booba it fekkut ñu am ci benn expérience wala eh, ñu xamoon fenn fu ñu jàngalee ku mel noonu waaye damaa dëgërloo yàlla rek xam ne sunu borom moom li muy def bu ko soobee mu def ko ci ki ki mën a wax waaye bu ko soobee mu def ko ci ku mën a wax ci coobareem lay defee ak kàttanam bañ tàmbalee sunu borom li ñu ci defal tawfeex ay bunt ju ubbiku xam ne ni ñuy waxale kii dal baa ne ko neel baa mu ne baa nga ne ko neel siin mu ne siin nga ne ko neel miim mu ne miim moom boo ko waxee loolu du la dégg ndax du ko mën a wax waaye nag damay jël bant bi rek teg ko ci xarafu baa jox ko bant yaar ko ne ko teg ko ci xarafu baa mu teg ca bu ci tegee ba xam ne teg na ma teggi teg ci siin mu teggi teg ci siin bu ma teggee ci miim mu teggi teg ci miim day dem ba nga gis ne boo ko bàyyee araf bu yëkkatee bant bi dana ko teg ci baa bu ko yëkkatee teg ko ci siin ko yëkkatee teg ko ci miim bu ko yëkkatee ko ci laam bu ko yëkkatee waatee ko ci laam teg ko ci hoo bu ko defee boo gisee xam ne mi ngi ko ci araf yi te jafe sewu ko rek ma eh, dalal sama xel ci ne kon li ma ko doon jàngal xam na ko. boo léegi it nga def alif laam ra xaa miim alif nuun muy rahmaani bu ko defee loolu itam boo ko jàngalee ba noppi. am na lu ñuy wax test bu ne foofu maanaam lu ñuy wax tamarin ci wàllu njàng test bi mooy alif laam jàng na ko ci alif laam laam foofu bu bu ko jàngee booba gis xam na ko dama koy delloowaat ca lam maanaam damay teg sama ban ci alif gi liyaar ko ne ko kii ban araf la bokk ci li nga weesu bu xoolee lam weesu da ngay daal di gis mu teg ko ci alif nga xam ne kon ko woo araf dugg na moom nga laaj ko laam mii nga jàng ban nga teg bant bi ci laam ne ko araf bi ban araf la bokk ci li nga weesu man bu xoolee la mu weesu nga daal di mu yëkkati ban ba teg ko ci laam nga daal di xam ne boobu araf dugg na. ci loolu ngay jàppee ne xam na ko ak bind gi mu ko bind gisu ko bu ko defee noonu lay def ci araf yi bu araf yi jàll bu araf yi jeexee ma ñëw moom ci marque marque yi kasaalika bu tàmbalee jàng marque yi marque bu mu jàngoon rek eh, dama koy delloowaat ci li mu weesu laaj ko bu mu ci bokkal bu ko defee bu xamee rek nga xam ne xam na ko. moom itam noonu la saa yu ko jàngee ba mm, moom nga jàpp ne mokkal ko da ngay dëpp lim doon jàng nëbb ko bindloo ko ci suuf mu bind ko ko bindee mbind mu aw yoon rek nga xam ne mën na ko. bu ko defee nag saa yu noppee ci loolu bu ko bindee ba noppi du ca duñ ko duñ ca yem ndax dañu bëgg mu dëkk lim bind mu lim jàng mu dëkk da ngay jox alloo ak daa mu dem toog ne ci sa kanam du yor dara du xool lim doon kii de bindaat ko noonu te du ko gis. bu ko defee moom itam bu ko bindee te gisu ko mu indi ko nga xool boo amee ay njuumte yu ca nekk nga jubbantil ko jox ko mu xoolaat ko jàngaat ko ab diir bu ko defee loolu moom lay daal di dëgg allo ji da nga koy jox mu jàngaat ko ab diir bi nga ko bindee ba noppi. bu ko defee ci lañ jaar ak ñoom di dem muy yokk di dem muy eh, yokk ba ñii nga gis ñu nekk fi xale yi am na ñoo xam ñu ngi bind sumun jàng bind sumun eh, bind bu tooy maanaam dañuy xëy jël sumun jàng ko tari ko te bind sumun moom képp kuñ jàpp ne mën na koo jàng tari ko dañ jàpp ne kooku mën naa mokkal alxuraan kon ñoom ñi am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne buñ leen taxawoo. mën nañoo wattu alxuraanu karim nga li tax ma ber ko mu far féetewoo leen damaa rafet njort ci ne sax moom mu nga xam ne mënta wax xëy na suñu boom jox ko expérience mu mën a communiquer moroom yi nga xam mënuñoo wax ci loo xam ne sax mën naa am ma am ko ci waaye naa am moom daal suñu boom jox ko ci xerañu boppam ndax suñu boom dafa dafay maye. bu ko defee nag moo tax ma féetlu ko bi muy door dama ko ci doon jàppale waaye daanaka dama mujj dama ko bàyyi ak rek. waaye moom mi ngi ciy dox bu baax mi ngi ciy avancé bu baax a baax a baax. agréé sax ñiy tari lu ma ñett dañ taral taral dañ leen wondoo ñuy tari te ku ci ne dañ la siiwër te li ngay tari dana ko bàyyi xel ba boo yàqee mun la yàq nga. li ñuy mooy day tari ci suuf tari boobu nag moom par benn baat la ma a doon ndax palaat bi yu bindee mën na jël benn baat wala ñaari baat boo fee day bind baat bi maas ko def ca laayee ak suqee la ca war ba ñu xam ne noonu la mu far bindaat ba ca topp mu far bindaat ba ca topp loolu laay wax ne eh, technologie weesu na foofu ndax mën nañoo am benn tableau boo xam ne lim jàng lépp rek bindanoo benn yoon ñu xool ko kuréel xam ne baax na mu bës bu doon rek loola far wala mu bindee ba mu fees mu bës bu doon mu far loolu am na. nag comme ëgguñ foofu itam li ñu am rek lañ jël fi mu ne palaat boobu bu par benn baat ba mbind mi àgg euh, lay doog a dem ci table table bi sax euh, luñ luñ yokk na bu njëkk daw dem ci table daan jël ëlloo dem ak daa dem bind ko ba mu àgg mu indi ko ñu corrigé ko ñu corrigé ko xool yi xataa mu kii waaye léegi table bi. Eh, mën naa taxaw nii nga xool mu daal di bind li mu bind lépp àgg nga war ko yejee ay njuum te mu defar ko nga jàll ci keneen waaye loolu moom bu amoon jumtukaay yoo xam ne moom moo gën a dëppoog njàng mi daal yaakaar naa njàng mi dana gën a yaatu dana gën a gaaw dana gën a yokk waaye nag eh, gannaaw dañuy nab nab yi itam fi ñu toll rek la ñuy tolloog moom di dox nànk-nànk ba bañ koy weesu. loolu itam jullit yi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw war nañoo bàyyi xel loolu ba eh, créer fi siège social goo xam ne. ñoo ñi nga xam ne dañoo war a jàng te mënuñoo wax te bëgg a jàng te seen wayjur attanuñ ko ñu jàpp leen ci loolu kon jullit ñi nga xam ne mën nañoo jàpp ñooñu dañoo xam ne am nañu fi nekk ñoo xam ne wala ñu bëgg a ñoo xam ne ci muuma yi seeni wayjur amuñu euh, kàttanu man man leen a fayal waaw loolu ku ci mën a jël sarti loolu moom dana am solo lool na am na ci wax ni bind yaakaar na inna kasiran la toll nga xam ne moom lee mu wàcc kooku ci ñi ma lay wax am na ci ñaar sax kenn ki mi ngi wax la mu kenn ki mi ngi yéen a am ñooñu ku ci nekk mi ngi jàng bind sumun te ragal nañ ne bu ñu wàccee it danañ mën a mokkal. waaye kon lii ku ko gis rek mu doy sëkk sëkk sëkk gis lu yéemeeti eh, ak xereñ goo xam ne borom bi subxanahu wa taala defal na ko nit. waaye jàppandil gu mu ko jàppandilal xéewalu euh, man alquranul karim sëñ Mbàkke bala ma laa jox gannaaw mi ngi ci ginnaaw moom mi doon bind ak way juram di sañ Abib sëñ di Jóob euh, ki nga xam ne moo doon bind noonu nekk ki nga xam ne mooy sëñ Habib Jóob damay bàyyi ñu jóg taxaw ñu jóg taxaw ba ñëpp seen leen bisimilah. Euh, sëñ Mbàkke ñu lay fàttali ne moom bokkoon na ci ah, première édition bi yaatal bind alxuraan fii la war a ñëw mu nekk lu am solo ndax jëmm ji ngeen gis muy Serigne Abibulaay Diop euh, première édition yaatal bindu alxuraan bokkoon na si daanaka demoon na ba final bind roba joo xam ne dafa set wicc amul benn yàq te loolu tey boo ko boo ko tegoon caméra rek mu testé nga gis ko da koy bind te benn jëpp du tëb benn araf du gëmm def na ko première édition bokk na si dem na final waaye li nga si mën a dégg rek mooy nit ki dafa war a def rek li ko war waaye si ngay dégg it ni arrahman allama alquran maam al alquran yàlla moo koy jàngale sëñ Mbacke kon dañ ciy toftal beneen vidéo rek bu gàtt boo xam ne eh, day wone exposition bi nga xamante ne romb ngeen ko waaye day wone itam mbind ak solo si nga xam ne moom la am. wal qalami wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi leen nuyu di leen ziar di leen bal aq di leen bal aq gannaaw loolu compagnie Serigne Seck Sénégal mu am liggéey bu am solo boo xam ni indi na ko ci yaatalaan mbindum alxuraan xam ngeen ni nag am na taxawaay bu am solo boo xam ni def na ko ci liggéey boobu fukki fan ci weeru avril 2022 mu war a tànn ay tout tànk yoo xam ni liggéey nañu liggéey bu am solo ci mbind mi ngir war leen sargal ci grand loolu nag tax na bi liggéey boobu amee ba noppi am na ay yitte yu yoo xam def nañ ko ci ngir delloo siwaat cosaan ngir mën a dem wëri ko mag ñu baax ñi fi nekk ak liggéey yu am solo yi nga xam ni daan ko liggéey mu jëm ci biir alxuraanul karim naka noonu àlluwa yi xam ngeen ni képp kuy jàng alxuraan ci àlluwa ngay tàmbalee ba mokkal bind ci beq ci ñu soog laa jox kayit nga soog a mën a tàmbali mbindum kaamil loolu nag tax na ñu liggéey ci liggéey am solo ba xam ni képp koo ko gis da nga xam ni kon alxuraan jàng la waaye bind it mënta ñàkk loolu tax na it ànd nañ ak liggéey boobu ba liggéey ci liggéey yu am solo ci fan yi nga xamante ne si moo tolloog fukki fan ci weeru avril de ci Grand Théâtre naka noonu it loolu lañ fas yéene it wéyal ko ci liggéey bi ci fànn yëpp ba nga xam dana matale ci fànn yëpp loolu it tax na mag ñu baax ñi nga xam ni nekkoon jaaroon nañ fi te liggéey ay liggéey yu rëy ci biir liggéey boobu ñu mën cee tudd mag ñu baax ñu tedd ñu sell ñi ku ci mel ni Maam Mor Anta Sali lii ñu jàkkaar lool am mbindam la moo xam ni moom it moom moo ko bind naka noonu Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul it mbindam mooy tomb ñaareel bi ñu jàkkaar ñu fas yéenee barkeelu naka ñooñu it suñ Moustapha Diop Massamba xaridaam moom liggéey na ci liggéey bu am solo ku mel ni Cheikh Mamadou moo ci topp moom xam ngeen ni ab kaamilam yaatu na lool ñu ngi koy gis ci fànn ci ci biir ba bitim réew ku ci mel ni maam Thierno borom daaru it moom it jàngale na bind na moo taxin mbindam mi ngi fi ku mel ni sëriñ Abibu Mbàkke imam moom it mbindam moom lañ jàkkaarloo nii ba tey ku ci mel ni sëriñ Fàllu Mbàkke sëriñ Chouaïbou moom it na ci mbind moom am na ci liggéey bu am solo bu mu ci def ku ci mel ni sëriñ Abdoulaye Jaxate moom it nekkan ci kenn ci magi sëriñ bi moom it mbindam moom lañ jàkkaarloo nii ak ku ci mel ni sëriñ Chouaïbou bu radiyallahu taala anhu wa nafaana barakaat yi ku ne xam ne ku sëddoo alxuraan la ku fasoo ku sosoo alxuraan la ku ko fasoo woon ku ci daan liggéey liggéey bu am solo taxawan ci di jàng ak di bind ku ci mel ni it euh, sëriñ Issa Gueye moom it mbindam am na fi moom lañ jàkkaarloo nii ku ci mel ni sëñ Cheikh Boussa Afé it moom it mbindam moom lañ jàkkaarloo nii. naka noonu it mbindum sëriñ Issa Gueye moom it euh, am nañ ko fi moom ngeen jàkkaarloo mbindum sëñ bu sa Afé moom it am na ci moom lañu jàkkaarloo nii mbindum Cheikh Massamba radiyallahu taala wa nafaana barakaati ku ne xam na nii ku farlu na ci bind moom it wax dëgg yàlla mushaf bi moom moo ko bind ci loxoom ak euh, sëriñ Mbàkke Kanni Busa moom it alhamdulilahi rabbil alamin li ñuy barke jàkkaarlool nii moom moo ko bind sëriñ Abibullahi Mbàkke moom it mbindam mi ngi fi moom ngeen jàkkaarlool nii sëriñ Jóob Maree Maddaam moom it mbindam moomu mi ngi noonu ñu jàkkaarlool sëñ Cheikh Jaxate Tindóodi moom it mbindam mi ngi jàkkaarlool lenn la ci mag ñi nga xam daan nañ bind alxuraan ku ku ci mel ni ba tey sëñ bu sa imaam moom it mbindam mi ngi nii nekkoon ci mag ñi nga xam daan nañ jàng alxuraan di ko bind di ko bind soxna may Mbàkke Kabir bintu Seexul Xadiim moom it xam ngeen ni mbind mi moom moo ko bind di mu saf bu rafet bu am solo boo xam ni ku ne xam na ni sëriñ bi yaroon na njaboot gi ci jàngal alxuraan waaye yemuñu woon ci jàng rek waaye dañu daan bind ba tax ñuy di am saxaf la boo xam ni moom itam soxna May Kabir moom Cheikhul Khadim moom moo ko bind. naka noonu it mbindum sëriñ Amsatu Jaxate moom it mi ngi nii ñu jàkkaar lool mbind mu rafet mu am solo moo xam ni wax dëgg yàlla ku ko xool wax dëgg yàlla dina mat barkeelu sëkk sëkk sëkk sëkk ci mbind moo xam ni mu xippi la mu xool la waaye mu am solo la moom it. naka noonu it sëriñ Mamour Anta Sali ba tey moom saxaf bii moom moo ko bind moom lañ jàkkaar lool nii di ay barkeelu yu am solo yoo xam ni. compagnie Serigne Seck Sénégal def na ci liggéey bu rëy ngir mën ko am ngir mën koo gaaral nit ñi bañ mën koo gis ba mën cee barkeelu xam ni alxuraan moom jàng la waaye bindit dañu mën a ñàkk ndax ala kulli xaalin wax day dem waaye mbind moom day des. naka noonu it jaafara yi xam ngeen ni ci jamono yi mag ñu baax ñi képp ku ci mës a bind alxuraan kaamil rawatina kaamil ba topp ko ba mu set ba mu rafet boo ko waree jébbal sa kilifa danga nga daan wut jaafara defar ko ci ëw ko sulli ko dessin ko ba mu rafet wax dëgg yàlla nga soog koo yóbbu moom lañ leen di wanoon ci image bi nga xam ne kon alxuraan moom faw boo ko jàngee ba mokkal ko danga koy bind mbind mu rafet ñu topp ko defal ko ay defukaay yu am solo yu mucc yu am solo bokk na ci jaafar bi xatt ko defar ko ba mu rafet moom tamit moom nekk noonu ñu leen di woon ginnaaw euh, kàddu yooyu ak leeral yooyu nga xam ne indi nañ ko mu jëmoon ci wàllu liggéey bi c 3 ngi gërëm di sant mbooleem këri jullit yi ak mbooleem këri diine yi nga xam ni xataayu jamono ak tolluwaay bi tax na mënuñu foon yegg waaye yéen ji ñu amoon mooy wër kilifay diine yëpp kër gu nekk ñu dem fekk fa mag ñi liggéey bu rëy ba nga xam ni liggéey nañ ko ci alxuraan mu jëm ci wàllu mbind ñu indi ko mën ko woon mboolem jullit yi ci biir réew mi ak waa bitim réew waaye nag kon dañ leen jox dig daje men at mi jublu incha allah yàlla nañ ko fekke ak jàmm te tal ko bañ mën a yaatal suñu mébét ak suñu yéene ci kilifay diine yëpp ak liggéey alxuraan ba mu baax bokk ci organisation scientifique moo doon def Euh, fi ñu ko waajee ak cérémonie bi moo jigee waaye incha allah ni ñu waxee yaatal mbindum alquran fu fu mag bindee wala fu nit bindee ak fu mën a nekk ci Sénégal bu ñu fa amee accès incha daa ñu ko jëli gaaral ko gaaral ko mbooloo mi mu nekk lu am solo loo xam ni li nga siy déggee Sëñ Mbàkke mooy euh, taarix baax na il faut nga xam taarix wax dañoo ne laysa bi insaanin wala bi aqili man lam yaani taarix fi sadri nit bu xamul histoire am mënut nekk nit il faut xam sa histoire waaye li nga siy déggee itam mooy Euh, mag ñi liggéey nañ bàyyi lu ñu mën koo gis. Euh, mbokk yi seetaan ngeen vidéo bu am solo boobu dégg ngeen ci ay turi mag ñu bari ñoo xam ne seenu mbind jaar na fi te seen i jëmm dem na seen i wax it mën naa am dootuñ ko dégg waaye seenu mbind tey mën nañ ñu ko woon loolu nag day dëggal li mbokk mi doon def reportage bi wax ne ay wax day dem waaye bind day des. moo tax euh, loolu ab soññewaat la bu baax a baax boo xam ne dëggal na li ñuy def nii wane ne lu am cosaan ci réew mi la boole yi ci la bokkoon sëñ Mbàkke waaw moom day boroom xam-xam yor daara Touba yor daara Xayra Jaaga bokk ci itam commission scientifique bi am am liggéey bu muy liggéey bu bu bu am solo Serigne Saliou Sall moom dañ ko wax ni ko nañu ko gaaral rek ni ko mag ñi daa indee bu nappee ñu xool nag lan lañ ci rek Serigne Sall kon mu mel ni daa wax dañuy jéem a feeñal liggéey mag ñu baax ña ngir gaa yu baax ya xamle leen te wéy leen dana waral seeni saxaaba leen su dul ko nag ñiy bind ngir yiraaf na su dul ko nag ñiy tari xam-xam daay na su dul ko nag ñiy yeete gaa ya dootuñu yeewu abadan ba xëy buur kon mu mel ni jàng ak bind ak yeete ñoo mas a ànd naka jekk ci ay wolof tey nag ñu bëgg leena indil ay tur ca mag ña nga xam cam ña tur ya mag ña daa wooxee léeg-léeg ci yennati arafi alquraan yi ñu di leen njëkkeel lañ daan wax gumaalo gumaalo aw tur la ci xarafi alquraan yi naa ko tur la ci xarafi alquraan yi mboccoor tur la ci xarafi alquraan yi combañ tur la ci xarafi alquraan yi réedu tur la ci arafi alquran yi wéttéer tur la ci arafi alquran yi ndégal tur la tur ci arafi alquran yi xaaf tur la ci arafi alquran yi ngaax tur la ci alqur arafi alquran yi jorngel tur la ci arafi alquran yi yolaale tur la ci arafi alquran yi ngeen tur la ci xarafi alquran yi mawni tur la ci xarafi alquran yi jaraan tur la ci xarafi alquran yi gëkk tur la ci xarafi alquran yi laañ tur la ci xarafi alquran yi tongu it tur la ci xarafi alquran yi laam debbo tur la ci xarafi alquran yi laam góor tur la ci xarafi alquran yi léwru tur la ci xeetu maaska yi sawru it tur la ci xeeti maaska yi ñu ngi jéggalu nag bu baax fi ñuy njëkke mooy gumaalo mooy xal kubéer mag ñi dañ daan wax naan aha gumaalo samaana ha ulaa i naayo naayo moom ñeent la ci pulaar ha ulaa i naayo la seen a yaar njóogu la ak laxaraaf na laahu xalay naa nga lan xaam ha ulaa iyaakum saba in ha saa yaar lan bilaak furxaan haa kasaa nga haakasaa nga nëm li ahaana ni nga wal fajri kon loolu mooy gumaalo ñu ñëw ci mboccoor mboccoor nag day ñaari baat yu jege te wuute mooy wëskuroo mboccoor am na saaki dogi mboccoor am na wëskuroo mboccoor lii laan lillaahi laan wëskuroo niimatalaa yi gën a li wëskuroo loo yaar an kat botik saba in mooy wëskuroo ji nga xam ne bokkut ak ci ji ñuy wax laañ laañ mooy deel ju tooy réedu hit combañin am na moon lay wax masaa combañ masaa batan laan minal masaani yi nga hijjiri masaani hatta xasayiroo nga sumbar yooyu mooy combañ combañ moom ñetti ñetti tomba lay am ak benn bëñ mooy combañ réedu mooy saat dañ daan wax naa réedu ndaanaan juróom maa ngi nag fu ñu daan wax ndaanaan rek dañ lay wattuloo baat boobee te xam ne baat booba mën na laa daane reeɗum ndanan juróom saldan lan suddoɗen jiguen saddiɗen birim sulliyan mare min bayni sulbiyenge tarete moom lañ daan wax naan reeɗum ndanan ñu ñëw ci wetteer wetteer mooy xaadem dellu yes xa wetteer juróom waaw mbóore laan faa mbóore baraan waaw laaya baam kamaata laaya hóot laa yes xara caatum hujuraat mooy yes xa wetteer xay ndégal mag ñi dañ daa wax naan jékk ci dégal tey nga ne wét jékkub dégal tey nga ne wét baat bi dafa yomb def lool ay ndégal mu ne yej ma a baraan fa ma xaw naa nga lisraay muq ma a jaal mbuqata yi mun njombaan fa la xataamal nga balat ñu ñëw ci baatum ngaax mu ne ngaax sidd jéeri ngaax goo xam ne day sidd ca kaw samaana ngaax sidd jéeri samaana an yet saalaxaa nga jigéen tahassuna nuur xusiyeeg wa xasa yépp xasas mu xasirina fati mu hasanatin hasri saa xussatin musammil wow silaa nga adiyaat jor ngel mooy siin su wow mu ne jor ngelam ndaanaan wa ifama laqu israafanaa laan israafan galaay falaa yusrifaa nga njengelam yusrifoo furqaan xul yaa hibaadiya lasina asrafoo nga sumar ñu ñëw ci ngeen ra ngeen mooy raa goo xam ne dañ koy tomb arab yi di ko wax zaay fekk ñun nag raa siin lañ ko daan wax mu ne doom si la ngaari mag ñi nee nañ bokku leenu bindiin manaa si la ngeen yaar kooku yónus la ak jaal fata si laa nga naali mu ne kooka ngeen la baaxoo an na si laa nga tey mu ne laañ gaa fay daan daw mad madd si la furqaan mu ne taat gaa fay daan daw waxu si laa nga aadiyaat mu ne réedu gaa fay daan daw maw ni mooy liif gu rëy liif gu rëy dafa am liifa gëkk am jaraanit am comme sama xel mi hmm? ah, waaw kon léegi ñu ñëw ci li laam góor ak laam jigéen laam góor mooy ilaa ma laam debbo wala ilaa laam debbo laam jigéen it mooy lu mel ni ilal ardi am laam debbo jigéen songi góor ilal ardi kulluhum ilal asxaanee nga jaal ilal liimaanee nga xafraan ilal islaamee nga safi ilal libilee nga xaasiya moom mooy laam debbo jigéen songi góor ilaa ma laam debbo nag wala ilaa maa laam debbo sàppo la ilaa maa an salallahu yaar jigéen ak njóogu ilaa maa an xéekum xóot illaa maa udriftum lën bi illaa maa xalaxaa nga nahli illaa maa amiloo nga furxaan illaa maa bayna sabayin illaa maa kuntu mursalaat wasalaamu aleykum wa rahmatullah macha allah macha allah jaar na tàccu ah jërëjëf allah sëñ Mbàkke eh, sëñ Mbàkke am na solo lool macha allah sëriñ Saaliwu Sàll mhm. eh, boo gisee ne wax rek nga xam ne mu ngi dund alquran fi mu ne ma nga sax ginnaaw xel koom xayra jaaga foofu la daaraam nekk eh, ak Touba mu xarale si nag lool lool lool lool xam naa dañoo mos a tuuti sax waaye li mu bàyyi moom. Eh, dama yaakaar ne bis bee xat waaye kon dana gën a yéeme suñ eh, Serigne Mbacke. macha allah am na solo lool loolu bokk ci li nga xam ne eh, mook alxuraan a ànd ci réew mi ci njàngin mi. Mhm. ndax baat yu nuroo yi. ba noppi làmmiñu wolof wax ko yombut. Mhm. léeg-léeg mu boole yëpp di ko waxee nenn te xàmmee ko day jafe. waaw li si xaw a yéeme sax léeg-léegi am ko ni la boo jàngee grammaire soxla woo boole. fekk na alxuraan laajul loolu. Mhm. fi mu doon tey lu mel ni sanadu zabaniya maam yaagoogu li tax ñu dagg ko mënoo ko génne ci grammaire tey loolu yàgg mumaarasa alquran moo la ci génne waaye kon nekkul ni boo mënee grammaire rek di nga am yoo xam waaye am na loo xam ne fokk mag ñi sax la ko nga doog koo xam ñu mbàkke ñu fas ci yéene def rekk ay bayit yu gàtt insha allah bismillahi rahmaani man wuy si naa la bàyyi sëriñ seen bis bi làq nay njariñ yaatal na mbind ci xereñ dekkal na bindi alxuraan man wuy si la bàyyi sëriñ seen bis bi làq nay njariñ yaatal na bind ci xereñ dekkal na bindi alxuraan mbind mi tuuti kon mu xalima damm daay seey te mbind nag warulanaay moo tax ñu jot ci alxuraan mbind mi tuuti kon mu saay xalima damm daay seey te mbind nag warul a naay moo tax ñu jot ci alxuraan bu dul ko nag bind ba tey duñ jot ci njàngaleem ñëwey xam nga ne bind tax ba tey nuy jot ci téere alxuraan fun tuddee téere bind tax sun bind loon téere du sax waree fu koy bàyyi mu lax nan fonk mbindi alxuraan àllama tekk bil xalam kuy jàng war na caa xalam sug wattu rek doyoon du lim xalima laajal alxuraan joo leen xalim yi loy yi feeñ bu dara damm ak di looñ mbind na reew te bu mu tooñ mag ñaa ko wax ci alxuraan tey see teg na daa te woona bépp candidat ngir nee ñu yaatal mbindi daa ci jëpp daaray alxuraan te 3 s teg daa te woo na bépp candidat ngir nee ñu yaatal mbindi daa ci jëpp daari alxuraan daa daari cosaan war nañu delluwaat cosaan njurbel ba kokki gaaña daan daaña ñu bind alxuraan gis nañ fi ay kaamili maam yu kenn du folli fii ba saam te ñépp it xam nañ ne daam fonk na mbindi alxuraan société bii koy taxawal woo ko def woote ko def ci ay alal gox yépp jóg di ko ñëwal taaral na mbindum alxuraan te c 3 tax na tey donga yi sot xalim yu xëy di fàggu daa di bindi loy bis bi sagal na alxuraan alal julew ji mu ci def yelloon na kañ ci jooje jëf kon C3S jërëjëf yaatal ngi mbindi alxuraan allahuma salli ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman jërëjëf ahmadou baas ñu tàccu ahmadou baas bu baax jërëjëf sëñ Mbàkke defe naa dégg nga baas bàkk yu am solo yooyu nga xam ne indi na ko waaw waaw jaarale ko ci wàllu taalif macha allah te xamoo way itam day kon ma ngaa wax kii suñu réalisateur sëñ Mbàkke mu am bu mu waajal vidéo mhm. ah, Serigne Mor Diop parrain bi sëñ moor Diop moom nga defee itam ni mu wax si bind macha allah ci taalif yi am na solo xama way moom dafa dafa yéeme ina mina chehri la hikma waaye boo ko déggee dafa am lu mu lay lu dafa am fu mu lay yóbbu ndax da lay mën a dajaleel eh, ay maanaa yu bari ci ay bayit yu gàtt. foofu la ñu duggee ci sëñ Mor Diop moomu nga xam ne moom la tudd léegi nga xam ne mooy invité d'honneur bis bi. Eh, ñi ko ñooy mbokk yi nga xam ne ñoo toog nii te teg eh, maanaam kaala yu soon yi ci seen i ci seen i mbagg. ñoo ngi leen di dalal bu baax a baax ci jotaay bi. bala ñoo jox ki nga xam ne mooy yëkkati kàddu ci turu délégation bi di docteur Malick Diop dañuy seetaan. vidéo boo xam ne euh, waa organisation def nañ ko ci ki nga xam ne mooy Serigne moor Diop. ndax euh, li mu toll ak li mu liggéey ci alxuraanul karim feeñal ko ci ay kàddu mën naa jafe te ñi bëgg a jël kàddu ci ñi ko xam ñëpp it mën naa jafe loolu lañ jéem a tënk ci euh, benn vidéo reportage boo xam ne moom la ñuy seetaan buñ ko seetaanee ba noppi door a ñëw nag déglu ki nga xamante ne mooy wax ci turu famille nitu yàlla kooku nga xamante ne lii ñu doon def wala lii ñu fi teew moo nekkoon liggéeyam mu jeexal ci dundam gi yëpp. ci jàngale téere borom bi subhaanahu wa taala xaadimul quran bi mu làqoo yàggul ab liggéeyam des ba léegi formé ak njaboot goo xam loolu mooy seen yitte euh, sëñ Moustapha Diop nga xam ne moom moo jiite jury bi doomam la mi ngi ci mu ngi si liggéey bi wal bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy teewlu fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi fii ci ndar ci daara yi Serigne Mor Diop mi nga xam ne kaana xaadiman lil quran liggéeyal alquran liggéey bu am solo mokkaloo fi ay junniy nit ci alquranul karim euh, waaye itam yar fi ay nit ba tey ñu yor ay daara yu bare bare bari ñu ñëwoon fi nag tey mu nekk invité d'honneur bu cérémonie bi nga xam ne ci lañ war a teralee ñi nga xam ne mooy ñett ñi jiitu ci concours yaatal mbindum alquran bi nga xam ne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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم sadaqallahu alazim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaakaar naa doy na sëkk rek nga ne ki jëloon lauréat amiru shuara di Mouhamadou Lamine Diop ci daara ji lañ ko tàggatee yaakaar naa doy na sëkk rek nga présenté ko waa àddina concours la boo xam ne international la àddina yëpp daje fa raw gàdd ko ki ko jëloon ci daara ji lañ ko lañ ko tàgg lañ ko tàggatee tey nag ñu toog ak xalifaam muy sëriñ ahmadul xayri Diop war waxtaan nag Euh, yéen ci lu jëm ci sëriñ Mor Diop dundam ak daara ji nan la sosoo ak ba fi mu agsi nii tey. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fii mooy daare Serigne Mor Diop. Serigne Mor Diop di ko xam ne kii njàmbur njàmbur la dëkk. njàmbur la bàyyi ko woon. ñëw ndar. waaye sosowu ndar. bi mu bàyyi ko njàmbur ñëw ndar doon seet si. way juram nijaayam ku ñu daan wax Serigne Jibril Diop. mu ñëw seet si ko bu mu dikkee am fi ay fan xelam nekk ci yeweeku delluwaat waaye mu xool nijaayam daal mu wéet lool. fekk na boobu sax tàggoo na sax ba nijaayam jàppal ko bis gannaaw gi la dellusiwaat ci nijaayam ne ko man de nijaay damaa amoon xelu toog damaa amoon xalaatu toog wét li la. ndax dangaa wéet. Mhm. nijaayam ne ko ah boo ko defee de moo gën. bi loolu amee it. nijaay ji xam na ne kii jàngane na te xam na ko. mu jël leen ci njabootam jox ko. nee na daan def bu jàngalee alquran ba wàcc. daal di dem jëli xam-xam maanaam jàng ay dër si xam-xamam. balaa trois heures mu dellu siwaat nekk ci xale yi. jàmm gën googu it fa la tàmbali dëgg-dëgg am daara joo xam ne daara la bi maanal kalima. ndax fee mu njëkkoon a nekk moom kër la woon. waaye nag fii nag moom mooy daara ji ma ndax daara jooju ñu bëree bëri jàng nañ fa. te it ju yàgg joo xam ne sëriñ kan yàgg na fa lool. gannaaw bi ñu fa jógee nag la fa sëñ Mor toog ci ndigalul nijaayam ji ñuy wax sañ Jibril Diop. Mhm. foofee daal dëgg-dëgg moom. Mhm. mën nañu wax ne sax fale daaray alxuraan ji sosoo. Mhm. ñoom amoon balakoos di ko fa fekk si. waa koñ bi it di jàng si. muy dem ba mu yàgg mu commencé di am ay dongo yoo xam ne ay dongo yu ajoor lañu dañuy bàyyi ko ci bitti ñu war a dëkk si ci daar ji di jàng alxuraan. at mi mu ko sos itam. dégg naa ko lu bari muy wax cinquante deux. Mhm. daara yi sëñ Mor moom dañ daan boole njàngum xam-xam bi ak njàngum alxuraan bi xale bi tàmbalee ndoo ko wala ban la ci njëkk a tàmbalee. fii itam comme daara yi ci des rek dañuy jàng alxuraan ba noppi. Mhm. a tàmbali jàng xam-xam. Mhm. ndax loolu xam nga mooy méthode bi nga xam ne la mag ñi xamoon. moo doon doxinu daara yu njëkk yi. jàng alxuraan ba pare bu fekkee da nga mokkal. nga jàng fekkee dem nga xam ne yow mi doo mokkalit nga war a jàng xam-xam nga jàng xam-xam mën nga ñëw dikkal ci yitte woogu sëriñ Mor yitte woon xam-xam waaw sëñ Mor day ñëpp xam nañ ci moom bëgg gu bëggoon lool xam-xam moom moom lu mu mas a lu mu lu mu mas a jublu mhm. xam-xam moo ko ci gënal macha allah moom dafa maa mas a wax ne ma gis nga nag ndax dafa am benn bis boo xam ne kenn ci njaboot gi mhm. ba ma demee man ba yëg ne moom mii kat xam naa ne xelam mhm. du war a mën a mokkal alxuraan war naa jàng métier war naa jàng leneen bu ma dikkee wax ko ko dana ma gis nga Ahmadou man de xaw ma lenn lu dul xam. boo xamee leneen nag bay boo jëmale ko ci waaye man xaw ma leneen. maanaam moom di daan def mu taala mhm. foo ko fekk yaa ngi da koy boole di bind nag. Mhm. yenn saa ci ay masaayal yoo xam daf koy bind def ko ci kayit. Mhm. bàyyi ko ci biir téeram. bëgg xam-xam lool. daan soññ it xale yi ngir ñu sàkku ci xam-xam. rawatina ñi mu jur nag. ndeysaan moo tax ñi mu jur mën naa la wax ne la. daanaka ñëpp. kenn ku ci ne mën ngaa taxaw taxawaayu imaam. bokk na ci li ñu tax a ñëw. mooy mbind mi mbind moom ndax daara ji mi ngi ciy wéy ba tey comme ni muy wéy ci mokkal gi. waaw moom day li am te am mooy jamono. léegi xale yi jàng. dañ leen ne seen wajur dafay ne yàkkamti. àddina yàkkamti leen. moo tax njàng mi di gaaw lool. ndax bu njëkk. da nga naan gis dong boo xam ne am ci daaru lu ñaar fukki nga xam ne day tàmbali jàng tey commencé jàng bind tey. xale bi daan tàmbali jàng tey commencé jàng bind tey. léegi dafa am ay jafe-jafe maanaam xale yi seen i waajur dañu leen a yàkkamti. waaye nag teewul nag ba léegi. ñu ngi sàmm mbind moom maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi bind. di beqi di jàng bind bu baax di beqi bu baax ba léegi mi ngi am ci daara ji moom. te mbind mbind moom mooy li nga xam mooy saxal alxuraan la. ci gàttal daal sëñ Mor daal. li ma ca xam moom mooy léppam mooy diine. ak jàng xam-xam alxuraan ak xam-xam Farimata Seck moo jur Amadou Farimata ak Thierno Farimata Seydi Hadji Malick ak Sëñ Touba dëgg la muy sëtu Seydi Malick euh, Seydi Hadji Malick ak Sëñ Touba ci wàllu loolu nga wax ci wàllu tàggat nit ci mbindit bu la jàngalee bu déglu la man déglu na ma fii ma tàmbalee 9h maanaam mu toog di ma déglu may tari maanaam ba 4 heures maanaam ma ne minal jinnati wan naasi allahu akbar waaw booy bind itam bu lay beq di tàggat mhm. boo bëggee xooli kaamil benn baat booy agité war naan nii la ak nii la danaa defale jooy ñu corrigé la <laughs> dafa lay jàngal ba nga mokkal mu ne la léegi man nit ki ko jàngal mu tukki moom seede da ngay dem ci keneen beneen kaang mm. mën alxuraan ci ndar mm-hmm. maanaam ñoo ngi daan bokkee oculaire ci kër Alaaji Moodu Jum bu ko defee boo ne bismillahi rahmaan alhamdulillahi mu ne biyam fasado njeego karaxada julli kaw bi lan waan rabbi kullihim dubbi mbargaan dawaa bi kullihum lahu bil xëyri ca aadiyaat nga ne lamaa yi nga xam ne duñu sàdd mhm. te lamaa yi ëpp na ay téeméeri téeméer mhm. mu ne lamaa yi tafajaru ak lamaa yi sàqu ko lamaa yi habitu yëpp a nga mbar njaay lamaa aatay naa ko ma nga imran lamaa yu loowu fi yanno ma nga xóot lamaa jàmmewo nga jaal lamaa mataawoo nga soxrifa lamaa takkumoona ak lamaa taxayuroona yëpp nga xalam lamaa aleha taarix allah bi may tàbbi si loxoom sama papa di ma indi si moom mën naa ne booba xëy ay juróom benn at si lay toll mhm. nekk si moom ci ëttam mu jàngal ma yar ma teg ma ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu baax wi mhm. alxuraan moom yàlla def na ni teel naa ko géeju mu doon jur woo xam ni sama jur dafa nekkoon ci moom ci daara ji mhm. jàppale ko ci daara ji booba jàmm gën metti na sëriñ daam Diop mii nag mooy way juru Mouhamadou Lamine Diop mi ngeen xam tamuy amiru shuara ana yan kàddu yu seere nga mën a indi ci sëñ Mor ki ngeen may laaj mooy sëñ Mor man mooy sama lépp dafa mm-hmm. mel ne sama way jur jur la def ci man mm-hmm. waaye lu dul moom sëñ Mor moo ko def ci moom ndax dafa doonoon na jaayam la woon waaye xaritam la woon mm-hmm. daf maa waxoon ne de man de fi mu toll nii damay mag yaay sama wértal fii maa ngi fekk maa ngi dund moom mënu ma laa jox sama dund waaye nag bis bu fi jógee am naa sama jabaar bu nekk ndar moom laa la jox moom laa bëgg dem ci moom mu yar la. 70 ba léegi amul fenn fu ma yend wala fenn fu ma fanaan li muy dund te du du kilifte fa moo fa moo fa teg. ndax euh, bépp dong boo xamee ni sëñ Mor moo la yar. du gisee ci yow ni da nga war a nekki boroom xam-xam ëllëg sëñ Mor du xaar say mooy say waajur moom mooy jël alalam mhm. def ko ci yow ngir nga nekk boroom xam-xam te am na ñoo xam ne sax sëñ Mor ci boppam mooy moo leen daggal biyee avion pour ñu dem ndax bi ñu demee amuñu woon bourse mhm. waaye sëñ Mor moo leen moo leen fa yoroon alliwa bii mu yor mooy alliwa gi sëriñ Mor njëkkay tee jàngale ci alxuraanu karim man la jëkk ba topp ci sama benn jarwaay bu ne ci koñ bu ñu wax Ablaye Ba topp ci sama mag euh, soxna Ami Diop topp ci suñu dëkkandoo bu dëkkoon fi maam Fatou si suñu jigéen ñu ñëpp yàlla dogal na ñu ngi fi ñu la nga Dakar ñu la ngi fii mu na nag barab bu bu barke la bi mu dikkee ci daara ji nag coono bu ne jànkoon di nag fee moom mhm. waaye mu muñ ngir yàlla rek tax mhm. inna allaha ma sabirina yàlla ko wax mhm. nee na daanaa fi toog ay fan duma añ nee na mu mujj daanaa fab ceeb di ko def ci pot yi di ko gëj fal bàyyi ba xale yi dem ma yii ko bala ñoo dellu si nee na nee na tegale ñetti weer di ko woor ca la koy sabab mooy ñàkk lekk ma xam ne bu ma li gannaaw duma ma lekk bëccëg mën naa ma wa far woor gannaaw fi ñu jaar yëpp tey daara ji ñu toog tey boo ñu doon wax fu mu tàmbalee ak lu ko indi lan lan nga ñuy wax bismillahi rahmaani bi dafa doon ku ku yitte mm-hmm. moom toolam ci lislaam da ko yemalewul fànn mm-hmm. moo tax bokkoon na ci ay yitteem yaatal liggéey bi defal na ay daara ci wërsëgu boppam ah. bi ma jàngee man ba yor ay lijaasa ñibbisi ci senegal bis daf ma wax ne ma dama bëgg a dem Touba te tey sëñ Saliou laa bëgg a giseel. est-ce que. daan ne sëñ Muntaxa nag masoon nañoo tase Louga. ñu nuyoo foofu nag sëñ Mor ne na mu ne ma sëñ Mor yitte joo am Touba dee ma ko wax. ma ànd ak yow di ko dox ba mu sotti wala ñu ànd tële. allahu lii dama waxoon keroog. ba ma fa jógee ñibbi ndaar may xalaat waaw man jan yitte laay laa war a wax sëñ Muntaxa mii nee booba rek la dugg ci sama xel liggéey bii ma yaatal ko ba yóbbu ko Touba. kon keroog ba mu jógee ne dafa bëgg gis sëñ Saliou dafa ñëw mun taxaa booba ñu ñu maa ngi ànd ak moom. Mm-hmm. ci saasal daal di moom sëñ Muntaxa daal di wootee ci kër ga. bañ demee sëñ Muntaxa ci boppam moom présenté sëñ moo Mor sëriñ Saliou wax ko lu muy def ca ndar léggéeyam bi ci diine ci alxuraan ci yoonu sëriñ Touba bi. di ko ko wax ba sëñ Saliou am mbégte lool sëñ moor doo di agsi moo doo ko agsi nag tàmbalee wax moom ne ko Mbàkke di ndar laa summi ko woon di fa liggéey booba ak te yàgg na dem naa nag ba jeex naa waaye dem naa ba xam ne fa waaye liggéey la yàlla Tuubaa yi gën a jekk moo tax am naa yéene ñëw futti ko ànd ak yow sa wii nga nekk liggéey li la bis dikk na fi moom sëriñ moor ñu toog ba guddi kar sedd mu ne man nañu ànd wër barab bi ñu ànd wër ko ba mu yàgg mu toog ci pénc mi jublu penku ne ma Moustapha fii mooy Babou Rahma ma xam ne kii mi ngi ci xaal mu ne ko dama nga ñaanal ma lépp lu ñuy xamlu ci xam-xam bu am njëriñ barab bii di ko xamle mu ne ma insha allah alhamdulilah ñu ngi fi jàng alxuraan di ko tari. am na fi daaray góor am na fi daaray jigéen. alhamdulilah àgg na ci ren jii sax ubbi naa collège boo xam ne ñi fi am certificat mën nañ caa jàng continuer jàng. te it dama ñaan la woon sëñ Mor ba tey mu laa teg sama kanam. incha allah bëgg naa loolu mu wees foofu ab lycée na fi ñuy am bac bëgg naa sax dem sax ba ab faculté di bànqaasu université na fi. yëpp ñu ngi sama bopp bi mhm. ah, ma di ko sukkandikoo rek ca ca ca pastéefam ba ñaanam gu réy ga mhm. ak ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom la àndaloon di dox barab bii mhm. kon tey ji macha allah ni ma ko waxee ñu ngi fi jàng alxuraan di ko tari góor am na fi franco arabe bu fi nekk xale yi di jàng ñetti at di génn di am seen lijaasa am na fi njàngum majalis am na fi sax formation professionnelle maanaam jéem ma taggat xale yi ci ci ci liggéey waaw seen i xel ak seen i cër ci nangoo liggéey wala mee ci collège ba am nañu du ñu jàng li ñuy jàng ci école yi. jàng arabe en même temps di jàng lu mel ne informatique. Mhm. wàllu électricité lu ñu ci courant. xam ne sama yitte mooy gën koo yaatal. Mhm. ba fànni métier yu bari dugg ba nga xam ne. incha allah ko génn ci daara ji. Mhm. soo jàngalee ji wutit danga am loo xam mën nga cee jàpp. Mm, Cheikh Moustapha Diop ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax baax di ñaanal Serigne Mor Diop yàlla yàlla yokk leeram ak mboolem njaboot ku mu fi bàyyi ak képp ku fu mës a jaar ci daaram rek. langay ngay ci alquran yàlla na ko yàlla defal di nuyu sa mbokk yu baax yi ñu fi fekk itam in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة ربك بمجنون ñu leen fàtte nag lii cérémonie la ndax dafa mel ni daaw ci koor gi ci ñaar fukki fan yeeg benn ci la wàcc àddina tey ñu di ko fàttali kon day mel ni lii eh, cérémonie am la maanaam mu nekk nit koo xam ni eh, yitteem foo ko fekk foo ko natt rek eh, kawe na ko daanaka bis bi mooy xat waaye li ñu waroon wax si moom ndax dañu wax ne soor dàgg gi ba mu fiy ñëw daanaka boo ko mosaa romb da nga koy yërëm da nga yaakaar ne sax daa wérul fekk na booba am na loo am na gis-gis bu rëy ndaka nit dafa war a am gis-gis tey loolu si la tàggat njabootam gépp foo leen fekk ay naal yu rëy la ñuy naal te borom bi tabaaraka leen si suturaal mu nekk jëmm joo xam ni eh, ku mat a waxtaanale Serigne eh, Serigne Mbacke te moom daana wax ni ooma ay kër ay daara laa yor daana wax ni itam ooma ay doom man ay donga laa yor. macha kon borom yitte la joo xam ni ñu mel ni di leen fàttaliku di leen waxtaane lu am solo la Serigne Mbacke. dëgg la jërëjëf jërëjëf Serigne Mbacke jërëjëf Serigne eh, Mor Diop moomu yàlla na yàlla yokk ay leeram. yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe ci barke alquran defe naa liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lañ doon wone gis ngeen ko Eh, te dañ ko gàttal sax suñ kemtalaayal kàttan nekk bu doon ne ñu yëkkati ay kàddu ci moom yëpp teg nañ ko ci vidéo bi boo moytu du xaj ci jotaay bi mm-hmm. waaye doy na sëkk ndam ci ab liggéeyam rek ñu ne njabootam mm-hmm. eh, ñi ngi ci biir comité scientifique bi ba noppi sax Serigne Moustapha Diop Ndar Moustapha mm-hmm. Diop Ndar bokk ci ñi nga xam ne ñi koy taxawu la ñuy doon loolu mooy résultat te itam noonu la ko jariñe ay doomi jàmbur yu baree baree baree baree bari ci liggéeyal alquranul karim yal na ko yàlla fay dañuy wéyal programme boobu woo ki nga xam ne mooy docteur Malick Diop mooy wax ci turu famille Serigne Mor Diop mi nga xam ne ñoom lañ dara jaale bis bi waaye balay loolu ñu bàyyi sëñ Jili Ñang mu indil ñu lenn ci délégation yi nga xam ne jot nañoo teew ci jotaay bi sëñ Jili bismillah jërëjëf euh, sëñ Mbacke muy sëñ Mbacke Sylla ak euh, sëñ Mbacke Sourang euh, nuyoowaat mbooloo mi fi nekk yëpp te fekk ñu woon suñu nuyoo bu jiitu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ziyaare ñëpp itam waaye di sant itam ci jataay bii di sant jëmm ji nga xam ni moo ko amal di xaadimul quraan alaaji sëriñ Seck kilifa yi nga xam ni yàlla baaxe nañu leen tey jii ñi fi teewagum ñu ngi ciy jiital cheikh abdul ahad ibnu cheikh mouhamadou fadal moom rekk buñ ko tuddoon kon mu doy sëkk waaye ay mbokkam ay taalibeem ay wóllëreem ñu bare fekk si nañ ko ci jataay bi sëñ Fallou Mbacke sëñ Alaaji jarbaatu sëñ Mbacke Madina mi ngi ci jataay bi docteur sëñ Xaadim Mbacke mu sëñ Mor Doj mooy mi ngi ci jataay bi euh, sëñ Fallou Galas Mané moom it mu ngi ànd ak délégation mag mi ngi ci jataay bi ànd ak sëñ Modou sëñ Modou Mbacke mu sëñ Dan Maré Madame euh, docteur si la moom it mi ngi ci jataay bi xam ngeen ni bés bi bésam la lew na ñaseen délégation bu mag jóge na fa ki nga xam ni moo ko jiite mooy El Hadji Keba Ndiaye imaam sëñ Fadilu Taal mi ngi ci jataay bi ak imaam sëñ Ahmad Dame Ndiaye kazalika naka noonu imaam sëñ Cheikh Aw Balla mi ngi nii ñëw jàkkaar lool ñoom it euh, ñi ngi ci jataay bi ki nga xam ni itam mooy sëñ Alaaji Buso moom it commerçant mi ngi ci jataay bi sëñ Abdoulaye Dia foofu nag sëñ Mbàkke daan ci taxaw tuuti mm-hmm. ndax sëñ Abdoulaye dafa defati loo xam ni tey jii def xam ngeen ni concours tëri alxuraan bi seeni ko tàmbali na keroog àllarba waaye tey dañuy nin ko daan doxalee buñ ko ni doxalee tey ndax tey bésu alxuraan boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk dafa am ca Grand Théâtre kon nin daan xëyee di déglu xale yi ñuy jàng alxuraan fee ci institut islamique tey jii duñ ko def dañuy wuy ji ñun ñëpp Grand Théâtre mu ànd ak Massayer ak Pape Gueye ñu ngi noonu boole waaye juróom fukki sëñ daara yi nga xam ne sëñ daara bu nekk indi nga sa candidat ren juróom fukki sëñ daara yëpp itam ànd nañu sëñ Ablaye ja ñëw sëñ Ablaye xaadimul xuraan jërëjëf yaag sëñ Seck ndamal ndamal alxuraan ngeen te te da ngeen di firneel saa su nekk jagle bi nga xam ni cheikhul xadim am na ko ci alquranul karim jërë ngeen jëf yàlla na leen yàlla yàggal te wéral leen bu baax baax délégation bi jógee daaray Koki sëñ Moustapha Diop euh, sëñ Moustapha Wayal ak ki nga xam ni mooy euh, sëñ Makhtar Deyman Diop ak ki nga xam ni moo di sëñ Modou Antalo ñoom ñoo jógee Koki ci sëñ Euh, Modou na sëñ Maxtaar Naar sëñ jërëjëf sëñ Mbàkke sëñ Sumbul si la ñu ngi koy sant bu baax teew na moom it euh, sëñ Cheikh Balla Cissé moom it ñu ngi koy sant moom it teew na sëñ Abdou Xuma Caaroy euh, automobile ñoom it teew nañu Baye Daam Diané moom it teew na jàngal ñu bare Baye sëñ Mamor sëñ Mamor Dieng waaw Karo fee ca parcelle moom it teew na ki nga xam ni itam moo di oustaz Ahmed Fall représenté ki nga xam ni mooy imaam sëñ Njóogu Fall teew na sëñ alin Fall noonu ak ki nga xam ne itam mooy sëñ Ibrahima Sène doonoon assistant professeur Iba Der Thiam moom it bokk na ci ñi nga xam ne teew si nanu ki nga xam ne itam mooy kilifa ak bërëb bi di directeur Grand Théâtre monsieur euh, Assoumane Sané moom it euh, teew na ñu ngi koy sant bu baax a baax ci jàppandal yëpp ak euh, madam jàlloo mi nga xam ni mooy assistantam Euh, ki nga xam ni it mooy sëñ xalifa Fall teew na sëñ Ousmane Gaye sëñ Mouhamad euh, Diané euh, sëñ Moustapha Lo teewal sëñ Modou Lo Ngaabu moom it ñu ngi koy ziare bu baax sëñ Moustapha Sylla mooy meeru Ñaaxeen moom it teew na ñu ngi koy sant moom it bu baax ànd ak délégation sëñ Abdourahmane Sylla teew na moom it sëñ Cheikhouna xuma moom it teew na sëñ euh, xaadim la espace déco moom it teew na ak sëñ xaadim la Aziz bi nga xam ni moo jiite association commerçant industriel yi moom it euh, teew na sëñ Ibrahima Badiane euh, sëñ Cheikh Lo ak sëñ Abdoulaye Lo mën nañu yemagum foofu macha allah sëñ Mbacke waaw sëñ Thierno Lo waaw super céramique waaw moom it teew na association ndey daara yu parcelle waaw association Ndey Daara yu parcelle euh, Touba parcelle waaw ki nga xam ni mooy soxna Umu Kalsoom euh, Fall moom it euh, teew na ànd ak délégation mbag kon ba ca kanam incha allah. jërëjëf sëñ Jili jërëjëf ci mbokki daara yu baax yooyu nga lim te xam naa ab jukki rek la ñi nga xam ne sëñ Jili jotagu leen a tudd te ñu nekk ay délégation waaw. waaw xanaa lenn rek jéggalu. Hmm. xam naa sax ñoom daan leen tudd waaye samay sëriñ la ñu di suñu ay kilifa di ay borom xam-xam yu mag. ñoom it di njabootu sëriñ bi nekk ci jataay bi euh, sëñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mii dama ko war a tudd moo sëñ Mbacké Abdourahmane mii ak ñu demee ne ñoom euh, sëñ Sam ñoom sëñ Xaadim Ndiaye ñii ñoom ñëpp wax dëgg yàlla war ñu tudd ñenn bàyyi leen xam naa ne sax daan ñëwaat ci commission bi waaye moom mënuma woon tudd te tudd ma leen jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke ñooñu muy wax sëñ Seexuna Mbàkke Abdul Waduud euh, sëñ ñoom ñëpp xam naa sëñ Xaadim dana si ñëw Euh, seenu liggéey ci alxuraan ci ndax dañoom dañuy liggéey ci euh, yaatal mbindum alxuraan liggéey bu euh, bu am solo mel na ni suñu bàkkee dañuy xam daal kon woote bi daal ñëpp wuy si nañ ko ndax alxuraan la ñuy dund la ñëpp wuy si nañ boo déggee ñi sëñ jiili lim te ñim limagut sax ñoo ëpp may wax ne délégation yi ñëw te dégguñu seen tur ci sëñ jiili nañ fexe rek ba seenu tur àgg ci moom bu ñëwaatee ci kàddu gi dana ko jàllale loolu sax xam naa forme rek la waaye borom bi subhaanahu wa laa gis na ñëpp seen teewaay ndax teewu leen ndax yi jëmm waaye da ngeen a teew ndax liggéeyu lislaam beeg liggéeyu alquranul karim eh, vidéo bi ñu doon seetaan léegi ci sëñ moor jóob bi ma koy annoncé maa ngi wax ne bu daanoo danañ jox kàddu ci ki nga xam ne mooy wax ci turu famille bi moo taxaw nii di docteur Malick Diop sëñ moor Diop mooy invité d'honneur bis bi docteur bismillah aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf al anbiyai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain bokk yi ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen ziyaara di leen boole baat bu matale muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ci ndigaloo sëriñ Ahmadul Xayri muy jëwriñu sëriñ Mor Diop. moo ma yebal ma fekk si sama mag sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop fekk fii sunu waajur sëriñ Ahmad Dame Diop bi nga xam ni moo jiite mbootaay gi génne woon ca daara sëriñ Mor Diop fekk fi bokk yi ànd ak sëriñ Modou Diop muy sunu mag jiite délégation bi jóge Ndar njabootuk sëriñ bi nekk ci biir di njaboot koo xam ni ay doomi boppam ak ay doomi xolam ñu ngi sant yàlla bu baax di sant boroom jëf ju réy ji boroom pas-pas bu màgg bi di sëriñ Seck ak mboolem ku koy jàppale ci bii liggéey ndax liggéeyal yàlla la liggéeyal alquran la di am mbégte lool moom sëriñ Ahmadou bin tuddee bis bi sëriñ Dame Abdourahman Lo muy reyukaayu jàngalekatu alquran yépp ñu jël sëriñ Mor Diop def ko muy invité d'honneur bi muy lu rëy loo xam ni jàpp nañ ñu teraanga gënu ko rëy mukk kon sant nañ ko ci loolu di ñaan suñu borom subhaanahu wa mu jàppale ko bu baax ba fépp fu mu bëgg a éggale liggéey bi suñu borom dimbale ko yaatal wërsëg bi ba li mu bëgg a liggéey lislaam mu matale ko nin ko seetaane ci vidéo bi léegi sëriñ Mor Diop radiyallahu anhu kenn la woon ku yàlla mayoon Sénégal ci atum 1926 mu génn àddina ci at mii ñu génn muy deux mille vingt mille vingt et ci weeru koor gi fukki fan ak juróom-ñeent ya juróom-ñeent fukki at ak juróom yoo xam ni moom la nekk ci kaw suuf mbooleem ku ko xam ci loo xam ne dañ koy séddaloo yàlla mbooleem ku ko xam mosoo koo fekk yorewul alquran da ko daan jàng. di ko jàngale li wattu ci moom ci nit kenn xamul nu mu toll sharaf gi suñu def ci sëñ daam abdourahman loo ba nga xam ni li gën a bari ci njabootu sëriñ Touba ak ci taalibe yu mag yi moo leen jàngal sharaf googu sëriñ la yàlla may sëriñ moor Ba sëtu ñooña ak seeni doom ña ca gën a bari ci moom lañ jàng alquran ñenn ñi ci moom lañ jànge xam-xam kon xam naa ni loolu bokk na ci solos lu tax ñu bëgg koo teral ci bis bu tedd bi yemul woon ci jàngale alquran ak jàngale ko kese wala di jàngale xam-xam kese waaye da daan jàngale ay métier li génn ci ay loxoom ci ay métier diggante menuisier métallique di menuisier bois wala mason kenn xamul nu mu toll bépp liggéey boo xam ne nekk na ca barabam ba wala ca barab yi nga xam ne ay daaraam egg na fa la fa nekk lépp ay a ko def film bii ngeen doon seetaan léegi tey jii la fay taxaw ci bâtiment ay a koy def électricité bi ay dongaama lépp loo xam ne lu soxla la tàggat na ci donga yi tàggat na ci njaboot gi yamul woon ci loolu mooy amoon na gis-gis bu sori xamoon na ne àddina du jàng alquran yam ci du jàng xam-xam rek yam ci waaye war ngaa mën a jëriñ sa bopp jariñ sa réew loolu taxoon na ba ubbi na ay daara yu bari ci biir réew mi ak ci biti réew fu mel ne Gàmbi defar na ay qaadi ci réew mi ak ci ci Gàmbi defar na ay ay ay aimma ci réew mi ak ci Gàmbi waaye jël na ay nit yoo xam ne itam ba mu leen jàngalee xam-xam ba noppi dafa ubbi benn franco arab ngir dafa ni dafa gis ñi gën a bari ci nit ñi suñ génnee bitim réew suñ ñëwee dañuy indaale culture boo xam ne du culture réew mi wala ñu indi diplôme boo xam ne dañuy am problème mu adapté wu ci ci ci ci ci système bi mu indi benn franco arab boo xam ne ku jàng al alquran ba noppi dugg ca diplôme ba nga am diplôme état la. la ca jot a génne tey jii bëri na ñoo xam ne am nañ ay baccalauréat kenn xamul nu toll ña ca am ay licence ña ca am ay master ña ca am ay doctorat kenn xamul nu toll ba ñu ngi ci université réew mi ci lycée réew mi ci école réew mi di fi liggéey kon nga gis ni nii mu fexee ba nit ñi di jàngale al daara yi alquran fii ci Ndakaar gi ay daaraam a ngi fi ci Touba ay daaraam a ngi foo dem ci réew mi danga ko fekk daara joo xam ne moo ko sos wala moo ko soslu noonu itam la fexe ba def ay nit yoo xam ni danay jariñ seen bopp di jariñ di jariñ réew mi te lépp yemu ci mooy dafa jëloon alalam lépp ay million yu bari defal ko yàlla ci jàkkaam yi defal ko yàlla ci jumaawam yi defal ko yàlla ci nitam yi ndax ñooñu may wax ne tey jii da leen di defar ban am bac wala ñu am licence war a jàngi bitim réew moom mooy wëlbati ko ci alalu boppam jëndaatal leen bii te li gën a bari ci ñoom bu ñëwee. seeni baay mi ngi dund seeni yaay mi ngi dund teewul sëriñ bi mooy jël alalam ni nan ko sampal kër te jël alal ju bari jënd suuf su bari dëkkal fa way néew ji doole la ko wër lépp tey jii alhamdulilah rabbi alamin ay nit lañ yoo xam ne moo leen fa dëkkal kon nit la woon koo xam ne jàppul ni benn sëriñ bu toogoon ci ab roq rek yem ca waaye jàpp na ni àddina la koy yéwénal solo la soo xam ne ñëpp la war moom ma toog ca daara ja ak ña nekk ca pénc ma ñoo ca bokk yem looloo taxoon mu waajaloon njaboot gi waajaloon doom yi waajaloon taalibe yi ngir loolu kon ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax euh, euh, Serigne Seck ak ñi koy jàppale ci C3S yëpp di leen gërëm di ñaanal yàlla mu bari ñu mel ne ñoom di ñaanal yàlla mu bari ñu mel ne ñoom ndax sunu baree fu fu seen doolee tool rek alquran dina fa siggee kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullah docteur Malick ci kàddu yu am solo yooyu muy doom ci Serigne Mor Diop eh, daanaka noonu la def njabootam gépp tàggat leen ci ci xam-xam yar leen ci diine amoon gis-gis bu kawee yi nag te dañuy wax ne Serigne Mbacké fee mu nekk ci Ndar boo fa demee espace bu yaatu la boo xam daanaka xaw naa mat eh, ñaar fukki kër mm. nee nañ kum fa musaa di dëkkal dalay laaj boo nangoo daal ma di la digal ngay bàyyi su ma juumee mayit nga digal ma ma bàyyi boo nangoo mu jox la nga dëkk kooku noonu la daa ànd ak nit ñi amoon ji tey doomam ji itam di si ma si Moustapha Diop Ndar boo demoon Touba fi ñuy wax Aliya da nga fa fekkaat ab sémb bu rëy boo xam ni euh, day mel ni la leen seen waajur bàyyi loon itam ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàmm ndax Sëñ Mbàkke dañuy wax ni euh, gàcce gi mat gi gi ëpp ci gàcce yi mooy sa waajur mat bàyyi la fi nga ñëw mottali woo waaye wax dëgg yàlla moom njaboot gi mu fi bàyyi ñëpp moom mottali nañ macha allah mu mel ni kon sëñ Mbàkke mën nga jàll ci programme bi. jërëjëf xam naa ñu wéyal programme bi jaajëfal bu baax sëñ maalik docteur ci kàddu yu am solo yooyu mu yëkkati. alxuraan des la wax waskur rabbaka fi nafsika تبدو رها وقيفة ودون الجهر من القول بالخلو ولا سبب تكون حافلنا loolu tax ma taxaw fii tey ku ma war a gën a taxaw fii yaakaar naa nekk fi ci at ku fi sant rek maa la war a gën a sant ndax bi ma ñëwee dama wax na jëm ji li ñuy def fii gis ko li muy def ci suuf moo ko ëpp doole foofu gën koo rëy ñu ngi alaaji Sëriñ Seck mii tey li ngeen gis lu tuuti la ci li ngeen xamut ci li muy def kon may ñaan moom ak ñu mel ni moom ci réew mi am na fi ay benn benn ñuy wax xaw ma euh, ñoom Abdoulaye Dia ñoom ba xaaj maasa sëriñ bi ñoom jàpp daam ji alaji daam jom Mansoor classe gu mel ni maa ngi ñaan kenn ku ne ñaane leen yàlla yàgg leen seen taxawaay yàggal seen man-man. jërëjëf jëf ji jëf yàlla rek a tax. amiin seen njëriñu adduna bépp la. njëriñu julli yëpp la. loolu laa bëgg man daaw mu nisaroon ko. ndax jota jota mi rek moo tax a jóg. am na solo am na solo eh, bu ko defee wéyal wéyal programme bi nga xamante ne moo nekk ci suñu kanam njëkkante ak waxtu wi. Eh, jaajëfal bu baax mboolem ñi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi am nañu ci seen jiili lim am ñu ci des eh, xam naa imaam Fadilu bu noppee danañu woo ki nga xamante ne nii mooy eh, war a jël kàddu ci ginnaaw léegi incha allah ginnaaw bu waxee ci turu association islamique yi ba noppi muy eh, Serigne Makhtar Kebe mu war a ñëw ci ay boole mu waajal bisimilah sëñ Fall. subhaanaka allahumma laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alxakim alhamdulilahi alqail inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ali alqaa'il inna lillahi ahlin qiila man hum ya rasul allah qaala ahlu alqur'ani hum ahlullahi wa xaasatuh jaalana allahu minhum mbokki jullit yi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bésu alqur'an bi di leen xamal ne bokk yi day ñoo ma bett rek ne nga wax ci turu association islamique yi naam sax kenn lañ ci ñoom waaye gis naa fi ñoo xam ne ñoo ma gënoon a yey ci tu jël kàddu ci seen tur maa ngi leen di jéggalu niyaabatan anhum ñu wax ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo assuré ne alxuraan moo koy wattu noonu yàlla yi lu ne jéem nañ ko waaye waxtu wuñ gënee sonn gën a tële lii firnde la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam it masa wax ne am yàlla am na ay gaayam ñépp bëgg cee bokk waaye mu xamle ne ahlul quraani waa alquran daal ñooy gaa yi yàlla ñooy xejjam ya téere bi yàlla moo koy wattu waaye dafa am ñu muy terale ñu taxawu wattu ga ndax yàlla na am moo ko wàcce waaye du wàcc di bind du wàcc toog di jàngale dafa am ñum terale ñu war a wattu téere bi association islamique yi te mooy këri diine yi sosuñu dañoo sof sosuñu dañoo sof ndax kum doon ci ñoom dafa am ku la jàngal koo ko am ku la ko jàngal te loolu lépp dellu ci mag ñi kon suusuñu dañoo sof nee nañ ñi ngi sant alxaaji sëriñ Seck ci taxawaay bi ak mbooleem ñim àndal ci liggéey bi di ñaan yàlla jëf ji yàlla na ko yàlla nangu te luñ ci def yàlla na ko yàlla barkeel barkeel liggéeyam dafa fekk nag sëriñ bi comme ñoom taalibey sëriñ Tuubaa te taalubéy sëriñ Tuubaa yi boo demoon ñaseen taalubéy ñaseen ya wa taalubéy tijaan ya taalubéy canaba ya wala kër yu mag yëpp ñoo bokkoon benn mission bi waaye ñoom comme ci daara ji ñu nekk sëriñ bi fi mu tegoon jàng alxuraan ak jàngale ko ak bind ko taxoon na ku mas a bindab kaamil jox ko ko dana la defal loo xam ne ña bàyyi woon mënuñ koo am ca seen nawet ba ña demoon commerce mënuñ koo am ca seen yaxantu ga ña amoon bokk yu mën a dimbalante te déggoo sa mbokk yi mënuluñ la ko moo tax Musaa Ka waxoon walla waykat ba wax ne soo farewoo di ko bindal mu farewoo di la dundal soo koy bindal di ko bayal mu sàkk ñuy bay di la jox moo taxoon ñépp daw jàngi alxuraan soo farewoo di ko bindal mu farewoo di la dundal soo koy bindal di ko bayal mu sàkk ñuy bay di la jox moo tax waaye mu kenn du ko ñee su ko defee nag mu xamoon àdduna yi nag am projet de société ñi toll ci jàng ak liggéey ñi toll ci jàng mu ne nañ jàng daawtukal yow ma bi ibrahima allim fatan yanfa'uhu tafhimu maam na la woo ne ko maa ngi lay xamal ne woo naa la digal la képp ku toll ci jàng bu ma gisati ñu def loo ko lenn lu dul jàng nawloo itam ñi doon jàngale alxuraan ak di ko bind ba fas wu mu baaxle wala lu mu baaxle ba ñëpp bëgg ko mu ne demal joxal ma ko Abdourahman mbaa mu ne demal joxal ma ko sëñ Mbàkke Buso moo tax bi ñu koy tagg dañ ne sëriñ bi yar na jox ko yor na jox ko jox nañ ko mu jox ko jël na doomam jox ko foofu la ni mën a muy sëñ daam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf waaw sëñ Mbacke si Fadilou Tall eh, macha allah loolu lañ doon séntu si moom eh, muy jëmm ju baax macha di liggéey ci lislaam di def daawa di jiite fii ci Fann Juma alhamdulilah loolu lañ doon séntu si moom eh, sëñ daam Abdourahmane Lo moom wax ngeen xam ni moom mooy moom mooy parrain bi moom lañ dara jaale bis bi xam naa danañ ci ñëw ci wàllu gu gën a yaatu Serigne Mbacke. Mhm. jërëjëf jërëjëf Serigne Mbacke Sourang jërëjëf Imam Fadilou Tall moo doon wax ci kàddu association islami yi waaye daa mel ne yóbbaale na kàddu donga yëpp. Mhm. ci wax ju rafet ji waaye itam ci dellu si waat ci cosaanul mbind. ak ni sëriñ bi fonke woon bindkat yi. Mhm. waaye fonke woon ñi nga xam ne ñooy nitu alquran yi. defe naa loolu bu buñ ko doon indiwaat di ko méngalee jamono mooy li sëñ Mbàkke wax léegi defe naa ñoom bañ bindee kaamil yóbbu ko am na ñoo xam ne quinze mille lañ leen jox am vingt mille mu rëy lool tey nag ñii ñu bind euh, taxu ko yaatu lool waaye ñu digal leen maanaam ñu dig leen ci ah loo xamante ne nit liggéey na lu yàgg yàgg te amu ko ca mbayam ma wala ca càmm loolu moom mooy liggéey bi sax ndax xam nga inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabxi najaata fulku mm-hmm. alxuraan moom képp ku koy jàng yaa ngi si ak nguur te itam dugg nga si gaal goo xam ne kenn mënu laa tee Eh, texee mu mel ni sëñ Mbàkke loolu ñu njëkkante waxtu yu baax a baax rek mm-hmm. eh, di sàkkuwaale ñaan nag bu baax ci jëmm joo xam ne danaa ànd ak ñun jataay bi saa su ne muy Serigne Moussa Sarr maa ngi xool sëñ Ousmane ñu koy jaale bu baax nekkoon nitu alxuraan maanaam képp kuy yëngutu si alxuraan rek nga ni yëg nga Moussa Sarr mm-hmm. kon nag fu waaye nekk nga jagleel ko ak ñaan bu baax waaye Serigne Alaaji Fall itam bu ko kenn fàtte ñaanu xaas nañ ko ko jagleel waaye suñu ay wóllëre ku ñu wax sëñ Cheikh Diba soxna Fatou sekk ñu ay ndaw yoo xam ne suñu borom jël na leen ci lu yàggul dara fu waaye nekk rek nga jagleel leen ay ñaan ndax bis bu tedd lañ nekk te itam fukki lixlaas ak ñaar mën naa jëriñ ab julit ngeen jagleel na ay ñaan bu baax a baax suñu bàkk jërëjëf sëñ bi kon ñu woo ki nga xam ne mooy sëñ Maxtaar Kebe mu ñëw indil ñu moom itam li nga xam ne ay boole la ci téere borom bi subhaanahu wa ni nga xamante ne eh, sëriñ Saaliwu jaaroon na fi léegi indil ñu ay boole te waxoon ne yooyu daa bokk ci yi nga xam ne yi daara ji amoon ci la bokk Euh, te daa bokk ci tënk ye takk yi nga xam ne baat yu nuroo yi dana tax dootoo ko jaawale te danañ ci natt mokkalum nit itam bismillah aoudu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim xam naa danaa ci tënk rek ca nañ daan binde ni ko sama mbokk mi waxee léegi muy sëñ Saliou Sall ci baat yooyu nga xam ne mooy ngeen ak laañ ak mboccoor ak riidoog yu baree baree baree bari euh, noonu mu mel ni mu ko waxee rek dama ci bañ a delluwaat waaye dafa am yeneen baat yu bindoo waat noonu niki baatub zaka zaka dafa ñëw ñetti yoon benn bu ci nekk ak nam ñëwee moo tax ma ngi ne woon zaka bañ ndende juróom ndende nag mooy ñaar yu dend ñaari sàdda yu dend zaka bi may njëkk a wax nag benn sàdda képp lay am su ma noppee dana waxaat benn geneen sàkkaa goo xam ne ñaari ñaari sàdda lay am ak genn sàkk sàkkaa goo xam ne du am dara ci sàdda kon loolu mooy baati ndaanaan ñu ne zakka bañ dende juróom ñu ngi koy tëkkee jawafa waqama jawafa xama boog jawafa xama muy juróom ñu ne jazaa'u man tazakka tëhi kaaf gi dong ngay sàdda wa man tazakka ak fa innama yatazakka faandaak kaaf ga dong ngay sàdd xadaf laxa man tazakka ca laala kaaf ga dong ngay sadda maa lahu yatazakka lay layli kaaf ga dong ngay sadda bu ngeen xoolee foofu kon zakka bi kaaf gi dong moom lañu sàdd mu am geneen zakka goo xam ne nag ndende la muy lan dangay ngay sadda euh, raasa ga sadda kaaf ga ñu ne zakka ndende yett ila anta zakka ca naasiaat laallahu yazakka ak allah yazakka ca abasa maa zaka jam-jam bajjub nóor maa zaka moom saddawul ci zaal ca raasayin ga saddawul ca kaaf ga léegi nag bu ñu xoolee baatu bu zakka lépp juróom-ñeent la ñu ne zakka njannaay laal daanu nóor muy zakka maa zakka ga ca ga ca nóor soo ko sàddaa rek danga daanu kon juróom-ñeenti zakka ngoog juróom yu njëkk ya kaaf ga dong nga sàdda ñett yee ca tege kaaf ga ak racine ga sàdda zakka gu mujj gën ak dara sàdda ma ne sakka njànnaay laal daanu nóor bijj daanu ma ñu ne bijj daan ndaw yet baat yu jekk ci bijj te ku ko bijj daanu ñu ne bijj daan ndaw yet ñu koy tënke adwa ban la amtaluhum tahi dhurriyatuhum tuur waladnahum jidaal nga xam ne day pour nga def ko am amsaaluhum ak wala dinaahum lu jàpp ni la ñu ne bijj daan ndaw yet fa xasaf naa ñëw na ci alquran ñetti yoon waaye bokkul bindiin fa xasaf naa xasas man xasaf naa xanka tongoo kub jorngel muy xaadam dellu la ak sin subaw waaye nag fa xasaf naa ca tëhi ànd war na moromam muy xasaf naa ga ca tëhi laañ la laañ mooy deel ju tooy la moo tax ñu ne baato faraqta rek faraqta ñu ne faraqta tëhi fa ida faraqta sarahi ñu ne xaaf tëhi nganj sarahi sidda tëhi jam-jam sarahi nga xam ne baatu faraxta rek nga wax waaye boo demee ci fa ida faraxta dañ koy oyofal ba noppi mu nekk ngaax muy ak xëyin kon jaxasoo googu boole yi di jaxasoo xam naa jorngelug ndaanaan sëñ bi jaar na ci léegi muy sëñ Saliou Sall te bëgguma dara ndax comme day dugg ci kii bi du jar delluwaat waaye baatu bi yusiixuhu birima fa yadmaxuhu lën bi ñu ne xuuxoo njommoor yaar mooy xuuxoo googu pour nga def ko ak xaaf day yomb te ak xëyin la njommoor bokk na ci li sëñ bi doon wax léegi mooy ak xëyin ñu ne yusiixuhu birima birima ak baraan baraan dafa bokkul baraan mooy baraatun birima nag mooy ibrahima ñu ne yusiixuhu birima fa yadmaxuhu lën bi xuuxoo njommoor yaar njommoor mooy xëyin koo gile baatub assumma assumma duaa yaar la ñëw ci alxuraan nam léeg ruum assummu duaa nag bajjub lan bi boo demee ci sóotu lan bi yaay summ la fay taxawe goote song miim njànnaay goote mooy genn ak ba noppi son song ak miim njànnaay moom la ma ngi naan dañ ko tënk ci dadami sukuku siwamu dadami zukuku siwamu darajaati man na nashaau yaar lan haam ak mbargaan min suu ima li nahli durriyata man xamal naa lisraay kullu man alayha yaar la ñu ne mareem mag bayaan ma ne kullu man rek yaar mareem mag bayaan dikru man maay ak dikru man qabli yëpp nga leen bi mundiru man ca naasiaat nga xam ne kon boo ko xoolee foofu gel genn dafi dëkk nga def ko run nga tën wiin ko te ndekkete genn masque rek la taani dugul coon yet taani la du dog ba noppi nag lañ war a tudd ci siin cuun la ñu ne atulutaani jigéen min alawthaani xajji yastaxiitaani laxqaaf nga xam ne kon du dog te it cuun lay doon boo demee ci walladaani benn borom xam-xam dafa ne woon morom ji dama lay fit kaang mu ne ko fit gi may bëgg fit du ma jaral yor waxal baat bi rek ma dégg mu ne ko fit naa la walladaani yaatiyaaniha mu ne ko wala day lomb zaani day naar yaati day dog yaani haa ko ko dog mu daan la ne ko ma sax jël big ak xalima kon mu ne ko wala day lomb zaani day naar yaati day dog yaani haa ko ko dog mu daan la ñu ne bii geesu mboccoor naayo bii geesu bii mooy bii la te du nekk bihii kon day geesu day geesu mooy day jëm ci borom ba noppi nekk mboccoor di siin su tooy ñeent yoon la ñëw ci alxuraan allah tusrika bii xaj laa yusrikoona bii nuur li tushrika bii anka ala an tushrika bii luqmaan nga xam ne bii geesu noonu la toll ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan benn waaye dafa bind ne moom luñ bind bu ko seetloo dana ci génne bi yàq kenn kenn ki ne ko man du ma bind ba génne bi yàq nga xam ne kon loolu ak ndamonte la woon xam naa mooy bi may mujjee bi mu tàmbalee bind baqara ba agsi ci nastan sixu ca jaasiyati mu def ko ak xaaf sëñ daara bi di topp ba egsi foofa ne ko ah ngóor daanu nga mu ne xaa mu ne ko kii xaadam dellu gu wucc la daal ko naan nag boo demee ca mag ña ñoo ne waxoon ne gelle wi ces ngeen njeego njeego muy juróom benn maanan sax laan fan salaxa lahraab fa idan salaxa baraan fa yen saxu laahoo nga hajji nas laxu jaal nas tan saxu ca jël seeti moo la daan kon noonu jàmbar googu pique-nique yooyu te jëlewuñ ko ci naar ñoo ko fexe ci seeni diggante tool ya xat ba cin la garab ga fexe ba bind àlloo ju tege wuti daa ak xalima fexe ba bindu kaamil baqara ba naasi te jàngoo arud jàngoo bayaan jàngoo naxu jàngoo sarf la cay faa'il ak la cay maf'ul ak la cay sarf ak lépp xamoo ko loolu kon ak njàmbaar mënu koo féete kaw loolu nag buñ ca demee ba ca biir ci la Cheikh Saalihu Mbacke radiyallahu anhu mas na ma cee nettali wax ju gàtt mu ne Sëriñ Tuubaa daf ne boole yii ngeen di jàng bu fekkee alxuraanay toole tool bi boole yi mooy ñag bi ko collecturé mu ko teeru nga xam ne kon alxuraan bu amuti boole pour nga daan borom day day yomb ndax baat yi ni ñuy bindoo la ndax fa xasaf naa ak fa xasaf naa mën naa génn ci maxaarijul xaruf mais laañ génn nag pour nga xam ne laañ la ba ànd war moroom ja bàyyi bàyyi fa xasaf naa gay de nekk siin suwaw loolu ak njàmbaar mënu koo feete kaw dafa am góor gu baax di bind alxuraan ba agsi fil xisaami ca suura bi mu ko bindee mu def ko xaaf soxruf bokk bi mu ko defee ak xaaf sëñ daara bi toppal ko ne ko ba nga tàmbalee bàqara ba fii ne yaa ngi door a yàqu baat mu ne ko baat bu ma yàq mu ne ko fil xisaami gi xaadam dellu la mu ne ko indi alloo mu dex ko mu daal dem taal jàng ay garab lañ daan fénqale rek fanaanee jàng moom li muy jàng alxuraan jëpp fénqi rek lay xool ci alxuraan ci guddi gi ba xëy na minal jinnati wa naas daal di xëy sëñ daara bi ne ko salaamaaleykum mu ne ko maaleykum salaam mu ne ko baat bu ma daanoon démb mu ne ko fil saami mu ne ko filxi tongu yaar ba alquran jeex filxi yaam ak filxi saami la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha jërëjëf eh. waaw sëñ Mbàkke waaw allah sëñ eh, Maxtaar Kebe eh, mu sëriñ Saaliwu maanaam man na see fanaan yenduwaat si moom daanaka ni mu ko jekkoo borom bi ak may la ko si defal ci wàllu boole tey itam nag mag ñi amoon nañ fu la sëñ Mbàkke ndax Euh, comme masque yee tomb yi yëpp dañu ko sos si alxuraan ñoom bi ñu ñëwee ñu xool ñoom danañu mën a jàngale seen i gono comme xamuñu ay mudaaf xamuñu mudaafoon ilayhi xamuñu faala ñu ñëw fexe ba ñoom itam ñu mën see génn kon dafa mel ne ñoom itam def nañ euh, liggéey bu kawee nii la ko defee woon maatam itam waaye la ma si gën a jaaxal maatam moom pulaar la ko joxee ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk <laughs> tàkk loolu moom ak may la si am sëñ Maxtaar ñu ngi lay sant bu baax yow sëñ Mbàkke jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke di sant itam baax sëñ Maxtaar maam sëñ Modou Diané hmm. mi ngi sàkkul ñaan Euh, maamam sëriñ sëriñ sëriñ Maxtaar Jaane mi nga xam daa bokkoon si bindkat yi sëriñ Tuubaa yi sëriñ Moodu Jaane mi ngi sàkku euh, ñu defal ko ay ñaan bu baax a baax mm-hmm. jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke Sourang jërëjëf sëñ Kebe sëñ Maxtaar ci boole yu am solo yooyu nga xam ne moom la indi euh, ni nga xam ne moom laa ko waxe woon léegi bi sëñ Saaliwu noppee yooyu bokk ci yi nga xam ne ñi xamul lim doon sax bu ñu koy dégg daleen di neex mm-hmm. maanaam mën naa am sax lim ràbbu bu ñu la waxoon ne la lan ak lan la xamoo ko waaye dégg ko rek dafa dafa neex lool eh, ndax dañoo nuru daal dafa nuroo ak ñun loolu nag mooy yi nga wax ci eh, système bi nga xam ne mag ñi moom la ñu jàngalee alxuraan te loolu téye ko fi ba tey loolu itam bokk ci li nga xam ne dañ koo war a jëmbat ba mu des fi ba ëllëg loolu da cee bokk. Mm-hmm. moo tax ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax njëkkante ak kàddu gi eh, woo ki nga xam ne mooy sëñ Lamine Diop. ñu bëgg wax ci sëñ Dame Abdourahmane Lo nag. wax ci dana jafe lool ndax am na ñu jëpp xam-xam ci suñ gannaaw ki gën a dégg nag ndigal yooyu yàlla dégg yi ndigal loolu sëñ bi dégg yi ndigal loolu son yonneen bu baax bile kookaa di sëñ daam abdu nag rahmaan mu ndaam ngir jëf na nag lu rëy lu kenn du jëf ko nag ci ba terey suñ buur bile sëñ daam ndigal yu yàlla yi yépp la jëf ngir julli yi joox na ko joox naafila yi mën dóobi sax da koy julli ma wax la ni fonki ndigal yooyu sëñ bi sëñ daam daa dëggal nongu dogal nongu ndigal sëñ daam de daa boole yile ahmadu daam moo woolu ndaam abdu ni ko na dem fa ndaam sot xalimaam te soosi daam te toog fa ndaam di jàngale Cheikh seex Fallu lu ak ay rakkam ak mag ña ak seex yi itam sëñ daam de jàngal na ñile jàngal na baay ak doom ja ak sëtam ba lii daal jafe nag sëñ daam de moom jëfe na nag jëf jii ma wax nag ñile seex Anta Gaawaan rakki daam sëñ Moodu Maamun mii di doom sëñ Moodu Roxaya sëtam sëñ daam de jàngal na ñile sëriñ Tuubaa dañu ngoon toogal ndaam di jàngale bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi ba ñëw fa mu toogoon jógu fa ndax nangu ndigal bari na ñoo xam ne ndigal nii ma ko nangoo kenn du ko ñu nangoo ndax moom dafa toog ndaam bi siñ bi dikkee ñuy dem Darou Salaam taxul mu seeti ko fa mu ko diggoon mu duju fa dara du xew ba mu jóge fa ba sëñ ba delsee xandu fa sëñ bee ni sëñ daam luy lile sëñ daam mu ndax danga maa nëmul mu ne ko man yaa ma digal yaa ne ma woon mbàkke demal jekki fa ndaam day dem fële te déggumaat leneen digal luy dindi lii nga ma digal te man de duma moy ndigal loo digle ak yu buur bi le sëñ bi gërëm ko daal ne ko loo bëgg sëñ daam wax ma ko danaa ko def bul ñiiblu ko buur yàlla moo lay jàppale sëñ daam ne ko man nattu yi waroon na dal taalibe yi gàll ko kon saa wagg yii ma gàdd ko man daam mi de sëñ bi ne koy sarta am ndax danga ko àttan lépp daam mu ne ko wax ma rek ma xam ba xam ne yaay téeñ téeñ bi de sëñ bi ne ko bis bu ne kaamil ngay tari muy ñaari rakkaa dem tëri tey lu buur yàllay tere danga ko ne ñukk nag ne le sëñ daam ni sëñ bi roof ma kon muñ ji suuf am ak kattan gu tol ni goog malaaka kon ma man koy sañ nga yow li le sëñ daam ni sëñ bi roof na ko ndax sëñ basiiru nee na ko sëñ daam mu ndax bii def nga ko la nga waxoon sëriñ bi de sëñ Basiru daam fanweeri at ma dem fa ne sëñ daam ndax la sëñ Tuubaa waxoon ngay julli ci guddi gu jot ñaari rakka yaa ngi def ñaari rakka ya mu ne ko roof na ma ko ndax bii def naa ko sëñ daam bi mu daa julli Mariama daa yem ay neen daa taasar ba mulki moom la koy wax noonu moo tax sëñ bi sëñ daam ni sëñ bi roof na ma ndax sëñ Basiru nee na ko sëñ daam mu ndox bii def nga ko la nga waxoon sëriñ bi de mu ne ko yow sa baay xamal nit ñi dinañ ku gën xamul ngir moom mu ñu suuf la ma sol malaaka it kàttan gala ngir njërtar naa ba mulki biig soog a rukkoo maryaama nag laa daan rukkoo kattan ga nag laa topp taatar sarale lii sëriñ Seck def nag murit bu ne war na ko def du moom dong ndax danoo gàddu natt yu bari ci sëriñ Tuubaa murit bu ne war naa njukkal sëñ daam te war na koo fayal bor ngir murit bu ne ameel bor nag bu rëy sëñ daam mi sa di sëñ waar fay nañu seen bor ba ngir tudde nañu seen bis bi sëñ daam fay nañu naar bi xoram si tey jile sëñ waar di ab jàngalekat sëñ Mat Badiane jàngalekat sëñ Mahamadan Seck mi lépp dundam gi jeex ci jàngale sëñ sekk sëkkul teen ba tey ngir béyti alxuraan ja tey leer gaa nga jolli duutu fay te lépp ak sëriñ mi le tey alxuraan ak alxuraan ñoo diile rek seeni mbalaan ngir sëddi sëñ Modou Badiane Seck kay njukkal sëñ daam yi le buur yàlla bég na buur yàlla bég na tey ci yéen yeneen ba it bég na ci yéen Seex Bàmba it bég na ci yéen ak soppe alxuraan ji le yàlla na lépp luñ fi ñaan buur yàlla ful ko junni yoon bi jaahi Ahmadul Amin ak barke Seex Bàmba mi le wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf ñu tàccu sëñ Lamine jóo bu baax ci taalif bu am solo boobu mu indi jëmale ko ci ki nga xam ne mooy parrain wu bis bi di Serigne Dame Abdourahmane Lo waaye jëmale ko ci alxuraanul karim ak mbindam sëñ Mbàkke mm-hmm. bala ñoo ñëw ci li ci topp te mooy seetaan vidéo protection bi nga xamante ne def nañ ko ci Serigne ndam Abdourahmane Lo bu daaneelee ñu jox kii wax ci kàddu euh, famille bi nga xamante ne teew nañ fi di ñi nga xam ne ñoo toog nii ci suñu ndeyjoor te teg kaala yu bula yi ci seen i mbagg. ñu ngi sant bu baax Serigne Lamine Diop ci euh, abyaat yu am solo yooyu mu jagleel Serigne Dame Abdourahmane Lo di ki nga xam ne ñu koy fàttali mbooloo mi moom mooy kilifa moom leen dara jaale tey euh, yaatal mbindu alxuraan si cérémonie bi. mu nekkoon jëmm joo xam ne ku ne xam na ne lim daa ñaan yàlla may ko mu am muñuk suuf nga xam ne lu ko dal mu mën koo muñ waaye nag tabee ni asamaan xam nga ku mel noonu moom loo wax si moom dañoo ne xadis wala xaraj lu la neex si lu baax mën nga ko ko wax ndax ndax waajal nañ ko te dékku na yan bi macha allah xam nga koo xam dañuy wax ni juróom fukki at ak ñett ngay naafila alxuraan ñaari rakka kooku moom dañuy wax ni Euh, lu baax moom du doy waaye nag moom jéggi na doy macha allah si mbag suñu réalisateur mu dugalal ñu vidéo bi ñu seetaan lenn ci jaar-jaar euh, wala njàngat moo xam ne indi nañ ko sëñ Daam Abdourahman vidéo bu xaw a gudd la mhm. waaye dinañ ci indi rek euh, lenn ci ak wone buñ noppee jox docteur imam Serigne Khadim Lo mhm. mooy yëkkati kàddu ci turu famille sëñ Daam Abdourahman Lo bi ñu tuddee bis bi والقلم وما يسطرون asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew gannaaw bañ leen nuyoo ñi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñi ngi fii ci ndaam di dëkk sëriñ ndaam Abdourahmane Lo ñu tuddee ko nag concours bi nga xam ne compagnie Serigne sekk mi ngi koy amal at mu jot te jëm ci mbindum al alquranul karim ren Serigne Ndam Abdourahmane Lo mooy parrain bi ñu war leen a wan nag mbooleem jaar-jaar yoo xam ne sëriñ Ndaam am na ko ak kan mooy sëriñ Ndaam ñu war a dugg ak yéen nag ci biir daara ji incha allahu rabbi nuun wal qalami wa ma yasturuun audu billahi min ashaytan irajim bismillahi bokk yi jàkkaarloog ñun ak fu ngeen mën a nekk noo leen di nuyu di am mbégte lool ci turu sëriñ Bachir Lo nga xam ne mooy xalifa sëriñ daamu Abdourahmane Lo di ñaan yàlla sunu borom mu gën ko yàggal ci kanam jaboot gi te may ko wér. te boole ko mbooleem jaboot gi yëpp. nu amoon mbégte tey ci ubbi jotaay bi mel na ni jotaay bi nag ñu ngi fi feggoo ak sunuy mbokk ñu gën ci ràññee sëriñ Fallou Mbacké. bu ko defee defe naa ne li ëpp ci laaj yi sax moom lañ koy bàyyi mu gën koo leeral kon incha allah bàyyi ko déglu ko incha allah. dégg lool ci jotaay bi ak li ko waral ak ki ko waral ak fi ñu koy defee euh, sëriñ Dame Abdourahman Lo mag la woon moo xam ni bi muy xam leen tek a jëflanteeg sëñ bi jiitu na yoon wi taxaw. ni ñu ko xame mu àndoon ak moom ci daara ak yi ca xew xam naa waxtaan waxtaankat yi ci kanam dañ ko indi yëpp ba yoon wi sosu ba sëriñ am doxal ci yónneen boo xam ne ci sëriñ Tuubaa la jógee bi mu daataan del si soppi ko am gannaawam yaakaar na jotaay yu bari nit ñi danañ ko ci di nettali bi mu delsee ba ba mu nettali ko it ci la ànd ak moom ci la sëñ ba ne doy ko mm-hmm. mu ànd ci ak moom mm-hmm. waaye loolu am jàngale la ci ñun ñëpp koy àndal ku ne i kóolóonte day dox seen diggante mm-hmm. loolu dox na diggante sëñ daam ak Cheikhul Khadim eh, nawloonte day am loolu it dox na diggante sëñ daam ak Cheikhul Khadim loolu jàpp nañ ni mbooleem ànd bu ànd te nar sax ci yooyu lay tax lay saxawe kon sëñ daam loolu la àndee woon ak sëñ bi di yëngu ci xam-xam gannaaw ba mu ci xamee mu yëngu ci alxuraan li ci ëpp nag ci ndigalul sëñ bi la ko doon def sëñ Abdou Rahmane Lo ak alxuraan ak mag ñi nga xam ne nga fi jot a génn ci daara yi mm-hmm. loolu day mel ne day laaj bi day delluwaat. Hmm. maanaam ne lu jiitu yoon mooy. Hmm. ndax bi eh, sëñ daan nekkee ci daara sëñ Maamoon Anta Sali hmm. foofu la nekk foofu la boo bokkoo nekk ak sëñ bi waaye alxuraan ji rafet jii nga xam ne moom moom la sëñ Maamoon Anta Sali gisoon ci moom moo taxoon mu doyloo ko ba joxoon ko lenn ci ak njabootam mën nañ cee tudd sëñ sëñ maam si Anta Euh, maam Cheikh Sidi Maxtaar maam Cheikh Anta am Daaru Salaam ak rakkam Sëriñ Afiya ñooñu foofu la ko sëñ maam al sëriñ alxuraan ju rafet di mu ko sëñ daam ak mokkal gi mokkal gu wér gi moo waral loolu mu wóolu ko ba jox ko njaboot ñaar njabootam yooyu nga xam ne kon sëñ daam di ko demal alxuraan yàgg na digganteem ak daara tam yàgg na lu jiitu yoon bi waaye lépp nag mu ngi mu ngi tënk woon ci mu nekk ci keppaaru sëñ maam al sëriñ fa la bokkoon a nekk sëñ bi ba li ba li ba sëñ ma am sali nelaw ba li ba yoon mu sasu ma sëñ bi moo bokk ñi nga xam ne ñoo njëkk ñoo njëkk a ba sëñ bi gërëm ko bi noppee na sëñ bi da koo ne ko bi mu amee li ñëpp am mu gërëmul sëñ bi sëñ bi da koo soppi loolu da dama lay sop soppi liggéey def ko alxuraanu karim nga hmm. may liggéeyal hmm. ci njaboot gi ak mag ñi nga xam ne ñu àndoon ak sëriñ bi hmm. barab bii nag barabu sëriñ Touba la bu mu sànc dëhaloon fi sëriñ Daam Abdourahman ngir muy jàng alxuraan di ko jàngale mag ñu bari it jaar nañ fi yoo xam ne jëlee nañ fi alxuraan ju rafet mu mel ni itam dem na ba daara ji yaatu lool diis lool itam ndax sëñ daam nag wut ay kàngam yoo xam ne moom ñoom moo leen moo def ci ñoom alxuraan walbatikuwaat nag ñu jàppale ko nii sëriñ bi rëddee kër gi ci nii mu taxawe fenn fu ne mu teg fa kenn koo xam ne da nga faa ne di xamle alxuraan am bunt sa digg ak moom mu mel ni sëriñ Jibril Gassama mu mel ni sëriñ Cheikh Ndooy mu mel ni sëñ Balla Siise mu mel ni sëñ Modou Fall mu mel ni sëriñ Aliou Gassama ak mag ñooñee ñépp daroon ko nga xam ne ci wetam lañ ne kenn ku ci ne fa nga ne di riir ci daara ji dëppoog daara ji jot sëñ daam ji fenn fu ne sëñ daama taal la fa ne kenn ku ci xam ne dox nga ba kenn mokkal wax nañ ne da nga daa ñëw ci sëñ daam fekk ko ci kër gi ne ko diw de mokkal na mu ne la baax na su jekkee ba yàgg mu waat la nga ñëw mu ne ko indi dongo ba mu indi sëñ bi déglul ko boppam mu wóor ko ne tubaarkalla lii kii wax nekk na. wàllu sëñ daam ak alxuraan ji moom lu fés la. xam naa sëriñ si danañ ci dem waaye sëñ daam ku ne xam na ni fa mu daa jaarale alxuraan amu ci woon ab kenn siiw na lool ci naafila gi mu ci daa def siw na ndax man am na mag bu baax nee na ma ci mu jug ci mujj sëñ Mourou Moustapha ko laaj ni ko sëñ bi ndax la nga daa def mu ni ko biig day ndax yaa ngi man ba mu ni ko biig day bi may yëg ni maa ngi ci rakaa bu njëkk bi maa ngi ci suuf mu dooral ko am naka jekk li mu doon xat-xat teewul li mu waroon a toogoo ci yaramu bokk moom dafa amoon fullay di ko togg waxtu bu jotee mu def ko la ca des bu jotee mu def ko loolu lépp nag ñëpp dana war a tënk ci ci xam ni ki am ngërëmul sëñ Tuubaa bu fekkee bëgg nañ ngërëm ñoom itam ci sëñ Tuubaa mm. nañ nañ tënk ci ñooñu di leen toppandoo ndax diine jëpp toppandoo rek la dëgg la loolu moo waraloon sëñ bi bi mu sañcee dëkk bi tudd ko Daaru Alimul Xabiir mm-hmm. lu jiit loolu tam sëñ daam mësta a taxal kook sëñ bi Mbacke Kajoor Mbacke Bawol ba Mbacke Bari bañ sëñ bi dem ci géej gi waaye ci biir loolu itam ñi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi njëkk a jox mu njëkk a jaar ci daara ji mais sëñ Omar Mbacke mu sëñ Mbacke Ibra mu sëñ Tuubaa sëñ Mbacke Kajoor ak sëñ Mor Roxee Bousso hmm. ngeen ngeen xam ngeen ko di jëtaab Seexul Xadim ak sëñ Massamba di rakk di Seexul Xadim gannaaw ba nag sëñ Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil sosoog a jóg nga xam nii sëñ daam moo leen jàngal alxuraan dañu mokkal alxuraan mokkal bu rafet ba bind ko ak ne ak seex Cheikh Amadou ba Mamadou mu Cheikhul Khadim hmm. ak Cheikh Mamadou Moutala ak Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Abdoulahi Mbacké mu nga xam tam nag ñu àndoon seen seen i taab ci ëpp hmm. sëñ daam mu la jàng alxuraan karim ñu mën cee wax sëñ Xaasim Mbakke mu sëñ Afiya sëñ Moustapha Guèye Yorowaay ak sëñ Modou Mamoun maam Cheikh Anta li ci gën a yéeme itam ba tey sëñ Modou Mamoun mi nga sëñ daam da ko jàngal alxuraan ba mokkal ba mid indiwaat fi ak njabootam muy sëñ Modou Rokhaya ak sëñ Hamidou ak rakkam sëñ Moustapha Ceytu kon sëñ daam daa wax ne fekkoon ne maanaam alxuraan da ci retraité mhm. mu ne kon retraité noonu ndax jàngal doom mhm. jàngal baay mhm. jàngal sët ci moom lañ ko mas a gisee wallaahi ndeysaan ci la yéemul ci àll ci ci daara ji mooy li ci yéeme mooy sëñ daam jàngal leen ba ni génnee àdduna fekk see fekk fekk seen xadim daara ji amul kenn ko fi mas a génn àdduna amul kenn ko fi mas a wéradi wéradi boo xam ne xam la loolu kon mooy wane ne liggéey bi ko sëñ bi doon liggéey loo sëñ bi doon nangu na mu def ko nag ni ko sëñ bi bëgg ko mu ne ko suñu bëgg woon noonu la ko def ba tey tam am na ci njaboot Seexul Xadim gi ñu jigéen ñoo xam ne jàngale leen alxuraan ba ñu mokkal ba médical bi muy soxna may mutul Kubra ak soxna Fatou Mbacke ñu di ko wax soxna Diop Mbacke ak soxna Musumatu ñeneen ñeneen ak ak bare bare ci njabootu sëñ bi ak ak soxna Xadi Jotu Mbacke biir Seexul Xadim nga xam ne njabootu jigéen googu sëñ sëñ Daam jàngal na leen ba mu alxuraan waaye itam mu delluwaat leneen muy soxna Faatimatu Tuuti Jóob mm-hmm. mi nga xam ne waajur Seex Moodu Mutala mm-hmm. ak soxna Jóob Mbàkke ak soxna Muslim mm-hmm. bi bi yàlla dogalee mu ñëw ci ëttu Seexul Xadim Seexul Xadim du ko jël jox ko sëñ Daam Abdourahmane Lo moo ko jàng alxuraan ba mokkal ba bind juróomi kaamil est nga xam ne loolu tam euh, lu lu yéemal loo xam ne baax baaxu Seexul Xadim la ndax ñëw ñëw ci dem ci fi nga war a yàlla ñu joxe la ci nga euh, nga dugg ci daara nga jàng alxuraan bu mokkal mhm. ba bind kaamil mhm. ci li ci yéeme dégg sëñ daam doon jàngale dafa am lu mu doxoon min war a ni ko alxuraan wa min war a xijaab da ko doxoon seen diggante digganteem moom jàngal na ko ba noppi duñ gisante allahu akbar waaw muy soxna Fatou Diop mi nga xam ne waaj li ma ko waxee léegi euh, kon nag sëñ daam Abdourahmane daal yàlla ñu ko suñu borom fayal waaye teewul sam daara ji nag mhm. incha allah bi mu fi nekkee ba ni mu fi jógee mës mës a taxaw benn yoon. ba ba ba ba ba ba fi ñuy wax yéen daara ji jëmmi daa jëmmi kër gi daa daara mi ngi fi. bokk na ci njaboot gi nga xam tam yooyu njaboot njaboot suñu daa Abdourahmane Lo kenn ku ci nekk barab ba nga nekk yor nga fa daara di fa jàngal alxuraanu karim di fa jàngal xam-xam. koo naw loowul doo ko jox sa njaboot. Mm-hmm. muy def ci ñoom jikko. Mm-hmm. ndax xale bu tuuti bi moom. lii ne ci moom ci jamono yooyu loolu rek mooy doon jikkoom ëllëg te loolu it lay doxee loolu lay waxee loolu lay jëfee koo nawloowu doog ko def moo tax dañuy wax ni diggante ab sëriñ ak taalibe nekk ak nawloonte ndax dañu gis ni li tax jataay bi am solo lool mag ñi niñ doon àndee buñ ko fàttalee ndaw ñi danañ góor góorgóorlu ci ñi ñuy àndal ñu xam ni ñuy àndeek ñoom ak fa ñuy yem ak fa ñuy jëme seen bopp ñoom ah wax dëgg yàlla itam sant nañ yàlla bu baax ci jotaay bii ndax sëñ Balla Cissé mag la woon lool bokkoon ci sëñ daam moom moo ma mas a wax ne sëñ daam dañu daa digal bopp alliwa yi ñuy jàngale gone yi bu ñu bindee asawa jàll ci kaw nee na dañuy bindaat ci suufam ragal yàlla te di ko jaamu teg ca buur yàlla kuy tuub lay jéggal teg ca itam ne kuy sant lay dolli teg ca itam ne kuy muñ lay jox ndam mm-hmm. kon gone gu tàmbali ak jàng alxuraan ràññeegut bët bu set bëtam tege ci lii loolu formation la boo xam ne yéeme na lool. di sant ki nga xam ne moo am xalaatu dundal alxuraan ak teral ñooñu alxuraan muy alaaji sëriñ Seck tey jii mu jël kàngam bu rëy ci alxuraan ci atu sëriñ Touba muy Cheikh Abdourahman Lo ngir teral ko mu mel ni kon ku ko teral ak teral nga alxuraan mm-hmm. teral nga itam sëriñ Touba ci liggéeyam ci alxuraan kon du ñu def lu dul sant ko te ñaanal ko te gërëm ko waaye di wax itam ne tey bu ñëwee ci ëtt bi ëtt la boo xam ne nangoo naa ci waajuram mu wax ma ne ma bi nga xamee ne moom waajuram baayam sëñ Mahamadan Sekkoon bi nga xamee ne yàlla dogal na ci moom laa ko nangoo mu wax ma ne ma bi nga xamee ne yàlla dogal na baayam doon yilif ba waroon na ñëw pour sanc si Taïba ngir Euh, boobu mooy moo moo fa mag mm-hmm. mu ne bi mu ñëwee dem tey waññeeku war a dem jëli njabootam mm-hmm. dafa jaar fii ci sëriñ Daam Abdourahmane mm-hmm. bi mu jaaree ci sëriñ Daam Abdourahmane ne ko wax ko li li li li yitteem sëriñ moo ko wax ne ko demal nga delluwaat ci sa dëkk boobee di bayti sekk bayti sekk na fa toog ndax daara ak dundal daara damay ragal na soo ñëwee tey ba dootu la yomb te te na nga taxawal daara ji te yar njaboot gi kon ñaari mbir lañ ciy déggee benn bi mooy dégg gi mu dégg ndigal moo tey moo tax tey ku la mbayti fekk fa la nga fay fekk te donte gis nga la mu ko jëndee te mooy ak fal la ndax ñu ne la yaa fi mag nga war a ñëw yilif ñëpp waaye mu jënde ko ndigal loolu ci biir liggéeyal alxuraan itam loolu it war naa soññ nag mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi doon liggéeyal alxuraan mm-hmm. nga gën caa laxasaayu te xam ne liggéey la boo xam ne du sànk mukk waaw ndax loolee booba jafe na lool ñu di la lool ci àll boobee te booba tay tay ba di di ay pays di taax waaye mu jëndee ko loolu kon nag euh, kenn ku nekk ci alxuraan daal loo ci doon def rek na nga ko gën a jàpp ndax xam ne liggéey la boo xam ne daal faaw rek sunu borom di ko fay wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mbokk yi lii lañ leen jëlee loon tey ndaam ci dëkkub Sëriñ Ndam Abdourahmane Lo ngir génération bi di ñëw mën cee jàngee waaye xam kan mooy Serigne Dame ndax dégg Serigne Dame dégg Serigne Dame tey nag ñu indi leen Serigne Dame an intégralité kii mooy Serigne Dame Abdourahmane Lo ak lim fi bàyyi comme œuvre ba beneen yoon ci beneen kilifa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa tuddee itam ñu bàyyi xel bu baax a baax ni première édition bi noonu lañ koy toppee ñu ngi ko tudd woon Serigne Mor Mbaye Cissé ak Serigne Mbaye Sy Abdou beneen bi Serigne Jëmbu Cissé Serigne Mohamed Kunta noonu lañ jëre woon Serigne Aliou Fatou Cissé ak Serigne As Jaxate te itam ñu jël Serigne Mor Diop euh, ak euh, seriñ Dame Abdourahmane Lo fu lu baax nekk rek incha allah ñu jëli ko gaaral ko mbokk yi ndax loolu la yaatal mbind di wundu Serigne Mbacke. jërëjëf jërëjëf Serigne ci vidéo bu am solo boobu nga xam ne ñi ngi ci doon waxtaanee dund ak liggéeyu Serigne Dame Abdourahmane Lo dañuy woo docteur Khadim Lo euh, defe naa sax ñi ngi ko doon gis ci biir vidéo bi mu ñëw jëmmal jotaay bi euh, joxe kàddu délégation bi nga xamante ne nii ñoo bàyyi ko ci kër Serigne Dame Abdourahmane Lo mi nga xam ne moom lañ duppee bis bi waaye balaa docteur Khadim a jël ñu jox euh, sëñ Jili Ñang mu jukki yenn ci kilifa yi nga xam ne jot nañ fee teew Euh, ñuy extrait bisimilah sëñ Jili waaw jërëjëf sëñ Mbacke dañuy tàmbalee ci ñi nga xam ni sëñ dañoo teew ba noppi indi ci seen wërsëg lu baree bare barkeeloo ko ci bés bi ñu jëkk ci tudd xaadimul xuraan sëñ Abdoulahi ja sëñ Babacar Gueye céramique Serigne Moussa Diakhaté di foncé Serigne Kab Gueye di foncé Serigne Modou Diané Sandaga sëñ Modou Dieng walla Ñang di kenn ci bàyyi sëriñ maam góor Silla Cheikh Diané Fleuris soxna Kiné Horizon Plus ca Mbour El Hadji Modou Silla Ousmane Gaye sëñ Ousmane Gueye sëñ Modou Diop Daara sëñ Balla Seck sëñ Cheikh Fall Kane sëñ Modou Silla Bois Silla Bois sëñ Thierno Karo sëñ Djili Silla bureau échange mook sëñ Basirou Silla sëñ Cheikh Amar ñooñ ñëpp mbooloo la moo xam ni dañoo teew sëñ Mbàkke waaye teewaale itam indiwaale xéewal yu bare bare barkeeloo ko ci bés bi léegi nag ñu war a ñëw ci sëñ xaadim balaa muy jël kàddu délégation bi nga xam ni ñooy waa kër sëñ ndaam abdourahman loo ñu tàmbalee ko ci kër sëñ mouhamad loo ki ci ñëw mooy sëñ daam abdourahman njabootu sëñ basiiru loo ki ko jiite délégation bi mooy sëñ fàllu mbàkke njabootu sëñ abdu Salil Lo kii jiite délégation bi mooy sëñ Abdou Lo njabootu sëñ Ousseynou Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Moustapha Lo njabootu sëñ Mahmadan loo ki jiite délégation bi mooy sëñ Cheikh Abdou Lo njabootu sëñ Cheikh Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Fallou njabootu sëñ Moustapha Lo Abdourahman di waajuru sëñ Xaadim mii ki jiite délégation bi mooy sëñ Xaadim loo Masalikul Jinaan njabootu sëñ Lamine Lo ki jiite délégation bi mooy sunu soppee cheikh moomadu Mourtada Lo njabootu sëñ Ahmadou waaw ak sëñ Ahmadou Mbàkke ma ñëw ci njabootu sëñ daam gu jigéen gi soxna maam say Lo ki ki ka teewal ki jiite seen délégation mooy sëñ Ibrahima Mbàkke soxna Fatou Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Abdoul Ahad Mbàkke soxna maam Xari Lo ki jiite délégation bi mooy sëñ Fàllu Mbàkke soxna Aminta Lo ka jiite bi mooy sëñ Cheikh Ndiaga sëñ Cheikh Ngaaya sëñ Cheikh Ngaaya Mbàkke njabootu soxna naaraloo Lo ka jiite délégation bi mooy sëñ euh, Mortala Seck njabootu soxna Rahmatullahi Lo soxna Rama Lo ki jiite délégation mooy maam Sëriñ Mbàkke njabootu soxna Bintu Lo ka jiite délégation bi mooy sëñ maam Mbàkke njabootu soxna Seynabu Lo ka jiite délégation bi mooy Baay Sëriñ loo njabootu sëñ Mbusoobe Buso ak euh, ki jiite délégation mooy sëñ Moustapha Buso njabootu sëñ Amdi Buso Bilal ki ko jiite délégation bi mooy sëñ Mbàkke Buso njabootu sëñ Cheikhouna Mbàkke Cumbuleen sëñ Cheikhouna Mbàkke Cumbuleen dafa bokk ci délégation bi ak euh, sëñ Jili May Mbay Longoor waa muxadamatul xidma itam sëñ Mbàkke jiital nañ fii am na délégation bu leen teewal sëñ Abdoulaat bu sëñ Maam Moor mu cheikh Mohamad Fadal bi nga xam ni bu ko fi lii fekkoon kenn du ko fi ci jiitu ndax ni mu meloon ci alxuraanul karim ànd na noog eh, sëñ Abdou jóob ak eh, ki nga xam ni mooy eh, ki ànd ci délégation bi ñu ngi yëgle itam ni kenn ci njaboot gi waaye di autorité itam di soxna Awa Diop. di ministre conseil auprès du président de la république son excellence Macky sàll waaye fan yii rek lii sax mooy génnam bu njëkk. fan yi président daf ko ni li ma la dénk ca France ak yooyu dama bëgg dama ciy boole laneen euh, ci réew mi wala ci réew yi muy dama bëgg taxawaay bu gën a ràññeeku ci daara yi ak euh, diplômé arabe yi kon ñu xam ni njaatige ci daara yi ak diplômé arabe yi kenn la ci njabootu Cheikhul Khadim ndax sëñ moo Modou Xabaan mi ñu dénk alxuraan gi fi ñu nii mooy borom këram kon ñu ngi ñaan gannaaw bii mooy yoonam génnam bu jëkk mu ñëw teewe si yàlla defal ko ci tawféex ba li président yéene ci daara yi ak yéene ko ci diplômé arabe yi yàlla defal ko ci lu kawe njottam kon sëñ Mbacke ñu kiiwaat ba ca kanam ndax li ma desa ci délégation xaw naa bëri tuuti billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa man wala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta alalimu alxakim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi am mbégte taxaw fii ci turu jëwriñu sëriñ daam abdourahman Lo di cheikh mohamadul bachir waaye ci turu njaboot gi yépp defe naa jili ñang ñu bari ci njaboot gi ñoo xam ne moo xam njaboot gu góor gi wala gu jigéen gi moo tax xam naa léeg-léeg ñu ngeen dégg ci tur yoo xam ne sax du ngeen leen miin jàppoon ne bokkuñ ci waaye sëriñ daam yàlla dafa dogal mu jaboote jigéen yoo xam ne eh, sunu borom barkeel la seen njaboot kon loolu moo tax ñooñu ngeen doon dégg ngeen doon leen dégg kon ma wax ne dañoo ñëw ci turu njaboot gi yépp di wax ci seen tur di wane sunu mbégte ci taxawaay bu am solo bii nga xam ne moom la sëriñ def muy njukkale Cheikh Abdourahman Lo mi nekkoon daarul alimul xabir ci ndigalu sëriñ Touba te doon fa taxawee alxuraan ba ñu baree bari niñ ko waxee sànq yàlla dogal ñu mokkale alxuraan ci moom euh, kon day mel ni sargal ko lu am solo la ndax mooy sargal sëriñ Touba rek bu leen fàttee ne sëriñ Touba moo waxoon ne bi xidmati alkitaabi walxadiisi yathbutu laa bi dahabin mawrusi nee na sama ndono mooy liggéeyal alquranul karim du xaalis bu ma fi bàyyi bu ñuy donn du alal waaye képp koo xam ne rek yaa ngi ci liggéeyal alquran xamal ne yaa ngi sama ndono nga bayit boobu dafa mat am solo ñu di ko bàyyi xel ndax mooy tax kenn ku nekk soo bëggee doon doon ñi doon Sëriñ Tuubaa nga xam ne joxañ baa ngoog foofu nga war a dugal sa gopp boo bëggee bokk ci ndono yi mën ngaa donn alal nag waaye nee na moom ku ku donn ci man alal donn woo ma li feeg liggéeyaloo alxuraanul karim lii nag jàpp naa ne ci liggéeyal alxuraanul karim la bokk ndax euh, waxoon nañ ko fi sànq nee nañ ku ko masaa jox kaamil mu jox la lu gën tool kon day mel ni fexe ba dundal alxuraan ci mbind dundal alxuraan ci mokkal ko teral ñooñ alxuraan day mel ni loolu ci liggéey boobu la bokk ndax mooy loolu mu doon def di teral ñooñ alxuraan di teral ku ko andil kaamil loolu la sëriñ alaaji sëriñ Seck jël kon loolu ci liggéeyu sëriñ Tuubaa la bokk waxoon naa sa waxoon naa ci bi ngeen sànq bi ngeen di seetaan ni sëriñ nag bu defee loolu wax dëgg yàlla dafa wàcc rek waxoon naa ne leen maamam ci li ma sëriñ Mahamadan Seck nettali te yaakaar naa ne euh, soxna maam ant Mbàkke dégg na ko li ma ko déggee te bokkuñu jotaay bu ñu ni ko nettalee mooy nee na sëriñ nija daf ne ma nijaayam sëriñ Daam Abdourahman moom moom sëriñ moor Badiane sëriñ Modou Badiane ba mu demee war a nekk sëñ Tayba la ko ba dem ba war a sanc ba defar di fa muy war a jëli njaboot yi dugal leen fa la jaar ci sëñ daam mu wax ko loolu ne ko damaa war a te comme maay sëñ ba kat damaa bëgg a dem sëñ daam digal ko mu dellu bayti toog fa te téye dong yi te yar leen ne ko damay ragal sa daara jii boo demee tey ba ab pays la mën naa am liggéey bi nga doon def dana yàqu kon nag bu sëriñ jëkkee ñëwee li mu jëkk a def mooy dundal daara jooja mooy dundal na ndigalu sëriñ Touba la ndax sëriñ sëñ daam li muy def sëriñ Touba ko kon sëriñ li muy def ci biir liggéeyu sëriñ Touba la bokk ci biir ndigalu sëriñ Touba bokk ndax maamam taxawaay bu mel noonu la amoon kon nag yaakaar naa ne tiitam sunu mbégte dolliku na biñ nu boolee ak waa kër sëriñ Mor Diop ndax day mel ni rek sëriñ moor doom la ci sëñ daam Abdourahmane te loolu mooy dëgg doomam la joo xam ne mat na sëkk bi ñu ko wanee moo tax ñu boole leen tey mën naa am am na ñum jur ci deret waaye xam ngeen ne sëriñ Tuubaa nee na woon doom ñaar la doomi deret ak doomi xaal sëriñ Mor Diop nag doomi sëriñ Daam Abdourahman la wax dëgg yàlla ku ko booleek moom ci bis bu mel nii njaboot gi yëpp dañuy màs rek mu mel ni nag li nga xam ne moo gën a am solo te gën a mat a bàyyi xel mooy li ma waxoon sànq te mooy liggéeyal alxuraan te mu mel ni jamono bi ñu toll jotaay yu mel nii tax na ñu baree bari ñi doon xaw a xeeb alxuraan ñi nga xam ne xëy na ñoom it ñi ngi doon yëngatu ci alxuraan waaye seen xol léeg euh, am ay jafe-jafe yu ci nekk ndax ni ni mu meloon tey bi ñu gisee ay boroomi alal yu génne woon ci daara ji jël seen alal def ci daara ji telal waa daara ba ñëpp gis leen loolu lu am am solo la du lu tuuti li bokk na ci li gën a dundal alxuraan bokk na ci li nga xam ne itam siggil na ñooñu alxuraan kon nag sëriñ Seck yaa ñi nga xam ne yéen a bokk di def liggéey bu mel nii du ñu def lu dul gërëm la ñaanal la te itam ni ma koy waxee rek alaaji sëriñ yëmalewu ko ci lii rek waaye nit yi daara yi du jotaay bii rek lay ñi na ci jotaay bii rek la teral waaye nit yi daara yépp lay teral di leen taxaw mboolem koo xam ne yaa ngi yëngutu ci lislaam itam mu di la jàppale ca la nga yëngutu kon loolu itam kon day mel ni rek ab goppam yëmalewu ko fenn waaye mu ngi fexe ba fépp fu aw yiw nekk mu dugal fa ab goppam ndax aw yiwam bari yàlla na gën a bari yàlla na gën a yokk bokk yi xanaa rek fi ñuy daanalee te mooy wane ne mag ñu mel nii suñu leen di fàttaliku am na bind bu am solo boo xam ne bëggoon naa ñu fàttali ko ndax dafa am sama benn mbokku daara boo xam ne daf maa wax lu am solo daf ne ma mag ñu baax ñi ngay dégg de kenn ku ci nekk bi muy nekk ci daaraam di jàngale te loolu ñu ñun itam am nañ ci sax euh, luñ ci jot a fekkee maanaam dangay ci gis koo xam ne day xëy nekk ci daara ji soxna si nga xam ne moo war a dem ca marché ba wuti lu ñu dunde day toog di xaar di xaar ndax amuñ luñ ko jox lu mu jënde ji lu mu lu mu lu mu lu mu jënde ji lu waa kër gi mos mu ne waaye li ci gën a am solo mooy sëriñ daara boobu doo gis ci xar kanamam wala ci melokaanam wala ci liggéey bi muy def te mooy jàngale bi luy wane ne amul dépasse tey bokk yi loolu bind la boo xam ne lu mat a bàyyi xel la sunu mag ñu nu jàngaloon ñoom foofu la ñu nekkoon seen poste dara daawu ci nekk yaakaaruñu ko fen nit waaye dara du soppi ci seen taxawaay lañ doon def waaye dañ koy def ci ci anam ga a rafete kon nag loolu bind la boo xam ne suñuy fàttaliku mag ñu mel nii nañu xam ne sëñ Mor Diop nañu xam ne sëñ Daam Abdourahmane foofu la ñu nekkoon mooy dañuy xëy duñu am dépasse waaye dara du soppiku ci seen taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf docteur Khadim ci teewaay bi ak kàddu yu rafet yi euh, ñu ki nga xam ne mooy sëñ Daam Diané Daam jaane day def taalif. boo xam ne mi ngi ko jëmale ci C3S badatu bi bismillahi walhamdu awwala calaay iqtibaasi waylu jommal ñu karbala la kàngam ya daa bàkkoo ko mbóoree ko tëb di dal calaa xëy di làccantu kafal xut bu xawsu laa kafal xawsu baddil awliyaa yéema berfale ma def xejj buñ xejjal ci waar wii ne jinne laa ndonak jàng laa booleeg mayuk yàlla bay imaam bu seen wayi dee jàkka li may bind xibla laa asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa fi ngeen ma dugal xat na woon diggante sëñ Amdi ak sëñ sëñ Baye Lamine ak sëñ Ahmadou Baas moom xat na lool fob leen galeen yi jóg te foor junjuñ yi jiin ko fépp riir géew leen ma bàkk waada piir kii dekkalaat fi daaq xalim fool leen galen yi fob leen galen yi jóg te ju junju ñi jiin ko fépp riir géew leen ma bàkk waada piir kii dekkalaat fi dàqalin bu leen ma woowal ibbu juuf mbaa baabu ngom kon wayu soof desiti njàmme lan ma tuuf jox leen galeen bi kor mareem moo nàmp meenum faaxilaat tey jiin dëndu mustafilaat dar leen ko yéen ñi neexe baat tey seeturaa es moom la jëm jox leen ma weer ak almiñoŋ ndax ma defal ko way wu ñoŋ ndaanaan di diir nga jam nga ñoŋ doo reere yann wuñ xorom yembal nga mbir ya yombuloon yombal nga yëf ya yembuloon bindal nga daa ya jëmbuloon bindal nga gaa ya seen daa xel ya xalam yembal nga mbir ya yombuloon yombal nga yëf ya yembuloon bindal nga daa ya seen gaa yi seen daa yi xel ya ñuy xalam jeexiiti daara mooy royaat ci seen siddiit yi yor xalaat lu ngeen jëmbat mu jebbi naat lu ngeen fi soobu am ci ndam yaatal nga mbindum alxuraan feeñal nga njoogu ak baraan teqatle tikkan nag jaraan delloo si àlliwoo xalim taaral nga kër yi bam ne booy yaa tax nu gont dab ña xëy lañ boo booyaloon nga jëkk bay siggil sa ngóob mi am na ñam c'est hmm. yaa tax ba néew ju doole jot ci rampe escalier yu net Belgique amul lii ngeen ñu yet yetuñ ko waa Jérusalem yaa tax ba néew ju doole jot ci rampe escalier yu net Belgique amul lii ngeen ñu yet mayuñ ko waa Jérusalem qualité ak fiabuloo xam naa da ngeen di kompaloo yaa natt mbub ma muy solo profession fi yéen la yam société day sociale waay société day sociale waay social nga jàpp def ko waay ngeen ànd nekk benn waay buy bay ci tool yi askanam lu ñu soxla rekk nga dem wuti yombal nga lépp luy wuti ku yegg ak kuy ñot ñoti ku nekk jox nga ko cëram xam-xam bi ak xereñ gu yaa gi wax nu foo ko tarbiyaa yaa tax nu gétti indo ci ay décor yu raw ngalam bi ak xereñ gu yaa gi wax nu foo ko yaa tax nu gétti indo ci ay décor yu raw ngalam waa réew mi deetul séentu weer yaa tax nu jot ci ngën ji veer yaay ndoom ma woon bi léeka leeram moo ci Afrika moroom waa réew mi dootuñ séentu weer ndax yaa yaa tax ñu jot ci ngën ji weer yaa ma woon bi lii ko leer amoo ci Afrika moroom dàqante nga gaayu Europe bañ ne pirip nga nekk topp ko lay xebet yàlla nañ ko rob kenn dootu dégg ay mbiram dundoo ci kaw askan wi rek am ko mu rëy taxtil nga jóg sa yitte mooy réew mépp jàkk diinay borom bi jëm kanam kenn mënta lim say ambulance wax waqful nga daara ay palaas yombal nga nit ñi say bagaas loonu deseel laa mënta xam say doole ak say dara ja jëppal nga lépp daara ja moo tax nu xippi def la ja ngay sun ginnaaw di suñ kanam kon seetura es jokkonjol ku bub nga neel bi yaa ko jël yàlla na borom bi dolli pal kawel la fii ak feenu jëm barkeel nu ful sunuy xalaat xéewal yu fees bay wal walaat yàlla nañ fi yàgg delsiwaat teewal fi gaa yi yor xalim yàlla nañ fi yàgg del si jërëjëf jërëjëf Diané jërëjëf jërëjëf sëñ Dame Diané ñu tàcc ko bu baax defe naa ñu bari ci ñun liñ bëggoon a wax ci c 3 daam defal nañu ko ak xasida euh, C3S a ngi noonu euh, foofu laay def sax ci c 3 ba léegi dañuy woo sëñ Dan euh, sëñ Mahmadan Dieng mooy yëkkati kàddu discours ram jëmale ko ci moo wala mooy yëkkati kàddu waa C3S ah ñu jaajëfal ko baax ci liggéey bi moom ak équipe bi nga xam ne ñoom lañ ci àndal yëpp ci njiital Baye Fallou fekk ci seen taxawaay nga xamante ne boole nañ ko ak seenub liggéey waaye boole nañ ko taxawu liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi ko ànd ak comité scientifique bi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi aousu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim sadid lisaani nawir jannaani safi amaani wasid baraay mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant di rafetlu bu baax a baax ci turu c 3 seen teewaay ci euh, bis bii nga xam ne bisub alxuraan la ci weeru màgg wi nga xam ne itam mooy anniversaire wu alxuraan euh, nuyoo yooyu nag ñu koy def si euh, turu jëwriñ ji alaaji sëriñ Seck ñu si njëkkee itam ki nga xam ne suñ ko tuddee rek dana mën a yóbbaale nuyoo bi jëm ci kilifa yëpp muy sëriñ bu Mbacke moom sëriñ Fadilou ñu teg liyoo bi ci ci loxoom ginnaaw bu loolu jàllee itam ñuy sant bu baax ak dalal eh, ñi nga xam ne ñooy famille bu parrain bis bi di waa kër Serigne Dame Abdourahmane ak itam famille bu invité d'honneur bu bis bi di waa kër Serigne Mor Diop bu bu Ndar bu loolu jàllee itam ñuy sant bu baax ak eh, félicité ñi nga xam ne ñooy mbooleem personnel bu c 3 pour bien entendu li nga xam ne jàpp nañ ko ci liggéey bi na nañoo wax sax ba édition yi commencé depuis première édition ba léegi mësuñu am ak ak ak ak ak noppi di xool naka lan mën a def ba bis bii di jàkk loolu itam particulièrement cérémonie bi nga xam ne ci ngeen ñëw teew yéen ñëpp euh, ay itam di félicité bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa commission scientifique ci njiiteelu euh, Serigne Khadim Ndiaye olof dafa wax ne sa mbir bul ko jox sa waay waaye jox ko waayam ñii ñooy waaye alxuraan waa C3S tàmm tàmm leen jox leen liggéey boobu te ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi topp liggéey bi xam nañ ne boobu ba tey mësunoo dañ itam di xool nu mu gën a rafetee ci qualité ba mu gënee ak na mu gën a jaaree yoon. ginnaaw bu loolu jàllee itam c 3 comme ni nga xamee itam muy kër goo xam ne ba mu sampoo macha allah yàgg na muy liggéey bu baax waaye ñu leeral ba tey ne C3S day day participer bu baax a baax li ñuy wax politique de des jeunes. di employé fi mu toll nii lu ëpp si junni doomi aadama ñu si euh, yaxantu di si amee seen wërsëg loolu itam baax na bu baax a baax ñu xam ne euh, foofu rek la nekk ngir xam ngir jéem a xool naka la euh, réew mi di jëriñoo ci C3S mooy suñu yitte bi loolu jàllee itam comme ni ko baaxoo defee itam dans le cadre de li nuy wax RSE muy responsabilité sociétale C3S di si defee action yu baax a baax a baax di ko di ko di ko di ko jëfee waaye dem ba gis ne itam concours bi aw yoon la ci action sociale yooyu mu mu mu jëm fa teg tànkam ndax itam suñ borom comme ni mu ko waxee ci ci ci alxuraan loolu sax doon nu doy ñu xam ne bu buñ ko deful woon itam du tee téere bi nekk fa mu nekkoon inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu la xaafisuun kon loolu dama moom laa tudde ne man loolu bërigo ci mbartal la soo poussé mu dem soo poussé itam mu dem waaye itam daf saa teg loo xam ne maa ngi jéglu ndax man ndongo dara bu français la bu bu yamoon foofu rek danaan bëri ko ci mbartal la waaye daa am lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam dana ko ce livre le Coran est bien entendu pour vous et pour votre peuple un rappel et vous en serez interrogés kon loolu aw aw aw aw aw kii la loo xam ne loolu suñ borom moo mi ngi wax na ko yow ak sa waa kër wa innahu la zikru laka wa li xawmika wa sawfa tusalun loolu kon de daal di am obligation boo xam ne kenn ku nekk si ñun war naa am ab taxawaay bu mu am si téere bi bi loolu amee nag la c 3 gis ne lii kon aw wàll la loo xam ne mën na see liggéeyal yàlla sunu borom muy wax ne itam réussite bu mu ci am bokk na kook ñi nga xam ne ñooy euh, sëriñu daara yi ndax ñoom la ko defal dëgg bokk na ko itam euh, ndongo yi bokk na ko itam ak képp koo xam ne autorité la moo xam ñi ndénk njàng mi ak ñu mën a doon ndax ñoom la koy defal da leen a teewal fii bépp jullit C3S jàpp na ne kon dala teewal ci liggéey bi waaye jàpp na ne yow mënoon nga koo taxawee comme ni mu ko taxawee ginnaaw bi loolu jàllee itam muy encouragé bu baax a baax daara yi ngir ñu gën saxal lii nga xam ne mooy mbind mi ci seen daara yi encouragé waaye itam nag di ñaan waajur yi ñu gën a bàyyi xel euh, ne ndongo bi wala seen doom yi nii nga xam ne dañ leen yóbbu ci daara yi nga la nan am euh, tuuti jot rek may leen àggalee ginnaaw njàng mi ñu jéem a xool naka la naka la ñuy bind ndax mbind mi dafa bokk ci li nga xam ne euh, day day day day day day bokk ci li nga xam ne dafay saxal mokkal gi kon xam naa rek ñu bañ ñu bañ a guddal bu baax a baax ñu xam ne mu ngi fàttali itam ne lépp loo xam ne jaam bi mi ngi koy mi ngi koy sàkku mu ngi ci téere bi ni wax ne alxuraan day day soigné waaye day guérir maanaam soigné ak guérir nee na bokkul man ngaa mën ngaa faj taw doo wéral alxuraan day faj di wéral mu ne itam day day day am protection ak sécurité alxuraan itam day aar ba pare indi ci protection day day maye fan gudd ak wér-gu-yaram day maye également li nga day joxe wërsëg te di ko barkeel maa farat naa fil kitaabi min shay'in bépp science boo xam ne dañ koy lamboo itam mi ngi si biir alxuraan kon dafay jaral rek di leen gën a di leen gën a euh, soññ ngir nu gën a jox yitte téere bi li nga xam ne nag fa lay jeexale te muy c 3 ci boppam nekk ci biir réew mi nu koy ñaanal muy ñaan ci mbooloo tedd mi nu ñaanal ko objectif am mu attendre ko te mooy ni mu amee juróom-ñeenti taxawaay ci biir fukk ak ñeenti euh, région yi nekk Sénégal nu ñaanal ko mu dem ba wër Sénégal gi yëpp waaye itam nu ñaanal ko mu dem ba euh, mën a tasaaroo ci sous-région bi yëpp loolu fa la ñuy jarale daal di ñaanal bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy candidat yi di xamal mbooloo mi ne kenn si ñoom démérité wul tey jii nekk lauréat waa scientifique particulièrement waa jury bi bu ñëwee di si wax gis ne xaj na ni ko baaxoon defee rek seen diggante yi ñuy rawante ay point yu néew a néew lay doon kon muy leeral ñëpp ne kenn démérité wut ñoom ñii ñëpp lu kenn man ci moom ba jël premier ñu topp si ginnaaw mën a noonu ko ñu leen encouragé bu baax di ñaanal ki ki gën ñoom wala ki nekk meilleur ci ñoom daal di yóbbu li nga xam ne mooy euh, trophée bi nga xam ne moo moo jiitu ñu ngi daaneel suñuy kàddu waaye fi ñu koy daaneel itam dañuy dama bëggoon rek woo ñaar si waa c su ngeen gisee décor bi suñ ginnaaw ak li ko jiitu woon ci édition yu mujj yi yi yi jàll yëpp euh, lépp conception bi lépp C3S la jógee kon ñu bëgg a woo ñaari techniciens yoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mu agsi fii muy sëriñ moodu Mamoul Fall ak euh, sëriñ Pape Gaye ñoom nag seen sant yi xam naa kii Gaye la sant kii Fall. sëñ Mamoul Fall kon nañoo. kon sëñ Modou Mamoul Fall ñu jox ko rek benn jaay sa boo xam ne. comité bi yépp ñoo ko ñoo ko defar ba bëgg ko jox mook sëñ euh, Baye Fallou Baye Fallou kaay jox ko diplôme bi ñu jox ñu jox sëñ Modou Mamoun Fall kon ni ko sëñ daan waxee defe naa décoration bi ñu fi ñëw ñëpp bëgg nañ ci te sagub daara la ñëw leen ba nii ñëw leen ba nii ci kanam ndax caméra bi jël leen sëñ kii dangay ngay dellu ginnaaw mu jox sëñ maamun ba pare jox sëñ Fallou ñëwal ñëw leen ci kanam bi si Mbacke si deuxième aywa xool leen ñu foto leen ngeen tàccu leen waay affaire bi donc da ngeen a yërëmtalu lool xaw ma koor gi la <laughs> ah jërëjëf jërëjëf sëñ Dad euh, beneen bi beneen diplôme bi ku ko moom kan lañ koy jox. sëñ euh, Papa Gueye. sëñ Papa Gueye sëñ Papa ñu jox sëñ Mbacke Abdourahmane mu jox ko diplôme ñëwal nii ci kanam diplôme d'honneur wala remerciement ci liggéey bu rafet bu xereñ bi nga xam ne ñi jàkkaarloo ñun ñëpp rafetlu nañ ko. ñu tàccu leen bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf sëñ Dan jërëjëf kon sëñ Dan. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mbacke kon ñu wéyal programme bi. Mm-hmm. Euh, gannaaw kàddu yooyu sëñ daan yëkkati yëkkati ko ci turu personnelu c yëpp. bu ñu demee ba ci jeexitalu jotaay bi danañ yëkkatiwaat yeneen ñaari kàddu kàddu gu bàyyikoo ci kii waxal euh, alaaji sëriñ ak kàddu Baye fàll mi nga xamante ne moo jiite woon liggéey bi ànd ceeg mbokk yi kàddu yu remerciement mm-hmm. waaye nag fii ñu toll nii war a joxe kàddu fi kàddu gi jëm nag foofu daa mel ne. mbokk yu baree bare dañ leen di xaar ci liggéey bi ndax taxawaay yu am solo yuñ ci taxaw muy ñi nga xam ne ñoom ngeen jàkkaarlool ñu féete leen seen ndeyjoor di sëriñ daara su baax fii borom xam-xam yi nga xam ne ñooy comité scientifique bi def liggéey bu rafet a rafet rafet ci mbindum alxuraan mi ak euh, liggéey bu rëy bii du ma ci sori sëñ Mbàkke Sourang kenn la woon ci seen biir moo ñuy xamle ak ñoom daal di introduire ki nga xam ne mooy président bi mu jël kàddu ñu tàccu leen bu baax a baax. waa na sëñ Mbàkke ni nga ko waxee noonu la noonu la demee xam nga léegi maam lañ na al ilmiya muy commission scientifique bi ñi nga xam ne ñooy ràbbu euh, ni ñuy bindee di teg nattukaay yi di ko teg ci liggéey bu bu set bu xereñ mooy ñu ngeen di jàkkaarloo ñi ñu nekk ay xufaas man man alxuraan bindi ko beqe ko bind ay kaamil xam li si nekk si ay sew-sew yëpp commission boobu nag Serigne Khadim Ndiaye mi mooy kii xam moom moo ko jiite Serigne Khadim Ndiaye al imam moom mooy secrétaire général ci rabitat madaris alxuraan di jiite fii Dakar ci jumaa yu am solo yi di am di taxaw taxawaay bu rëy ci lislaam di xeexal daara saa su guddi ak bëccëg moom la ñuy jox nag mu wax ci seen tur Serigne Khadim Ndiaye bisimilah. ñu rafetlu lool teewaayu sëñ Abibu sëñ abibu Abibulahi Mbàkke moom Cheikh Mohamad Fadal sëñ Abibu ñu Tuubaa ca kanam euh, feggoog euh, magam ju baax ji nga xam ni mooy sëñ Abdul Ahad ibnu Cheikh Mohamad Fadal. Euh, sëñ Abdul Karim Mbàkke moom sëñ Touba Cheikh Abdul Ahad moom it yegsi na ci jataay bi ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax ba tey ñu dellusiwaat sëñ Mbàkke ci ñi nga xam ni yamuñu ci teew waaye dañ cee boole yëkkati seen alal ni ni bàyyi sëriñ duñ la bàyyeeg lii dañ koy bokk ak yow loolu bokk na ci sëñ Fallou Galas Mané euh, sëñ Bousso mi ma leen doon tudd sànq sëñ bu sa moom bu ma gisee rek sama xel dem ci sëñ Moussa moom Cheikh Abdoul Khadir moom it def ci barkelloom sëñ Mori Xuma kazalika naka noonu sëñ Daam Silla sëñ Daam Silla moom it joxe barkeeloom sëñ Mor Lay moom it joxe barkeeloom barkeeloom euh, sëñ Maam Mor Dieng mondial karo di kenn ci ñun moom it ni ni bàyyi sëñ duma la ko bàyyee la euh, soxna Soda Cissé MCP moom it joxe barkeeloom sëñ Modou karaa Guèye moom it joxe na ci barkeelu euh, ñii nga xam ni itam ñi ngi leen di tudd bàyyi sëñ jagleel leen bëgguñu tudd leen ndax li ñu àndeek moom liggéey bi te teyit bokk ci euh, ay mbokkam muy sëñ Talla Mbaye euh, sëñ Ibra Mbaye Longoor ku ñu xam ku baax sëñ Thierno Seck Baye Matar Kare sëñ Xaadim bi yàgg xam ngeen ni waa tey Taïba Cekkeen itam teew nañ fi teewaay bu am solo maire bi ci boppam moo ko jiite mu ñëw ak ñoom soxna Assu sëñ Cheikh Seck ak sëñ Abdou Latif Seck ñoom it ba tey ci famille bi waaw soxna Assu ma waa tey ba Cekkeen Baye Cheikh Balla rek sànq bi ngi woote naan amoon na yéene lool teewe fekk si jataay bi moom it ay xat-xat ci wàllu yoon wi di wàññeeku moom moo ko xaw a téye santaat bu baax itam Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax dafa yebaloon ndaw waaye yàlla dogal mbaaxuk sëñ bi ak xëram ci taalibe yi sëñ Ahmadou Badi yi ñëw na daanaka ba ci rond bi sëñ bi woowaat ko am beneen liggéey bu mu koy sant koo xam ni itam dafa nekk ku sore ci moom yàlla dogal am tiis wu am ca këram euh, sëñ Muntaxa woo sëñ Ahmadou ni ko sama sama xel yow rek la dab yow la daj ci nga dem teewal ma fa mu daal di wàññeeku fàttaliwu ko sax ni ko da nga maa yónni woon fii daf ko wax loolu rek mu daal di wàññeeku kon euh, sëñ Abdoul Ahad euh, sëñ Axma mi ngi noonu kon yëf yaa ngi seen loxo incha allah <laughs> yëf yaa ngi seen loxo. macha allah ba tey di sant euh, di di di wax rek ñeneen ñi nga xam ne teew nañu bu ko defee sëñ Mbacke. Mm-hmm. yaakaar naa ni bu boobaa du jar ñuy ñuy ñuy ñëwaat xëy na. Mm. waaw tudd naa léegi waaw. li nga defee bëriwul. déedéet. waaw sëñ Modou euh, karo de 2000 sëñ Naar Sourang euh, sëñ Daam Sourang sëñ Modou Guèye ak ki nga xam ni mooy sëñ Cheikh Ndigal seen moom yabal na fi délégation koo xam ni ki nga xam ni mooy sëñ Aliou Diouf imam moom moo ko jiite. waa kër sëñ Malick Dieng itam xam ngeen nii ñi ngi fi euh, sunu sëñ daara bu baax boobu. Euh, ñoom it ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi rafetlu seen teewaay bu baax a baax daayira ànd taxawu daara sëñ ji liggéey ak soxna ami ñoom ñoo leen teewal ñooñu ñoo fi ñëwaat ak sëñ Modou Gassama euh, Karo ak ki nga xam ni nag mooy euh, sunu ustaas bi nga xam ni daanaka du tudd du def émission te tuddul c 3 muy imaam Alioune sàll ak ñi nga xam ni ñooy waa daara ji yëpp. muy Ali bu buñ ko tuddee tudd nu sëñ Mbàkke tudd nañu sa daara kon yaakaar naa ne bu fi dara ñëwaatul wala bu ma fàttewul xanaa lenn joxoon nan ma waa kër euh, sëñ sëñ Moor mm-hmm. sëñ Mor ndax ñoom ñu seen délégation. Mm-hmm. demal te ñëw sëñ jii li ah. demal demal demal nose ko moog li la sëñ bi di jox. waa kon ñu doon ko voilà bu sëñ nga ñëw nga ñëw joxe ah. mooy gën. ñu jaajëfal ko bu baax daal di déglu nag sëñ xaadim ndax dañ ko annoncé ba noppi. te ñu ngi koy xaar te ñoom liggéey bi nag euh, mën nañoo wax ne li ci ëpp solo di di yaxub li ñu fi dajale muy téere bi euh, ñoom ñoo ko doon saytu ni ko sëñ Mbàkke waxee ndax jotaay bi jotaayu feeñal aaru alxuraanul karim la ak mbind mi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 alxafdul karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñi ci saal bi ak ñi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy assalaamu aleykum di jiital ci nuyoo bi ci jataay bi koo xam ne buñ ko nuyoo dana yóbbaale ñu bari muy cheikh Mouhamadul Habib cheikh bu cheikh Mouhamad Fadal di nuyu itam El Hadj Serigne mi nga xam ne moo am xalaat bi. jiite liggéey bi di nuyu itam suñu xarit alxaaji abdullahi ja xaadimul quraan ndax xalaat bi ñoom ñaar teel nañ cee déggoo teel cee waxtaan ba fii ñu toll alxaaji abdullahi ñu ngi lay nuyu di nuyu grand prix Sénico bi nga àndal nga xam ne mooy musaabaqa bi jiitu te yàlla bi waxee ci xalima ak la xalima di yuut làmmiñ di ko tudd ci loola ngeen nekk kon musaabaqa boobu ak bii yépp benn la muy jàng ak bind dind yu mbooleem ñi nekk ci jataay bi yépp bàyyiwuñ kenn bala maa ñëw ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy jéem a tënk damay tudd ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci lool yi liggéey bi bu yàgg la bu metti la bu bari ay sew-sew te yombul waaye ñi ko séq buñ leen tuddee da ngeen xam ne loolu mënu leen a të ku mel ni sëriñ Mbàkke Abdurahmaan mi ngi nii ci suñu ginnaaw ak sëriñ Cheikhuna Mbàkke Abdul Wadud ak sëriñ Sam Mbàkke mi ci sama ndeyjoor sëriñ Moustapha Diop Ndar ci sama càmmooñ sëriñ Mor Talla Ndiaye sëriñ Mbàkke Sourang sëriñ Xaadim Ñang sëriñ Mokhtar Kebe sëriñ Daouda Sakho sëriñ Moustapha Gaye sëriñ Amdi Moustapha Diop sëriñ Saliou Sall borom boole yi sëriñ Ousmane Dia ci Raniiru ak maam Thierno Wade sëriñ maam Cheikh Ndiaye buñ ñëwee ci jigéen ñi soxna maam Xawa Dem ca Poroxaan ak soxna Marème Jaxate ak soxna Faambay Ñang ak soxna Jóob ñooñu la ñu àndal comité scientifique bi di ci liggéey danañ leen wax ni nu doon liggéeye incha allah ñu ànd lool nag ak jëwriñu liggéey bi muy sëriñ Fàllu Sekk di rakki sëriñ mu boole ñoo moom muy taxaw lépp loo xam ne nii bu amee liggéey bi dana baax muy doomi daara di dongab daara di suñu mbokkum daara kon nii la liggéey bi tëdde bu ñu ñëwee nag ci doxin wi dafa am ay étape muy ay maraaxil xalaat bi bi ko sëriñ amee ba joxe càkkutéefu ñu taxawal ko ci lii li tax mu xalaat ko mooy li ñu bari junji mooy alquraanul karim bu du toon bind deesu jàng te yàlla bi muy wax yonente bi iqra jàngal booba lañ xam ne kon bind mënta ñàkk duñ yàgg ci li tax yonente bi bindutoon loolu ñu bari xam nañ ko waaye bind bi ak jàng ñu ànd exposé bi ñu fi def wane na ne bind yi itam yàgg na fi te doon nañ ci taxaw taxawaay bu rëy mu gis nag ne nim yore daara xam ay daara gis na ne léegi tari moo gën a bari bind mbokk yi gone gu jàng alxuraan ba tari kaamil bi te mënta bind faatiha bu ko xoolee sax mënu ko bind ndax loxo bi tàmmu ko bu demee ca araab ba di jàng bu demee day metti ci moom lool kon loolu ak yeex la wala ak dellu ginnaaw goo xam ne ci wàllu mbind alxuraan a koy def mu xalaat ne kon nu muy def mooy bu organiser concours bu mel nii ñu yaatal ko ci senegaal joxe ci ay neexal sensibiliser nit ci nit ñi yee leen ci jàngal leen danañ gën a xam ne ndekete alxuraan boo ko bindut genn wàllu alxuraan nga yor boo watuwul loolu moo waral xalaat boobu ñu tàmbalee ci étape bu njëkk bi léegi kon lan la ñuy war a def pour concours bi am mooy faaw danañ am benn comité scientifique boo xam ne day teg ay maayir mooy ay nattukaay yi muy évaluer xale yi te yooyu du ko génnee ci xalaatu boppam képp waaye da koy génnee ji ca téerey xam-xam ya yay jàngale loolu ak téerey xam-xam yi nga xam ne yuñ bindoon la ba noppi mu nekk fii ci réew mi ñuy wax alxatul mahalli loolu bi nga xamee ne am na commission boobu muy ñii ma tudd ñu defaat benn commission boo xam ne mooy communication pour maanaam xamal nit ñi lii nu yor lan la ak organisation ak ñi koy tanzim di ko organise ak finance nga xam ne ñeenti commission yooyu lañ taxawal bi ci njëkk nag moo war a def liggéey boobu mooy léegi nan la ñuy xame ne diw mii moo dàq bind diw kon dañuy teg ñetti nattukaay walla nattukaay bi day am ñetti tànk benn bi dañ naan ki ciy bokk ci concours bi faw mu mokkal alquran kuy tari ku ne xam na ne bu gàggee ñu xam waaye kuy bind nan la ñuy xamee ne mokkal na ñu ne kon mokkal gi mënu cee ñàkk bu ñaareel ba mooy mbind mi daa war a rafet mbind mu rafet dafa am ay nattukaay dafa am ay norme yu ñuy xam ne diw mbindam mi rafet na ba ca des mooy alquran bokkut ak li ñuy wax alqawaid al imlaiya ni ñuy làkke arab nga dicté dit mu bind grameer bi naxu bi lépp sarfu bi ñëw loolu alquran du ci tënku ndax alquran tawqiifi yi la léppam nim mel la wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba egsi ci ñun amul soppi kon loolu maayir yi nga xam ne mooy wane ne lii kat dëppoo na ak alquran loolu ñu tuddee ko ar rasbul uthmaani yi kon dañ naan téeméeri point lañ ñuy laaj mutasaabiq bi téeméeri point yooyu fanweer yi day jëm ci mbind mu rafet fanweer yi day jëm ci mokkal gi wala mokkal gi mbind mu rafet day am ñeent fukki point arrasgul usmaan yi am fanweeri point mokkal gi am fanweeri point muy téeméer su boobaa kii bokk ci liggéey boobu dañ ko naan dangay bind aw xët benn page boo xam ne da koy bind mboolem Sénégal nag ku fi bind am na fooy déposé mbind moomu bu ñu defee collect bi dajale ko def dépouillement bi xool comité scientifique bi jury bi toog natt ci nattukaay yi nga xam ne moom lañ moom la ñuy bëgg a wax nattukaay yi nag mënee sut a tudd lépp ndax buñ nee bind mu rafet araf ci nekk boo ko xoolee da nga xam ne araf wi lim tudd nim tudd ak nim fi mu tëdd noonu la war a mën a demee ci misaal boo bindoon yastabshiruuna raa gi ak waaw gi ak nuun gi ni ñu war a uufantee loolu dafa am ay normes yoo xam ne su ko wuutalee dañuy xam ne ko moom mi wàcc na yoon wi bu fekkee dafa bindoon muslimuuna wala leen ñu gis ne miim gi dafa gëmm dañ naan gëmm googu mu gëmm kon wërta gëmm dañ ko koy jàppee dana am lu mu wàññi bu fekkee nag ci mokkal gi la bu yàqee maaska wala mu jël baat wala mu tanwiin lu matuta tanwiin wala mu def leneen dañuy xam ne kon mokk gi dafa des dafa runge wala yu ni mel bu fekkee arrasmul usmaani yi la lu war a naar lu war a dog lu war a mbóore lu war a def leneen loolu ca lay ca lay ca lay ñëw su fekkente ne gis nañ ne loolu respecté na ko bu ci nekk nag tafasil muy détail yu baree bari la am yoo xam ne buñ ko jëloon moom kese di ko jàngale di ko wane dana jël temps bu bari kon dañuy tënk rek ne dañ leen a wutal ay nattukaay yoo xam ne comité bi moo ko taxawee beneen ñaareelu tomb bi ñu nekkoon kon ñu wër Sénégal pour sénégalais yi xam ne concours bii kat am na def nañ tour boo xam ne. dem nañ maatam dem nañ Rañiru dem nañ Wuro dem nañ Ndar dem nañ Kaolack dem nañ Jaamal dem nañ sookoon dem nañ piir dem nañ Ceneba dem nañ Njaasaan dem nañ Touba fasture Daarul Mooti kokki fu ci nekk ñu dem fa ci daara yu mag yooyu wan xalaat bi waxleen leen liñ ci jublu ñoom ñëpp ñu rafetlu ko wane ne ñoom yëg nañ fi nekk ne seeni daara mokkal gaa ngi fi ak tari waaye mbind moom daani ki ñoom gisatuñ ko ñu dellusiwaat nag doog a tàmbali liggéey bi ci anam yi nga xam ne moom lañ tuddoon teg maayiru ki muy nattukaay yi ñuy évaluer mutasaabiq bi teg itam yoon yi nga xam ne ku ci bëgg a bokk moom nga ci bokkee loolu am na ci loolu dañ koy bàyyi ak président jury bi muy docteur Moustapha Diop Ndar su ci egsee euh, dana ko leeral waaye kon an nasul quraan yi muy yaxub alquran bi nga xam ne nag ci la liggéey bi nekk ci lañ bëgg a tënk tuuti yaxub alxuraan bi nga xam ne ci lañuy xame kii mën naa bind wala mënta bind mokkal na wala mokkalut muy nas nassil quraani wa masaadiruha al musxaf al usmaan yi buñ ko waxee lu tax ñu ne musxafu usmaan boroom xam-xam yi wax nañ ne loolu idaafatu tashrif la usmaan fi la fekk al quraan waaye daf cee jëf liggéey boo xam ne ba léegi ay empreinte am ma ca ay cati baaraamam ma ca moo tax tur wi des ci ndax xam ngeen ne dajale gi nga xam ne moom la dajale alquran daje gu mujj nga xam ne am na yu ko jiite woon daf cee defoon juróom benni dañoo bind alquran juróom kaamil yoo xam ne benn la commission bi ko bind benn la mu jël benn copie bi yóbbu ko Basra jël benn copie bi yóbbu ko Kuufa benn copie bi ñu yóbbu ko Shaam benn bi ñu yóbbu ko Makka benn bi ñu yóbbu ko Madina bu juróom benneel bi moom mu nekk xalifatul muslimina mu yor ko loolu rekk dana wane wuute yi nga xam ne mooy am ci wàlluk mbind lan moo ko waral lu tax mooy ginnaaw alxuraan indiwaalewul woon ay tomb tomb yi mi ngi fi ci tasawur waaye ci jëm mu nekku fi ay yax rek la woon yoo xam ne amul ay tomb amul ay masque amul sàdd amul suqi amul sumun amul rubu amul xisb kon buñ séddalee juróom benn kaamil ci goxi àddina bi ci aw làkk ni muy évoluer ak ni ni ni làkkiin yi wuute bu ñu saalum ak jolof ak njaambur ak kajoor ku ci nekk xam nga ne seeni waxit bokkut da nga fee dem keene fa nga dem Saalum ñu ne faane nga dem fee ñu ne daane nga dem fee ñu ne damane te ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu waxte ay wolof lañ kon waxiinu araab yooyu wuute gi muy wuute dana jeexiital ci loo xam ne amul benn tomb buñ demee ba di ko tomb jamono dem ba yàgg ju maas ko jamono dem ba yàgg ju suqe ko jamono dem ba yàgg ñu wutal ko ay subun jamono dem ba yàgg ñu wutal ko ay rubu ay ahzab évolution boobu ci gox yu bokkut yi loolu dana animéerul madaarisu rasmi mooy école yi bind alxuraan yi ni nga xam ne noonu la école yi wuutee kon boo ñëwee ci li ñu wax ak dapt xam nga yax baa ngi fi woon waaye dañuy maas alxuraan buñ koy maas am na benn téere bu ñuy wax at-turaas ala dabtil xaraas bu dee ci wàlluk daft kooku marji ala ci muy maska loolu machaariqa yi bokkut ak waa sowwu waa penk ñoom loolu seen marji ala ci wàlluk daft googu bu dee waa andalus ak waa magrib ñoom dañoo am seen tariqa xaasa boo xam ne ñun ñi ci lañu tënku am na benn jus u boo xam ne ñi ji ñi gañe woon daaw am na ci kuñ ci binduloo mbind moomu sonn nañ ci topp nañ ko ci nattukaay bii nga xam ne moom lañ mujj a wax ci rasmu ak dabt ak fawaasil ak eh, eh, ahzaab yi ak sajdaat ak saktaat yi ak wuquuf yi yooyu yëpp ci qaayida yooyu yi nga xam mooy bu maxaari ba bu andalus bi ci lañ ko tënku te nekk na ci benn eh, téere bu leer naa ñi kon dañu may junj ne waxtu liñ ma mayoon ci ay minute euh, day bëgg a jeex wala dafa jeex waaye da ngeen cee limaale sama nuyoo xam naa moo tax mu jeex te waru leen ko ci woon a boole euh, su ko defee xam naa ñu jeexale ci waaw ñi nga xam ne ñoom la war a si ci ñoom nga xam ne dama dama koo jëloon ci ndax oo jaala muy ñi nga xam ne euh, ñooy comité scientifique bi nga xam ne dama leen a wan ginnaaw xëy na moo tax sëriñ Bachirou Diang ca Njaareem sëñ Alhaaji Njaay Cheikh Ndindi sëñ Alhaaji Jaxate sëriñ Maam Balla Silla sëriñ Moustapha Gay moom tuddoon naa ko sëriñ Abdou Seck sëriñ Saalihu Silla tuddoon naa ko sëriñ Omar Silla ñii ñëpp ci comité scientifique bi lañ bokk mu doog a séddalikoo nag ñu ci nekk am na pàcc bu ñu leen dénk nga xam ne moom la ñuy liggéey ngir bu ñu noppee kii nga xam ne moom lañ doon xayma di nat ak mën a bindam buñ ko nee dangaa daanu dana xam li ko daaneel te buñ ko ko wanee bu ëllëgee loolu duutu ko daaneel la ca des nag ci ay leeral incha allah ki nga xam ne moo jiite jury bi sëriñ Moustapha Diop Ndar su ci egsee dana gën a leere foofa incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Xaadim Njaay mi nga xam ne moom moo jiite commission scientifique xaj na euh, li mu bëggoon wax sax ëpp na loolu waaye ngir xataayu waxtu yi rek moom moo tax ñuy njëkkanteeg moom alhamdulilah waaye daal ci ak gàttal liggéey bu leer la boo xam ne ci ay nattukaay yu wér la bo la tegu xam naa itam ñu xamal mbooloo mi ni ñaari orateur rek incha allah ñoom ñooy des bu ko defee ñu mën a joxe résultat yi Cheikh Mamadou Fadil Seck moom la ñuy jox kàddu mm-hmm. Serigne Fallou Seck di jawriñ ci liggéey bi moom itam di ci liggéey liggéey bu am solo wuutu ci mbooloo mi Alaaji Serigne Seck moom lañuy ñuy jox kàddu mu joxe ay kàddu cantam sëriñ Mbacke si la Serigne Mbacke mel na ni bu demee benn waxtu rek benn ñaari orateur rek insha allah daanaka waaw daal di mën a joxe résultat insha allah mbooloo mi tàgguru jeex na léegi loolu daanaka moo ciy bëgg a des ñu jox Baye Fallou kàddu gi Baye Fallou euh, waaw foofu nga bëgg toog waaw foofu baax na kon ñu jox Baye Fallou Seck mooy jiitewe woon liggéey bi ni ko suñ Xaadim waxe léegi euh, sëñ Mbàkke Sourang wax ko léegi ñu njëkkante ak waxtu bi Baye Fallou bisimilah. bëgg a indi ak cant goo xam ne si dafa war ci ñi sëqal liggéey bi muy commission commission commission scientifique mi jiitu ci commission yi ak communication ak organisation loolu moom sëriñ moo ci am kàddoom waaye dama koy tural euh, dama koy limal ñi ko séq boobu moom mu jox kàddoom walla mu ñëw indi ak santam ci ñoom waaye ginnaaw dañuy ànd liggéey bi booba tey ñu ànd kook ñoom te dara desut liggéeyin bi sell doxin wi sell euh, jëfin wi sell ànd àndandoo gi sell ndax bi ñu ko àndee ba léegi teel a ñu ngi ci quatrième euh, édition yi nekk waaye nit mës cee nekk génn ci ñu ne kii ci la nekkoon amugu amut mës ñu ne ñii werante nañ ci mës ñu ne nangam jógal ci nangam mu mu joxe ngànt loolu nag war naa mat leeral moom it jël liggéey bi teg ko ci suñ loxo ñu ànd ko ak ñoom euh, ci jiitul sëñ Xarim Jaay scientifique bi moo limee tur yi rek sant gi moom ci yow la ci yow la aju sëñ Musaa Jóob Ndar sëñ Sam Mbàkke sëñ Mbàkke Abdourahmane sëñ Seexna Abdou Wadoot sëñ Amdi Mustafaa Jóob euh, sëñ Basiiru Jang sëñ Mbàkke Surang sëñ Xaadim Ñang sëñ Maam Balla Sill sëñ Alaaj Njaay Seex Ndindi sëñ abdu Seck sëriñ muxtaar kabe sëriñ alaaji mbàkke jaxate sëriñ saaliwu silla sëriñ saaliwu sàll sëriñ omar silla euh, sëriñ maam seex njaay sëriñ daawuda saaxo ak jigéen ñu jàmbaare ñu suñ biir ñoo xam si amaloon bi mu jafee ñoo ñu ko yombalal ndax am nañ fi ñaari illusion yoo xam ne demee rek ay candidat jigéen jafe nañu lool waaye bi ñu ci duggee ba def ay tournée ñoom gis nañ lim ñu indil ci seen njiit di soxna maam Awa Dem ak soxna Fama Mbaye Niang ak soxna Mariam Diakhaté ak soxna Diop ñuy ñoom ñoom itam ñu nekk ci commission scientifique bi euh, ak euh, ñu doole ci ay sëñ Sakkan Basi euh, sëñ Sakkan Basir ak sëñ Abdou Khoudous Sylla ak sëñ Moustapha Gaye Euh, ak sëñ Mortala Njaay xam naa ne mën na maa juum waaye boobaa xanaa dañ koy dañ koy jéglu ndax euh, li bàyyi ci tur yi ba tey ñooñu itam waa trois waa C3S ñëw seen njiit muy Dame Touré moom wax dëgg dinaa ko bal ak cantam cant goo xam ne si cantu kawe la war a doon ndax ak nangu ak coon ab coono ci liggéey bi li ñu koy teg teg sama loxo lu bari woyofalal na ma ko ndax mu gën ndax woyof gi ma gën a woyof tax na lu bari mu féetewoo ko boole ko akul liggéeyam nag du ci sonn du ci tàyyi fu ma geesoo dinaa ko gis lépp lu may wax defal tam def ko tam tam war koo def euh, bala ma ko wax dina ca nekk kon nag daam moom maa ngi koy maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ñëppay jàmbaar waaye nag moom xëy na sës gim sës ci maa tax euh, ak njàmbaaram gën a euh, gën maam ma gën ca ràññ ko ci ci commission bi bi mu jiite moom itam mu ànd ko ak sëñ Mamoun Fall euh, ak euh, sëñ Mamoun Fall ak sëñ Mouhamadou Dieng sëñ Mouhamadou ñoom moom Mamoun ak Mouhamadou Dieng ba tey ñoom tam noonu lañu amuñu tayel amuñu sonn ba tey euh, sëñ maam Thierno Wade yaakaar naa moo tam ci liggéey bi la bokk maanaam tudduma ko waaye ba tey moo tam ci mu ngi ciy góorgóorlu bu baax ak sëñ maam Balla Touré xam naa lim dafa jafe waaye ku ma tudd rek. xamal ne moom bëggoon naa sa tur yegsi ci moom mi teg liggéey bi suñu loxo ba xam ne yéen yéen ngi ci liggéey bi ku mu ci tur rek ma maa ngi koy jégalu la ma ci teg rek moom mooy sama cantu bopp googu maa ngi koy sant ma ñoom ñëpp maa ngi leen koy sant waaye eh, sant nag sëriñ mi jël liggéey bi teg ko sama loxo ci doyloo gu ma doyloo te ma xam ne man doyuma xam naa ko bu baax ndax eh, dama ànd ak jàmbaar rek ay jàmbar na boo ànd ñoom loo def rek day mel ne def nga dara waaye fekk na booba euh, sa def daf bëriwul waaye doyloo gi ma doyloo ba teg liggéey bi sama loxo ñoom itam ñu xam ci sama yéene tax na fu ñu ko foogee rek liggéey bi weesu liggéey bi da koy weesu amuñ ci ak tayel amuñ ci ak yox-yoxi kon nag sëriñ man maa ngi lay sant cant goo xam ne si yaakaar nga yaa war a sant waaye man dama yaakaar maa la war a ndax man lii day lu ma war a nekk loo xamante ne si ñun ñëpp muy man muy yow xam nañu sunu la ak ñi fi ak ñi fi teew ñëpp kon nag bu lii amee nga teg ma ci kanam ne ma toppatoo leen ñoom yor liggéey bi dama yaakaar cant gi ci man mii la war a jiitoo doyloo gi ba nga ko teg sama loxo da nga ne ma lu ma ci laaj dara bu ma ci bu ñëw di ma ci wax dara nga xam ne maam sauf année bu année bi jeexul rek jéem moo xam na mu demee loolu itam xam naa ne soo maanaam du ma ko def kon nag sa jukko ju rafet jooju nga àndeek man ma àndee koo yow te yàlla rek tax ak Guinée ginnaaw bokki doog a ñëw maa ngi ci maa ngi lay sant bu baax a baax wax nag jafe na ma waaye xam naa ne sant naa bu baax nit ñi léegi ñu ma yërëm sax naa ma liggéey bi diis diis waaye doyloo gi ak kóolute gi ak ñi ma àndal ñu sawar ci tax na amatul may ci yëg guddi ak bëccëg su ma sonoon toujours ci laay nekk rek ndax xam naa ne nekkuma ci lu ko gën kon maa lay sant cant bu wax xaw ma fu mu yem fi mu tàmmee laa xam waaye xaw ma mu yem asalaamaaleykum wa rahmatullah kon maa wax seen Cheikh Gueye mu ñëw indi kàddug sëriñ indi ko mbooloo doon liggéey liggéey bi ñu ànd ko ñoom liggéey dama fàtte ñu ko séqaloon ba tey te te am ci solo te tudd ñu leen muy jigéen ñi xam si baax na ci ci ci gaa yi ngéen yi ak seen daara yi xam si moom kalaw sëñ xaadim gi ndax fu ñu demee rek li ñuy féetewoo da nga cee góorgóorlu seen kamtulaay kàttan ku mel ne soxna Fatim Mbàkke mi ne Dakar waxtu ñu amee réunion rek xam naa ne li gaa yi bëgg moom mën na koo indil gaa yi kon na ñoo koy sant bu baax ak soxna maam ci la mu féete fii bu ñu demee Touba itam ku mel ne Dame mu dana wax léegi waa këram lu ñu fay jëfandikoo moom itam ca moom ci ñoom la koy jaaree ñoom ñëpp ñu leen sant ñooñu kat dañ cee bokk jërëjëf jërëjëf. Euh, waa sant itam. ñoo mhm. leen sant bu baax a baax. jërëjëf Seck. asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf bisimilah sëñ waa kañ jërëjëf euh, sëñ Jili Ñang bu Kër Ñang sëñ Jili Ñang sëñ Daara fii ci Ndakaaru waaye sëñ Jili Ñang itam di yu ñu Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni ñu ngi waajal première édition bi ren ci alxuraanul karim mi ngi ànd ak sëñ làmp Diop ñoom it euh, ñu ngi ci jataay bi ki nga xam ne nag mooy soxna Ndey Jàlloo na subaa couture. moom moo ñëwal sunu kaang fóore yi ba noppi la mu waroon fayu xaaj bi lan ko jox mu ni day jàpp ci bés bi ñu ngi koy sant bu baax mi ngi fii ci immeuble Touba waawal waa Walfadjri itam dañu yebal oustaz Assane Diouf di ku baax moom la DG euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane bu sëñ Sidi Lamine moom la yebal mu ñëw euh, sëñ Modou Khayra Niang moom it euh, ñëw na sëñ Abdoul Ahad Diouf ñëw na Euh, ñoom waaw ñoom ñoo teewal daayira mu xadamatul xidma ànd ak euh, sëñ abdoulaad mu sëñ baara sëñ mbay juuf ja moomit it euh, mi ngi fi taalibi cheikh mohamadou mourtada sëñ alaaji balaay ba moom it mi ngi fi sëñ maam góor sëy mi ngi fi sëñ moustapha loo moom it ngi fi sëñ abdou ndiaye moo teewal baay sulay jaañ moom it ngi fi ki nga xam ni itam ñooy waa Touba ca kanam tuddoon naa leen léegi sëñ Mor Solang mi nga xam ni moo leen représenté euh, fii ci Ndakaaru ñu ngi fi Mouhamadou Omar Cissé représentant sëñ Mansour Cissé xalifa Baye Amad Cissé Pire mi ngi fi alaaji Daam Baabu Sàndaga mi ngi fi euh, sëñ Maam Mor Seck ci waa kër Baye Sëriñ yi ak sëñ Modou Bassine Seck ak euh, sëñ Mahmadan Seck ñoom ñëpp Baye Serigne ña ngi leen di sant bu baax a baax sëñ Abdourahmane Sylla kazalika naka noonu sëñ Alla Seck waa jaamal itam sëñ Babacar Cissé ak Papa Seck ñoom ñoo teewal xalifa bu maam Abdou Cissé ñi ngi ci jataay bi sëñ Aline Badara Seck moom it ñëw na euh, sëñ maxtar Kare moom it ñëw na imaam Massamba Diop bu Jamra moom it mi ngi fi di ku baax euh, kazalika naka noonu délégation bi nga xam ne ñoom ñoo jóge ci la Dramane sëñ fàllu si la ak sëñ si la ñoo leen teewal délégation sëñ Mor Khary si ak sëñ Modou Bali ba sëñ Modou Bassine ñoom it sëñ fàllu si ñoo leen euh, teewal sëñ Bakke yaakaar naa ni loolu moom mooy yi nga xam ni moo desoon ci délégation yi kon ñu jébal kàddu gi ki nga xam ni mooy euh, sëñ euh, Cheikh Awa Balla Gueye gi kon ñëwal taxaw fii ñu séen la <laughs> moom mooy joxe kàddu yi alaaji sëriñ eh, waaye am kàddu ci jotaay bi itam nag ndax li ñuy def nii ab toolam la jaajëfal bu baax kilifa yi nga xam ne seen jiiri tudd na leen jéggalu ñi nga xam ne jotu ñoo tudd seeni i tur ndax olof mooy wax ne ku lim rek da nga desal waaye bu ñu sañoon ñi fi teew ñëpp eh, bu ñu sukkandikoo ci yéene alaaji sëriñ ak fonk gum leen fonk kenn ku nekk danañ ko tudd jaar ci turam jox ko wàcc waayam waaye daanu dajut suuf ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi ñu déglu imaam Cheikh Awa Balla bisimilah. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlaana rasulillah wa ala aalihi wa asxaabihi wa man waalaa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di ñaan sunu borom bi subhanahu wa taala mu may nu nu fekkewaat ko at yu bare bare bare bari te yàlla defal nu wér ak wérle te nongul nu sunuy koor ak sunuy naafila ak mbooleem jëf yu yiw yi ngeen def yal na ko yàlla nongu xam naa dana jafe lool ma taxaw fii wax ndax ñi ma jiitu ñi nga xam ne nii ay werekaan lañu te wax fi wax yu am solo lool waaye damay nuyu rekk ñi nga xam ni ñoo nekk ci jitaay bi ci turu alxaaji Serigne Seck mi jiite C3S ci liggéey bu rëy bii ñu def te yéen ñépp ngeen laxasaayu dikk di ko ci jàppale moo tax mu ni nañu ko dimbali ñépp santale ko ko santale ko mbooloo mi fi teew santale ko bokk yi santale ko jàngalekat yi fóore yeeg kàng yi ñiy liggéeyal alquran ñi gën ci nit ñi yonentoo ko wax waxuma ko ñi nga xam ni alquran mooy seen guddi alquran mooy seen bëccëg ñu tudde ko tey ku rëy a rëy ku rëy am na lu ñu ma daan tooñe waaye mën na ma wax ni tey feet kisi génn ma ci dafa bari ci samay waxtaan ñetti tur dañuy faral di bari ba ñu bari léeg-léeg ñu bëgg ma cee jéppi sëriñ daam abdourahman sëriñ maam Thierno Ibra Fati sëriñ Mbacke Bousso fa ahlan tudd nañ fi ñëpp bi ngeen fi ñëweeg léegi kon sababu tudd gaa mooy dañ doon liggéey ci lu yàlla am yàlla indi ko ñu di ca nekk te loola siiw kuy liggéey ci lu siiw faaw nga siiw kon moo tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi tànn loolu tànn nañu lu tànnu tànn seen taalibe seen dono sëriñ Mor Jóob mi nga xam ne dundam bëccëgam guddeem ci alxuraan la ko def ba wuy ji boroomam radiyallahu taala anhum sëriñ ni mi ngi sant ñooñu ñépp nag di sant mboolem famille yooyu fi teew ndax yëg gu ñu yëg ni alxuraan ñoom ci lañ leen nàmpal kon fu ñu ko tuddee danañu fa teew loolu moo indi jitaay bi nee na jëre ngeen jëf ci loolu di sant mbooleem donga yi nag bu ñu tuddee daara dafa am ñu ko composé sant donga yi bu baax waaye sant waajuri donga yi ak jàngalekat yi ñii ñooy daara ka topp mooy ka fay romb naan askay kookee ci daara la bokk te loolu waa daara soxla nañ ko lool léeg-léeg nu am parandoo boo xam ni day jaar ca mbedd ma romb daara ji muy riir mu yëkkati dara yóbbu fa kookii ñu ngi koy sant waaye léeg-léeg nu am ku farut ak noonu bu rombee ku amub góom mu womet ndànk yóbbu police ni xoolal ni ñu def doomi jàmbur kooku farut ak noonu waaye ñi far ak noonu noo ngi leen di sant di leen gërëm ñi farut ak noonu it noo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ubbeeku ñu bokk ci ñiy wattu téere bi téere boobu nag alaaji sëriñ jël la mu man jël la mu xam indi def ko ci alquran ngir du doon rekk lu mu roy dafa ko nàmp sëriñ bi jiitu woon wax na ko léegi ki nga xam ni moo sañ ci daara jee mu defar ba mu mel ni panaal yal na ko yàlla fay te yal na yàlla barkeel ko ñu bëggoon alxuraan lool di ko jàngale ba mu dugg ci loxol Cheikh Mahmoudan nga xam ne man moom laa fekkee muy daara ju amoon solo mu di jàngale sunu sëriñ daara sëriñ ay bu fonkoon daara jooju ba daan jël ay nit di leen fa affecté ak ni mu bëggee alxuraan ak ni mu bëggee lii ngeen di def tey muy mbind moom bu fekkee woon lii dana kontaan lool bu ma séenee li ñuy jëkki di affiché muy ak noonu noonu a rang lañ ko daan wax dafa bokk ci jafee mbind léeg-léeg da daan tooñ xale yi moom dafa gëm mbind daf koo rafetloo da bu gisee mbind mu rafet day lox bu xoolee noonu a guñu xëcc muy tooñ borom naa ko xanaa nuuna rek yi bi nga ko xëccee maare nga xam nga ku xëcc araf bu rafet da ngay maare mu ni loolu la daan tooñe dongaam yi ñépp xam ko ci mbind mbind mu rafet ba ñii di ko doon tagg sax dañ cay boole mbind mu rafet dégg nga sëñ mu lay buso bi mu koy tagg bi mu xoolee am mbindam mu ko doon bindloo ci benn téere bu mu taalifoon bi mu ko bindee ba indil ko ko moom ay Suhaybu mu ni ko farixtu bi nassin fiihi sarraxtu muqlati bi xatti imaamin faaqa xattam na muqlati bi xattin wa shaklin nam namat ibra burdihi banaanu imaamin muntamin li ahimmati shuaybin nada sayqi taqiyi lasi qada yaquudu fi aman lil huda bil asimmati kooku bu fekkee woon lii dana bég moom moo ñu doon ñu da ko kañ ci mbind mu rafet di ko kañ ci xalima gu jekk tey bu lii amee amee fii jigéen ko lool loola daal ñu ngi ciy sant sëriñ daal sant nañ ñëpp sant na jàngalekat yi bàyyi seeni daara bàyyi seeni yitte lu mat weer ay weer ñu dugg ci àll bi daara judul ji ji nañu dem fa gaaral leen liggéey bi wax dëgg yàlla loolu la kenn amul seen pay yàlla mi mën a fay rek moo leen pay boole leen rek rakkam ji nga xam ne moom itam daf bokkul ci yëf yi rek waaye da koo doon muy Cheikh Fadil Fadilu Seck di boroom xam-xam moom it mokkal téere bi lool barki démb rek maa ngi dégg ci ni muy jànge waxafam xam nga koo xam ne booy jàng sa waxaf booy doxantu nga koy jàng ci yoon wi kooku xam nga ne mokkal nga Qur'an kon ñooñu askay eh, yëf yi néewuñu ci rek ñëwuñu rek di supporter waaye dañoo bokk bokk ci ñi mokkal alquran moo tax sëriñ jël lépp dénk ko ko ba mu ko ko dénkee mu wane ci fulla wane ci fayda wane ci itam ak gëm ak yittewoo sant nañ ko bu baax a baax sëriñ koy sant ak i bokkam di sant ñi mu tànn ànd ak ñoom nga xam ne dara du seen liggéey lu dul alxuraan alxuraane seen liggéey ci guddi mooy seen liggéey ci bëccëg te njiitul sëriñ xaadim Ndiaye ak sëriñ euh, Moustapha Diop Ndar yal na yàlla fay ñëpp te sant ñëpp gërëm ñëpp waaye nag du ñu fàtte sëriñ nee na du fàtte mukk nag ay soxnaam ay soxnaam dañoo taxaw ci daara ji bu baax léeg-léeg ñu ñuqi ci seen poos togg lu am solo mbaa defar lu am solo ginnaaw yóbbu ko ca daara ja loolu nag lu am solo la loolu kenn du ko fàtte kon ñu ngi gërëm soxna yooyu ak ña leen di jàppale ca wàññi lépp dox na sëriñ bi yaakaar naa ne wax na ko bi moom sëriñ Fallou Seck bu waxee ba daanee te tudd fi waañ dana ma jaaxal ndax lañu fay def daf koo soxla kon noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ñu ma waxoon ni naa ko fi wax daane ci mënuma ma koo wax lépp ndax xam nga samam xel daan neexul waaye sant nañu élèves yi parents yi élèves yi attekat yi nga xam ni dañoo baax lool ñu attekat yi national lañu ñii nga xam ne ñooy taxaw fu bu yàq nekk ñu génneel na ko loolu lu am solo la gis nga am na ko fi wax léegi ci eh, njàngale mi lu am solo mooy koo xam ne nii boo dee bind di yàq def ciy bég ngir lan boo yàqee mun la bàyyi rek mu bind ni mu mane bu bineem ni mu mane ci ngay xamee dëgg-dëgg fu yàq toll ak fu mu mën a toll doo ko gàgganti ko nag kon loolu méthode yu am solo la yal na yàlla dimbali ñëpp te sàmm ñëpp ñi ànd ak sëriñ ci c 3 mu di ay liggéey kët jàppale ko ñoom ñëpp dañoo wañu ko doon doomi daara kenn koo ci dem këram ñi ci ëpp samp nañu ay daara ngir roy ko ci kon nag ñooñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal yàlla sunu ñaari mbàkke yi al mbàkke yaani <laughs> ah al mbàkke yaani silla waxuma yàlla yal na yàlla fay leen ci taqdim bu rafet bi jasakumullahu an il islami wa an il muslimina wa an sahri ramadan al karim wa an il quran wa ahli al quran xayra al jasai wa jasa al xeyr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke kon daa mel na ñu ngi ci minute yu mujj yi ndax bëggoon nañu waxtu tàggatoo ndax toogaay beeg yu baree bari yoo xam ne aju na ci ni ñuy def rek ginnaaw bu ba la joxee nga def say taalee xaat ba noppi mooy daal di eh, xool benn vidéo bu gàtt boo xam ne bindkat yi ci boppam ñoo ciy présenté wu di ñi nga xam ne ñoo toog ci suñ ginnaaw bu ñu daaneelee ci lool rek ñu ñëw ci joxe résultat yi daal di yëkkati jotaay bi. waaw si Mbàkke noonu nga ko waxee noonu la taalee bi moom dana gàtt mooy sant sëñ Cheikh gi ku ne xam na taxawaayam ci lislaam eh, ak ni koy faral di waxee rek bu waree jël taxawaay jël ko ci anam gi mu ko waree jëlee. Eh, yàlla may ko itam lim lim fas ci ab xolom mu mën a am làmmiñ bu mu ko waxee loolu ak sant yàlla la ñu ngi koy sant bu baax waaye nag di sant Serigne Modou Guèye mi ngi ci jataay bi Serigne Modou Guèye Parcelles Assainies kenn du wax daaray alquran ci Dakar te tuddoo ko daanaka moo ci wane aw yoon judd ci lislaam màgg ci jàngale alquran bi jaaw ci ba léegi nii nag mu si jël ay responsabilités yoo sax ñun gone yi dañ koy faral di ragal kon mat naa ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi te barkeel ab liggéey mooy Serigne Modou liggéey kon xam naa Serigne Mbacké. waaw ñu dem day mel ni li si des bariwul incha allah. incha ñu daal di seetaan kon waare fi vidéo bi li ni ko sëñ Mbacké waxee yor micro di séddale kàddu taxu ko yomb. ndax léeg-léeg nga siggi ci jotaay bi gis koo xam ne boo sañoon mu ñëw wax. waaye liste bi ñu la tënkal doo ko bëgg a génn. moo tax kilifa yi nga xam ne ci kanam ñi ngi toog nii di jàkkaarloo ki nga xam ne mooy sëñ Xaadim Mbacké euh, docteur Xaadim Silla imam Ahmad Dame Ndiaye ligue des imams et prédicateurs oustaz Alioune Sall ñoom ñëpp ñu ngi leen di wàccee seen wàccuwaay waare si kon ñu seetaan euh, présentation wu ñi nga xam ne ñooy euh, bindkat yi euh, mbooloo mi gis leen ñu ñëw ci li ci topp bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd Abdul Ahad Jaxate euh, dëkk fii ci Touba jàngee alxuraan ci suñ njàng mu mujj euh, ci daari suñu alxaaji nga xam ne falan ba bawoo suñu Njaay dëkk fii ci Ndaamaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi tudd Mouhamed Habib Gaye jugee euh, Mahadu Cheikh Mouhamadul Amin Gaye Jannatul Firdawsi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 Touba Janat Firdawsi. maa ngi tudd Serigne Fallou Sanke euh, jàngi daaray Baye Serigne Gueye bokk si concours yaatal mbindum alquran bu C3S di def. salaamaaleykum wa rahmatulah man la Seydina Gueye dëkk Touba Madiana jàngi daaray Serigne Jiili Mbacke Touba Sata bokk ci yaatal mbindum alquran. asalaamaaleykum wa rahmatulah man la Badiane Cissé di jàngi daaray Fatou Manaan. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi noo leen di ziar bu baax maa ngi tudd. Mouhamadul Mokhtar Fall dëkk Touba Madiana jàngee Daare Mahadul Huda. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbokki julli yëpp nuyu mbokki talibe yëpp di ñaanal Serigne Mountakha yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko moo njabootu suñu Touba gépp di ñaanal waa société bii di G3S suñu borom dafa leen tafa jërëjëf ci seen liggéey bi kii wax ak yéen nag mu ngi tudd Modou Wade Diagne jàngee Daare Serigne Xamay Gueye Alquran. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi tudd Mame Mor Gueye Daare Serigne Saliou Mbacke mag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 benn dongala bu ñu wax Mouhamadul Mourtada Fall jànge daare sëriñ Mouhamadul Amin Gueye jëm mooy ci njiital sëriñ Cheikh Mbacke Gueye tubaa Janatul Firdawsi wetu foras gannaaw kër sëñ Alhaaji alhaji waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu ñëpp nuyu suñ mbokk jullit ñi xam ne ñoo bokk ci njongante bi ñoom ñëpp rek siyaare baax képp koo xam ne rek ah, yaa ngi yëngu ca alquran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 soxna Binta Diop dëkk Mbacke Xawa daara Serigne Mamour Diop. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd soxna Fatima Lo bokk ci concours mbindum yaatal alquran maa ngi daara yi Serigne Mbacke Lo. asalaamaaleykum maa ngi tudd maam Fama Sow di jàngee daara El Hadj Sow. maa ngi tudd soxna Ndeye di jàngee daara Cheikh Abdou Dieng. asalaamaaleykum wa rahmatulah. yéen waa Yaatal Mbindum Alxuraan maa ngi leen nuyu la Seynabou ma ah, ñoo nekk ni ci suñu ginnaaw di gane suñu borom di ñu yàlla teral ñoom leen doon waneele mbooloo mi macha allah ñu gis leen noonu ñuy ay xufaas mokkal alxuraan lool ci anam gu mucc ayib waaye tam man koo bind te duñ ko xool waxoon nañ ci njëlbeen gi nii bi ñu doo a tàmbali ñoom ñëpp matoon nañ 574 waaye ñu di si tànn di si tànn ba yàlla dogal ñoom ñii ñu mujj si di leen binduloo ay rubu ñu di ko bind te duñ ko xool waaye nag di tànn si barab yi gën a jafe kon day mel ni ñoom ñëpp gañe nañ xam naa dafa mel ni ab tànn nag du man a ñàkk am ñu jiitu kon xam naa Sëñ Mbàkke mel na ni di des si liggéey bi moom macha allah xanaa mooy waaw jëm koo jeexal bëreetut waaw ñu jaajëfal la bu baax euh, di fàttali rek ñi nga xam ne ñooy bëgg a bokk ci bindu mi am na plateforme boo xam ne mën nañ ci bindu ni nga xamante ne dañ daan bindu dem yóbbu ko ci C3S bu leen gën a jege am na plateforme boo xam ne mi ngi ci internet bi hmm, mën nga fa bindoo boo duggee danañ la ko tegtal. jox kàddu gi ki nga xam ne mooy sëñ Moustapha Diop bu ko defee mu ñëw ci li nga xam ne moom la war a ñëw. bismillah sëñ Jil daa am looy wax.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 jërëjëf ñu ngi koy encouragé bu baax a baax Baye Fallou nee na ki gagné concours bi tey troisième bi ku jara encouragé la ndax mës sa découragé te participé na ay yooni yooni yooni yoon lu jot yomb alxuraan teral na ku ne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 ñett ñi foofu lañu xëccoo waaw sur cent ku ñaareel ki kan la ku ñaareel ki moom it am na quatre vingt point nga xam ne xawma ku mu waaye dana am cinq millions cinq cent mille ah tubaarkàlla loolu tubaarkàlla ah, kon ñu xaar vidéo bi suñu euh, récit indilaat ñu ñaar fukki candidat yi ñu amoon ñu ngi noonu di wër euh, ku ngeen yaakaar ne moom la ci ñi ngeen di gis nii borom 5 millions 500 yi la ñu xaar. bi ni'mati rabbika bi majnun ñu déglu sëñ Moustapha mu wax ñu kon kooku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 soxna Faama Suur waaw soxna Faama Suur am na cinq am na million un million un million un million soxna Faama Suur am nga un million ah waaw kay foto leen ko tàccu ko bu baax a baax soxna Faama Suur moo jël deuxième ci jigéen ñi soxna Faama Suur jàkkaarloo ak photographe bi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 góor góorgóorlu ci ñetti charte yi alxuraan ji mokk ngeen tàggatoo beqi ndax beqi mooy tax a xam nuy bind alxuraan waaye it ngeen jàng ngeen tàggatu ci mbind mu rafet mokkal alxuraan beqi di bind mbind mu rafet ndax kat benn probo benn probo nga bind ko ci ñaari waxtu jox la 6 million ak 5 millions 500 mille ak 5 million kooku barkeb alxuraan la. jërëjëf tubarkàlla. kon nañu jàng bu baax te bind bu baax. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi toog leen ñu ñaan toog leen rek ñu joxe kàddu gu mujj gi rek. kàddu gu mujj gi sëñ Abibu Mbàkke bu Sëriñ Fàllu moo koy joxe mu nekk kàddu ñaan goo xam ne dañ koy tëje jotaay bi. Euh, dafa joxe ngaan mi ngi ñëw waaw ñu may sëñ bi mu ñëw kon ñu may ko mu ñëw. ñu may ko mu ñëw moom rek la ñuy xaar ñii nuyoo nañu may mu ñëw ñu may sëñ bi mu ñëw ñu may sëñ bi mu ñëw dimbali ñu rek mu ñëw ñu ñaan mu ñëw ñu ñaan te yëkkati jotaay bi jaajëfal bu baax a baax kilifa yi nga xam ne teew nañu yëpp ndokkeel bu baax a baax première bi ci góor ñi première bi ci jigéen ñi ndokkeel bu baax télévision yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci jotaay bi en direct limoon naa ko léegi nga xam ne jox nañ yitte liggéey bi te jox nañ ko solo mbokk yi di ko seetaan ci àdduna bi yëpp ñoo ngi leen ci jaajëfal bu baax. sëñ Mbàkke muy muy xamal ni maanaam sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke day wax ne vingt yi vingt yi bokkoon yëpp am nañ diplôme d'honneur. waaye kenn ku si nekk itam dana am neexalub trois cent mille. loolu am na solo dañoo neexal ñetti nit ci góor ñi kenn ki ñu jox ko cinq million cinq cent kenn ki ñu jox ko cinq million première bi ñu jox ko six million waaye nag personnes yi teew ñi ñëpp kenn ku nekk dinga am trois cent mille francs loolu am na solo sëñ Mbàkke ñu may sëriñ bi mu ñaan ñu may sëriñ bi mu ñëw may leen sëriñ bi mu ñëw ci kàddu waaw kay bisimilah ñu may ñu may sëriñ bi sëriñ bi joxe kàddu bisimilah bisimilah mën ngaa joxe kàddu joxeel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi fi teew yëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaara ci turu sëriñ Habibou ak ci turu kilifaam gi nga xam ne moom la fi nekkal muy sëriñ Abdou Lahad ngi sant sëriñ Seck ci liggéey bi nga xam ne ni eh, defal na ko alxuraan te ànd ceeg borom xam-xam yi ak niti daara yi nga xam ne ñoom la ko seqal ñépp ci eh, liggéey bu am solo bi nga xam ne sëriñ Seck eh, doon na ko def mu teew fi nag ci mbokk yi nañ toog teewaay bu am solo di kilifa ci waa kër sëñ Fallou waaye it yor liggéey bu rëy rëy boo xam ne yoroon na ko yoonu murit yoral ko Cheikh Mouhamadou Mountakha muy liggéeyu Touba ci kanam eh, di am mbégte it ci eh, ni liggéey bi doxee ak ni ñu teralee alquran ak ni ñu terale waa alquranul karim kon lii mooy ay kàddu tënk la yoo xam ne sëñ bi bu dane nan ko ko yëkkatil Eh, su ko defee mu ñaanal mbooloo mi teewal na fi sëñ xabbaan mi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha dénk liggéeyub alxuraan ci eh, yoon wi kon mi ngi sàkkul sëriñ magam sëriñ Mamoor moom sëriñ Fàllu ci jotaay bii mi ngi ko ci sàkkul ñaan bu baax mu jiti woon liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bu alquran te sëñ xabaan wuuti ko ci di ñaan suñu borom dolli ko njëggal ak yërmande ak ngërëm ak ay leer kon sëñ bi mën nga dal di def ñaan ñu euh, yow jox nañ nangu ñaan mbokk yi ñu jege ñun ñëpp nangu ñaan wax leen amin yàlla nañ fi teewaat déwén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 بنعمة ربك بمجنون